sëriñ bi ci sama léppi tey ak ëllëg ndax li was sama lépp tey ak ëllëg moom dong laa ci wut moom dong laa ci wut moom dong laa ci muntu ñàkk di ko sant nag baax a baax foo xel mën a yem ak cant xool mën faa àgg

dégg ñaar ñooñu nga xam ne mooy doomi mooy sëñ jiili moom sëñ Cheikh May ak sëñ Fallou moom sëñ Moustapha Absa ci seeni taxawaay ak seen may dégg ba suñu borom dogal nag ma am lu ma ci xam. sëñ Xalil mii moom amoon naa ndigal ci moom jaar na fi man ci ndigal sëñ moom mii moom amoon naa ndigal ci moom ci ndigalal sëñ Saliou jaar na ci man. taxawaayu ñooñu rek la yor. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. ñoo ko andi itam loolu. bi ma gisee loolu. mu yëg ci man lool. ma yëg ko mu sori ci man lool. mu wóor na ma ne. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi. ko si xaside yi moo jiitu. ko xaside yi moo ci jiitu. bi ma xamee loolu. bi xamee loolu. doom jee di seet di seet di seet di sama doom jee di sëñ Fatma moom sëñ Moussa Bachirou. yàlla defal nu ci tawfeex ci moom. yàlla defal nu tawfeex ci moom. defal ci njub. defal nu ci njub. ci xam-xam. defal nu ci xam-xam. yàlla xiir ko itam. yàlla xiir ko itam. liggéey boobu. ci liggéey boobu. liggéey liggéey liggéey boobu bi moo jiitu ci liggéey yëpp. ndax sëriñ bi moo jiitu ci liggéey yëpp. liggéey boobu mu defal boppam. liggéey diggam ak boromam. diggam ak boromam. diggam yonent bi. diggante ak yonent bi. diggam ak boppam. diggante ak boppam. ma daal santaan nag. ma daal santaan nag. ci sëñ Cheikh moom yi. sëñ moom yi. nga xam ne dama daal di sama xel dal jëm ci li ma yéene. sama xel dafa daal di dal jëm ci li ma yéene. muy lu bopp doom yu baax yi bind. muy lu sama doom yu baax yi bind. bind ko seen loxo yi. ñu bind ko ci seen loxo yi. lu ma ñàkk solo. waaw ñàkk ñàkk ñàkk solo. waaw moom de lépp lu jom yi man it mool ko. man fas yéene naa am taxawaayu mool ko. waaw lu ci yàlla dogal rek. lu yàlla dogal rek incha allah lépp laa bëgg a mool. loolu dama dama li ma ko waxee rek eh, sant naa bu baax. loolu nag ni ma ko waxee rek sant naa bu baax. tawfeex ji ma am ci sëriñ bi. ma am ci sëriñ waaw Mbacke tawfeex ji de rëy na lool waaw. sama dundu àdduna. ba tax na sama dundu àdduna. sama dundu alaaxira sama dundu alaaxira moom rek laa ci mënta ñàkk moom rek laa ci mënta moom noppi woon naa ci bu yàgg. àdduna moom noppi woon bi ma daataa agsi foofu foofu. loolu nag tax. loolu nag tax. ci sama doom yii. tawféex ji ma am ci sama doom yii. ma bëgg bëgg leen a fekki. bëgg leen a bëgg lu bind rek. bëgg lu bind rek. fu seen fu ñu ca àgg ak ca àgg ak rek. mànd ñoom mànd koog ñoom. bind rek. lu ñu bind rek. feeg maa ngi noyyi. feeg maa ngi noyyi. danaa mool lépp. danaa mool lépp. ndax. yàgg lool. liggéey bi.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 kon loolu rek la mooy sabab si. kon loolu rek mooy sabab si. la ca dolliku. la ca dolliku. mooy muy muy muy jataay bii. mooy jataay bii. bi loolu amee. bi loolu amee. damaa daal di xemmem jataay bi. damaa daal di xemmem jataay bi. bëgg ñoom ñooñi. bëgg ñoom ñooñi. ñu teew si fi. ñu teew si fi. ak képp ku yeyoo ci jataay bi. ak képp ku yeyoo jataay bi. nii mu demee nii rek. nii mu demee nii rek. noonu laa ko bëggee woon. noonu nii laa ko bëggee woon. muy jataay boo xam ne. muy jataay boo xam ne. leen di dama sama digg ak ñoom. sama digg ak ñoom. dama ci doon ci doon moo moo ndax lu ma ci def rek ci teraanga rek. néew na lool ci dama ko bëgg. waaye loolu dong laa ci jublu. waaye loolu dong laa ci jublu. bokk jotaay. nu bokk jotaay. masant leen. ma sant leen. kañ leen. kañ leen. di seereel sama borom. seereel sama borom. di seereel sëriñ bi. di seereel sëriñ bi. ni seen liggéey boobu yi. ni seen liggéey boobu ñu sëgoo. fas yéene caa ànd fas yéene ànd ak ñoom feeg maa ngi noyyi ñoom feeg maa ngi na yàgg lool loolu nag moom moom laa leen doon seeral ñoom loolu moom laa leen laa doon seeral ñoom bokk seeral bokk yu baax yëpp bokk yu baax yëpp xam ne am nañ yeeyoo teew ci jotaay am nañ yeeyoo ci jotaay bi loolu dong la loolu rek la loolu rek la waaw ndax yàgg fi lool eh, da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen seeral na daal ni ma ko waxee woon rek. ni ma ko waxee rek sëñ bi rek sëñ bi rek laa tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. waaye na ni itam nag. na ngeen nag. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yenn ko yóbbu ko fa fa sëñ bi bëggee. te bu ma sañoon yenn ko yóbbu ko ko sëñ bi bëggee. waaye yitte ji waaye nag yitte ji nag. laa ci jiital. lii laa jiital. fas yéene cee liggéey rek. fas yéene cee ci mën a boole ci mën a boole boole ko. loolu rek laa leen di seere. loolu laa leen di seere. muy tàllal ngeen ñaan ngeen tàllal tàllal leen sañu ñaan gërëm bu baax a baax waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax Cheikh Bass suñ Moussa dama laajoon eh. ba xam ndax dinaa fi yëkkati kàddu ma ne fii jotaay bi moom yëg-yëg bi ci suñ bi am wóor ma ne kenn mënu ko ci wut kon nee na nga ñaan amin amin amin ñu yàgg fi lool ba egg ba ba li bëgg lépp mu egg incha allah des na tuuti rek ne des na tuuti rek jëmmi yooyu nag jëmmi yooyu nag dama yaakaar ne dama yaakaar ne buñ ci nekkee. buñ ci nekkee. dana mas a bari lool. dana ma a bari lool. loolu nag moo tax. loolu nag moo tax. bëgg ñu wutal ko kër boppam. bëgg ñu wutal ko kër boppam. bii ba yéete bu sëñ Moussa Dieng fii dara xajatu ko. déedéet foofu di gàtt dara xajatu ko. béykat béykat. daal mi naan yëpp tubaarkalla. waaw waaye dama bëgg bii moom ñu wutal ko kër boppam goo xam ne. Hmm. mbindum sëriñ bi dong moo ciy nekk. kër boppam goo xam ne mbindum sëriñ bi képp moo fay nekk. mooy ngeen xamaale ko ci. ngeen xamaale ko ci. dañ ko dañ ko daal sóobu nag fi saasi. dañ ko ci sóobu ci saasi.

ab la itam. donte ab angar la itam. dana fa xaj dana fa xaj loolu rek ci ci ngeen ko noonu. ngeen xamee ko noonu rek. lay <laughs> léeg-léeg damay damay sama xel sama sa jëm dañ xel moom mii déyoon naa ko ne ko moom mii déyoon naa ko moom sëñ aatu bi ne kër googu maag ñoom ñoo koy liggéey moom mii sëñ aatu moom moom ñoo koy liggéey mënoon naa wax Cheikh Bass mënoon naa ma wax Cheikh Bass ak sëñ Ahmadou Bada bi ñu seet ñu seet ñu kuñ koy liggéeyloo kuñ koy liggéeyloo ca ca ba ca ba ci université ba ñi ci am yéene bari na lool ñi ci bari na lool moom moom moom maa koy liggéeyal sama bopp. moom maa koy liggéeyal sama bopp. jërëjëf sama waa rek moom laa ciy. sama waa ji sama waa ji sëñ rek moom de ciy àndal. ndax tawféex ji am ci xasida ndax tawféex ji am ñoom ci xasida yi. ñoom seen mbir yëpp. ñoom seen mbir yëpp. xasida rek luñ ci luñ ci boole rek dañ ko seen ndax kon rek. xam na lëm sédd boromam xam na lëm sédd sëriñ bi bu ca xelam dalee na gën a góorgóorlu bu baax yokk bu ca xelam dalut na ca góorgóorlu ba xelam gën caa dal loolu dongkat moo nuy amal njëriñ amul leneen leneen leneen loo xam ne du dul dolli na ay jafe-jafe baate baat jamono jooju bay xew du dul dolli na ay jafe-jafe jëm ci leneen lu lu sunu borom ci gannaaw sëriñ bi amul nu benn njariñ dañuy dolli ay jafe-jafe rek àdduna moom xëy na dëgg la nii la baaxoo sax mus sa jàkk waaye suñu jamono ji moo ci raw sëriñ bi ndokk Cheikh Sidi Moxtaar ndokk bi nga xamee ne itam jëpp mi ko jëmee ci sëriñ bi jëmee yitte sëriñ bi moom moo jëme yitte sa borom rek kon ndokk bi nga xamee ne itam jëpp jëmee ni ko sëriñ lii mu digle jamono ju ne waxtu wu ne baax na la baax la am waxtu wu ne baax na am na njëriñ waaye dafa mel ni suñu jamono jii nag moo ci raw lu ci bari ñu yaakaar ñu ci bari dégg nañ la nga xam ne moo xaw ci réewi islam yi ay julliti kese di rayante seen biir te adduna rek tax loolu képp jar na jóg jëm ci lii sëriñ bi digle dellu ci suñu borom waxuma la sax réew yi arab yi waaye mën naa cee wax menn réew moo xam ne muy Filistin fa nga xam ne fa la masjidul aqsa nekk fa la nga xam ne fa la su su su su yonent bi foofu la rañaane woon jëm ci boroomam foofee ay noona ko wër këpp aw ay ay néew joole dëkku fa noonu yooyu bëgg leen a génne foofa leen buntu xasaal ci wet bu ne di rey di jàpp loo ko soob mu def ko ndax ëpp gëm leen ëpp la ëpp doole loolu kon lu néew néew doole lii jar na di ko def waxtu bu ne ngir ngir ngir liggéey lislaam la ci suñu kem kàttan ginnaaw moom ku gis loo xam ne gënut boo ko mënee faj da koy faj fa boo ko mënut a faj nga wax la la ci naqari lépp boo mënta wax nga am nga am naqaru xol lu wóor a wóor wu xóot ci yow ngir jëf ju bon ji nga xam ne moom nga yëg moom nga gis kon lii sëriñ bi digle alhamdulilahi rabbil alamin ndokk bi ñu amee kilifa boo xam ne waxtu wu ne mag nu jéem a delloo ci sëriñ sëriñ bi nan nan sant bu baax a baax a baax nan sant bu baax te góorlu nag nan dellu ci suñu bopp kenn ku ne ci ñun ñi fi teew ñëpp koy dégg kenn ku ne ci na dellu ci boppam seet diggam ak boroom seet diggam ak sëriñ bi la mu la la la mu def ci loo xam ne na ma ko waxoon léegi rek la mu jëf ci loo xam ne dal na xam diggam ak boroomam alhamdulilah rabbil na ko yokk la mu sàggan diggante ak boroomam ak diggam ak sëriñ bi xam na ko na ca góor na fas yéene jóg ci càggante googee muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñun ñëpp ñoo ci yem ñun ñëpp bëgg mucc tey ëllëg kon ñàkk xam ak sàggan rekk fi nekk damay wax ni ku gëm yàlla gëm gu wér gëm alaaxira il faut da nga xool sa bopp soppi saw doxin xam ngeen ni ma wax kon nan góorgóorlu bu baax te xam ne eh, ñi nga xam ne ñoo daw jëm ci seen boroom ba jege ko lool ñooñu seeni bàkkaar moo di noo noo goo xam ne jëmul ci yàlla loolu mooy seeni bàkkaar moo tax ñuy wax ne eh, yii yi gaay yu bax ñi mooy ñaawtee fi gaay yi jege yàlla yi kon euh jëm ci sa borom amu waxtu waxtu boo ci amee tawféex rek santal yàlla te jëg te te fëx daw lu ñu jëm ci sa borom kon jël jëf sëriñ bi moom mi nga xam ne waxtu mu ne mi ngi delloo ci suñu borom ñu diggal loo xam ne njariñal jullit yépp lay doon ñu koy sant bu baax di leen sant ñi ñi xam ne taxawaay bii sàmm alxuraan jëfee alxuraan di bëggee alxuraan di dundee alxuraan loolu mooy suñu liggéey ñu ngi leen sant bu baax a ñu ngi sant bu baax nag alhamdulilah rabbil alamin شيخ محمد بشير من في شيخ محمد الفاضل ثاني مامور مو شيخ محمد الفاضل ثاني بشير مين مو شيخ حبيب يا خاي كنا خمنكم من اللي مالي ذكري فتبارك الله اللهم كان كنا أه، خيب ناس من بابتي تايبي فهي دون من تجاي يوم يوم يوم أكسيني ذكري seeni nag xanaa ñaan rek suñu borom mu gën a sàmm Seex Sidi Moxtaar di gën bàyyi lu yàgg a yàgg nekk mu gën a mën nekk ci liggéeyam bi ñu ngi fa bàyyi leen ñi nga xam ne yéen a jëw ñi sàmm Alxuraan leen di ñaan ñaanal yéen itam suñu borom sàmm leen sàmmal leen te bàyyi leen fi. wéral leen kàttanal leen ba ngeen gën a mën a nekk ci li ngeen nekk sama sang si dëgg la maa leen def ci maa leen def ci wet waaye man kilifa laa leen def ndax ay sang laa leen jàppe ñoom ñii nga xam ñoo fi teew teewal fi ñi seen seen i bokk yi fi teewu ñu ngi ñaan bu baax a baax ñu ngi la ñaan bu baax a baax ñu gën a ànd ak Seex Sidi Maxtaar ci teem ji gën a ànd ak yéen seen taxawaay bii suñu borom tëlewul dara mu def ci noonu nag lu wér lu jar bëgg ngeen bëgg bëgg Sëriñ Tuubaa ba doy leen lépp mu dolli nu nag ban mën a gën a tegu ci yoonu ma bëgg bu mu bëgg mën a gën a mën nekk seen i yi ma mën a gën a ànd ak yéen loolu noonu ko nan ko ñaan ñu ñëpp ñaan ngeen ma ko ñaan ndax kilifa mun na ñàkk te kilifa nu mel ñi mu yëlif noonu rek la ñu mel kon nag na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen leen di ñaaral man dinaa ba noppi mag laa ay ñoom ñii ay ndaw lañu na ngeen leen ñaaral suñu borom tëbb leen gën leen a dolli xel mu rafet mu leer gën leen a dëgëral dolli seen i positif gën leen koo dëgëral gën leen koo sàmmal yokk gën leen yokk seen yitte xam li nga xam ne moom lañu am masuuliyaat yi nga xam ne moo leen moo tegu seen kaw du gën koo xam ba mën ko ëpp doole mën ko jëfe bu baax a baax a baax wax liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa lépp sax dàkk ci liggéeyal ko ci islaam sax dàkk ci liggéeyal ko ci suñu bopp ci suñu lépp nag damay wax ne liggéey liggéeyal Sëriñ dañ koy tàmbalee ci suñu bopp dañ ko liggéeyal ci suñu bopp ba noppi dañ koy liggéeyal ci suñu bopp mooy jéem a defaru rek ba suñu xel daal seen gën a jébbal jébbal ñu gën ko jébbal suñu bopp la ca doon door caa dolli nag yeneen lu mën a doon lu baax lu baax lu mën a doon rek loolu ca mën rek dañ ko def am ca positif liggéey la ko sëñ ak lu mën a doon jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax a baax ni ma ko waxee nag xëy na fi ma toll may ma gën a yàlla saytaane gën maa sori waaye mag bi ñëw na doole di yaram bi ñu ngi fi waaye alhamdulilah rabbil alamin sant naa bu baax ci lu ma wees sant naa ci lépp. kon moo tax mu bëgg ñi ma ñaan boobu Cheikh Mahamadou Bachir mii Cheikh Mahamadou Fadil serigne Mamour mii mu Cheikh Mahamadou Fadil serigne Bachir mii mu cheikh al Habib ngeen xam ne seen taxawaay mat na sëkk xeeb naa ci sama bopp lool man ci taxawaay bii xam naa da ngeen ma ko yéene rek yéene ma lu baax rek waaye xeeb naa ci sama bopp lool waaye ni ma ci xamee sama xamee sama bopp nag ñoom ñi leen ñi leen ñi leen ñi leen ci ñi leen laa nawee ci taxa ci ci jataay bi ci taxawaay bi kon euh, ni ma ko ñaanee rek loolu baamtu yal na ko nan ko suñu boom defal ba gën a mën a euh, jublu sëriñ bi ba ñu ko mën a jox suñu lépp ba gën a mën a sax ci liggéeyale ko suñu lépp naa di wax sax man ci waxi daanukat yàlla di wax ci waxi daanukat noonu suñu jaamu yàlla dafa ñu fasaale ca liggéeyale ko sëriñ bi door ko liggéeyal nag moom ci boppam ci lépp lu baax suñu kenn kàttan man noonu laa ko gisee kon naa ngi jéggalu maa ngi jégalu bu baax a baax a baax ci lépp loo xam ne ak matali la bu ma weesu matali la matali la bu ma bu bu teew fi man ak matali la matali la ji bu loo jëm maa ngi jégalu bu baax a baax wax dëgg ko seere yàlla ñu maase suñu borom may nu yërmandeem ñoo tax loolu moom njëggalam bi biti gën ñoo xiir ci boppam gën ñoo xiir ci ci lépp lu baax a jëf eh, jërëjëf nii nu nii nu nii nu nii nu nekkee fii noonu noonu lanu lanu gise ci waxtu bii noonu lanu gise ñu fi nekkee rek nii lanu gise muy taw bi wéy rek ci noonu xasida yi bari na loolu waa ñu nga xam ne moom mhm. ñëpp dañu bëgg mi ngi ci biir xasida gi mhm. Mhm. loolu tawfeex nu ko may alhamdulilah rabbil sant bu baax a baax baax a baax sëriñ bi di may ñaan sax damay damay boole. suñu borom ginnaaw mooy def mm-hmm. ak dindi. boole nag sëriñ tawfeex ji nu ci am dina ko dolleel di wéy. alhamdulilah amiin bakk bu ne maa koy. alhamdulilah amiin bakk sëriñ bi ci waxul nag. mooy boole na ci boppam. amiin boole na boppam. amiin amiin bakk tabarkalla tabarkalla. gàttal na nu boppam. amiin amiin womatal na boppam. amiin bakk amiin amiin amiin amiin amiin amiin loolu rek. mooy mooy ñaan gi. ginnaaw suñu borom mooy def ak dindi. may nañu tawfeex sëriñ bi ba noppi waaye mu dina ko doole nag di wéy. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. sëriñ bi nag. boole ci boppam moom ci boppam. gën noo gàttal lu boppam gën noo wommatal boppam amiin amiin alhamdulilah amiin bakki amiin amiin suñu jataay bii ñu ngi nuy gis lii may wax mi koy dégg la ilaha illallah kon sant rek sant rek alhamdulilah rabbil alamin sant rek alhamdulilah jërëjëf bakki jërëjëf waaw sant rek waaye dafa am baat bu ma koy lëkkaleen nag sant ak soññu sant nan sax ci sant sax ci koy lëkkaleen nag sax ci sant sax ci soññuwu waaw ñoo yàlla na nekk ci diggante boobu rek loolu sax ci sant te sax ci soññu nag suñu bopp ci moom. loolu rek la. tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla Mbacke tabaarkalla jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. loolu rek la jërëjëf jërëjëf. saa ci sant. Mhm. saa ci soññ suñu bopp ci moom. tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla. loolu. Mhm. yaqin la ci ne. Mhm. yiwu àddina ak yiwu àllaaxira sikki sàkk néewu ci mi ngi ci biir loolu sikki sàkk néewu ci soññu suñu bopp ci moom mhm. yiwu adduna ak yiwu moo ci jiitu ak yeneen yi nga xam ne nag xel mënu ci àdd ko xel mënu koo daj noonu rek ndax sax ci sax sax ci soññ suñu bopp ci ci gépp wàll daje suñu kem dëgg la tubaarkalla Mbacke tubaarkalla tubaarkalla tubaarkalla mooy woon yéen ci kàddu yooyu rek tubaarkalla tubaarkalla doy la sëkk doy la sëkk Mbacke sant ñëpp sant nañ ñëpp ngi lay sant sëriñ bi ñëpp ngi lay sagoo ñëpp ngi lay béggee ñëpp ngi lay ñaanal Mbacke fàggul mboolem ku fi teew rek yàlla jéggal say bàkkaar te defal kër defal na ko rek الحمد لله رب العالمين jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ñi nit ñu bëgg taalibe yu dëggu yii jiituma ci wax ji doyoon na sëkk waaye waxi Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da ci mënta dolliku sunna rekk sant ak santlu nun lii gën a war ci noonu muy sant rek sëriñ bi sant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi nun sant sëriñ bi rek mooy suñu wartif faggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi di nu jaamuloo nu di jaam ñu war a jaamu kon bu bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw lool moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lanu sunu borom bàyyee luñ ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko ñu dolli ko ca kon sunu cant nun foofu rek la war a nekk ak cant dong laay dolli ci wax yi Cheikh am sama ji nanu góorgóorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu téef bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënoon lu lépp nu doyloo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaye nag sant sëriñ bi ci nun wurta am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nan ko doy na sa kiisam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeñ moo ngi àdduna yóbbaale ko suñu yóbbal ci àllaaxira di sant sëriñ Tubaa kon góor góorgóorlu bu baax lanu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu nu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la liggéey bi nekk ne ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yi mu fi nettali fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam am nam nam doon doxe digg ma boroomam ak digg ma yonent bi ak nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ñu ko gën xam gën raw lu ñu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu la liggéey bi nekk amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon sunu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bég ci ñun yaar nun ca gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel bappam di gën a bëgg ci loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor gën a góorgóorloo dinaa dañoo bëgg sëriñ bi di bëgg ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey gal nag dañu góorgóorlu ci yar nañu jéem a set set set tii bàkkaar sunu képp kàttan yomb nu waaye nañ ko jéem ndax moo ni ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay bi moy suñu xaas lu nu gën a fonk xasida sëñ bi di gëna a ci ñun lu ko gëna a jàng gën a jege bi waxi sey Abdou Samad bi loolu yaari yaar yooyu laa ci dolli gor lu bu baax ci jema set di gën di set ndax lu nu gëna set rek señ bi gëna a ci ñun lu nu gëna set gëna a señ bi te man ko xasida yi nag xasida yi moo war a lépp lu ñuy lekk lu ne dagg xasida moo ko war a dàqal xel lu ne ci xeeti ngar na jàng xasida moo gën gaaw noonu rek la demee foofu rek laa yem waxi Cheikh Abdou Samad duma ci dolli dara cant rek ci kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di gën di set góorgóorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko mu sunu dund ndax mën na ko loolu rek li ci maanaam nag sëy sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar <laughs> waaye maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëñ bi ne maa ngi waxal bokki taalibe yëpp dafa am lu ñu ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp ne mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi sëñ tubaay yëpp nga fonk te gëm leen waaye da nga cay fab kenn mu ngi sëy nun ñii ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne da nga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu jëbbal rek ñu sëñ ma ko li ngeen def doy na sëkk nooru daari waaw nooru daari moom nooru daari moom am naa ci am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa ci am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde nooru daari am naa ci sëñ Cheikh Salihu moo ma woon dee ma ko jàngal. Nuuru daale nii Cheikh Salihu moo ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj gi ci mujj gi bis bu sëñ ma jàngal ko ko. ni ma ko gisatul te xat bari aji mu juree ma jàngal koko boo koy jàng du ci fas dala Seex rek laa koy jàngal moom laa koy liggéey waaye xasida yi xasaa yi bii rek laa wax waaw ah. ci bu ci wóor ni sëñ ne ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu mu gën a bari gën a baax <laughs> noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci waxi Seex Abdu Samad bi sëriñ Basiru dafa am bis mu maag beneen mbokkum bi muy waxtaan ak ñun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bag mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne diw boo yoroon dalli nañ di ko doxee ba mu xar doo gis ku mel ne man <laughs> ah sëriñ bi nag sëñ Basiru moo ma waxoon fullaam te wax jooja la dem ba tàng xaal ne waaw way serigne bi sax mo amna na fulla foo ko toll rek mu toll la fa day waxtan day wax beug mu gëna tàng ne waaw way serigne bi sax amna na fulla foo ko toll rek mu toll la fa kon bis bi leer taxaw sañ xamtu bi leer na nañ leer na nañ sëñ bi foko ko mu toll la fa leer nañ moom nak dañu gëna ñaan rek waye sampu sëñ bi ay dañu gëna ñaan nak bu gën su ma gën koo sàmm fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi fa tabarakallahu alhamdulillahi rabbil alamin lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo ko gën a bëgg boo ko di seet ñëpp ko bëgg taalibe yëpp ko bëgg waaye boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu mbir la gone yu ndaw yi ak jigéen ñi ak ñëpp gone yu boo ko di seet da ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mbir la mën naa dalal xel sëñ bi fag fàggul nanu lépp waaye buñ na yàcc buñ yàccaaral buñ sàggan nanu jiima sant sëriñ bi ci ni ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf <laughs> Macam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي تالي بوكي دكندوي بوكي دكندوي noo bu baax rawatina dul nuy sant sëriñ bi bu baax di leen xamal ne faggul nanu sunu njëriñi tey ak sunuy njëriñi ëllëg lépp faggu na ko noo koy sant bu baax pàggtee fi fa tabaarakallaahu yaatu na liñ ci mën a jiital mooy jataay bii rek fa faggu gi mu nu ñaari sëriñ faadilu kii di imaamu taraawix kii di imaamu salaatil aydayni di ay gone yu ndaw ñu waajal leen waajub lislaam bu mat sëkk dëppale leen dëppal lislaam muy alxuraan noo ngi gën a sant sëriñ bi bu baax ndax loolu lépp pàggute fa moom ne ñeewunu madinatul munawwara ci seen ilimaan ñeewunu it makkatal mukarrama ci seen ilimaan loolu lépp nag fàggu sëriñ bi rek kon nag noo ngi koy sant bu baax moom sëriñ Tuuba bu loolu wee ñu farlu ñu farlu ci dool ñu ñu ñu farlu ci jooyal lislaam loolu moo di taxawaayu lislaam ak doxiinam ak ni mu gaawee am am téq fanweeri at yu tegal rek mbooloo mi mel ne lépp a soppiku ci ci li fi ngeen ji mi bàyyi woon muy liggéey rëy bii di lislaam mat sëkk mat ko waxee woon rek ko waxee woon rek ne al yawma akmaltu lakum diinakum ñu dox tuuti at yu néew ñu lépp xaw a dellu ca nam meloon ñooy seti yonent bi ñu ah ñu rey seti yonent bi ñuy rey seti yonent bi di jàpp ay setam yu jigéen ni ki jàppum jaam ni ki jàppum jaam benn yàqu-yàqu mënu defe loolu defe naa benn yàqu-yàqu mënu ko lislaam di dem ci noonu yi rek nag di gën di lëj rek di lëndëm loolu moo waral jàmbaari lislaam yi gannaaw saxaabatu rasuul ñu jóg fas yéene taxaw taxawaayu yonent bi fas yéene yeesal lislaam yeesal lislaam ak dundal ko ak jele ak jële ko ci tumuraankeem googi jàmbaare lislaam yooyu ku ne xam na ne ci serign bi bok ku ne xam ne ci le serign bi bok gis nañ ni mu joge gis nañ ni mu joge dafa melni da ko andale dafa melni da ko andale dundé ko dundé ko lépp di jub ci lislaam am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon moom xaadimu rasul ba ñi jëkk a ànd ak moom xaw na leen a def ni saxaabatu rasul mën na si ne leen a yéegalit ca ñoom kon fii ñu toll nii war na noo tal war na noo taxaw war na noo tal leneen lu jógaat ci lislaam lu jógaat ci lislaam jàmbaari lislaam yooyu jàmbaari lislaam taxawaay yooyu seen taxawaay yooyu seen liggéey yu rëy yooyu seen liggéey yu rëy yooyu te sëriñ bi bokk ci ñoom. sëriñ bi bokk ci ñoom. kon. kon. fokk ñu war a jooyal lislaam. il ndax moom. bu dundee. moom lislaam yoon yëpp dund. bu tumurankee. bu yoon yëpp tumurankee. kon fi ñu toll ni fi ñu toll yep julit yep julit yëpp dañoo war a jógaat ci lislaam dañoo war a jógaat ci lislaam kem kattan kem kattan ba jéem ko delloo fa mu newoon ba jéem ko delloo fa mu newoon jéem ko suqali ba mu dund di ko gën di dundal di dundal loolu fi ñu toll loolu fi ñu toll naka jekk noonu la meloon sax naka lu toll ni junni at ak ñeenti téeméer yu tegal ni junni at ak ñeenti téeméer muy gën di laj di gën di lëndëm ba ci sun jamono ji kon war nañoo tal leneen lu dul dundal ya ak yëkkati l'islam ta taxaw ci temm def ci sunu lepp loolu muy sunu warteef nee na loolu moom lan war a tal bala noo tal yoon yi nañ tal l'islam bu l'islam dundee yoon yëpp dund kon nag kon nag il faut nun nun nun ñii di ñooñ sëñ Tuubaa nun ñii di ñooñ sëñ Tuubaa il faut nu jooyal jooyal boole ko ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi il faut nu jooy waaye loolu lépp nag waaye loolu lépp la ndax suñ boroom mooy def mooy dindi. te xam na ni muy def. te xam na ni muy def. te loolu lépp moo lépp moo ma. kon. lu nu jooy jooy jooy. lu nañ far sunuy rongoñ. nañ far delloo lépp ci moom. loolu delloo lépp ci moom. buñ delloo lépp ci moom. buñ delloo lépp ci moom. dellusiwaat ci sëriñ bi. dellusiwaat ci sëriñ bi. góorgóorlu bu baax. góorgóorlu bu baax. fas yéene yéene koo sagalal lislaam. ko lu li ñu koy defal lu mu néew néew. li ñu koy defal lu néew néew. sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. nag. sagalal ko lislaam nag. mooy fonk lislaam li mu digle. li mu digle. ñu di ci góorgóorlu suñ kam kàttan. li mu tere. di ci góorgóorlu góorgóorlu suñ ci daw ko. al imtisaal wal ijtinaab loolu loolu mooy mooy mooy mooy lislaam mooy lislaam la ca dolliku la ca dolliku moo dig taalibe moo dig taalibe ak ak taalibe mooy makaarimul axlaaq rek mooy makaarimul axlaaq rek kon kon nan góorgóorlu bu baax bu baax ci fonk lislaam ji suñ kem kattan suñ kem kattan la ca la ko dale ca gone ga nga xam ne jullee nga koy door war doog a war ak mag mi nga xam ne daanaka mënatu ko ak mag mi nga xam ne daanaka mënatu ko ak ñi ci diggante bi ak ñi ci diggante bi ñun ñëpp nan góorgóorlu nan gën a fas sagalal sëriñ bi lislaam nañ fonk julli mooy waxtu yi juróom gën a fonk ponk yi gën a fonk ponk yi loolu loolu ko sàggane buñ ko caaxaane buñ ko caaxaane buñ ko bu nu war ci góorgóorlu suñ kem kattan suñ kem kattan fonk suñ diine fonk suñ diine nan ko fonk. nan ko fonk. fonk sunu taalibe nag. fonk sunu taalibe nag. ndax ak taalibe bu amut. ndax ak taalibe bu amut. dana dana jafe. dana jafe. lislaam am lim bëgg. lislaam am lim bëgg. kon. kon. nañu góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. ci njub. waaw li ko dalee ci gone yu ndaw yu tuuti. ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg tële. ba ci mag ñi nga xam ne ñi bëgg a tële. kenn ku kenn ku ne ci nun xool boppam. jéem a teg tànkam jéem a teg tànkam ci siraatal mustaqim. loolu mooy teg loolu mooy teg tànkam ci njub rek. nag njub mel na ni ñaari mbubb la. ñaari njub la. ñaari njub doomu aadama. njubug nga xam ne. gi ñaari ñett buñ dee buñ dee fee ñaari. boo leen ñaari jëmm buñ nee fee. mën nga caa xàmmee ki jub. nga caa xàmmee ki jub. ak ka dëng. ka jub nag. ka jub nag. day jariñ boppam. day jariñ boppam. ndax ñëpp dañ koy xoolee jub googee. ndax ñëpp fonke jub googee. ñëpp mën koo jariñoo. ñëpp mën koo jariñoo. njubug yàlla nag. mooy def ndigal bàyyi tere. mooy def ndigal bàyyi tere. li yàlla digle lépp. di jéem a ñu di ko jéem xam. di ko jéem a def. di ko jéem a def. li yàlla tere lépp. li yàlla tere lépp. ci biir ak biti. ci jéem a xam. ñu di ko jéem a xam. di ko jéem def. di ko jéem a def. lu dul loolu. lu dul loolu. sàggante lay indi kon nan xool suñu bopp. kon nan xool sunu bopp. gone gu ndaw gi. ndaw gi. waxambaane wi. ña top, topp top. ca mangi, ba ci mag ñi ba nah, ci mag ñi dañu kenn ku ne na xool boppam kon kenn ku ne na xool boppam na xool boppam ci ci ci njub na xool boppam ci njub ci njub xool boppam ci lislaam xool boppam ci lislaam xool boppam ci makaarimul axlaaq xool boppam ci makaarimul axlaaq bala ngaa am am taalibe bala am amuk taalibe bala taalibe ngeen sotti bala taalibe ngeen sotti bala moo rafet bala moo rafet fokk ñu jëfe makaarimul axlaaq faw in fokk ñu jëfandikoo makaarimul axlaaq sun borom ci coba rem. moo nu natoo moo nu natoo def ci ñun ay jikko yu baax. def ci ñun ay jikko yu baax. def ci ñun jikko yu bon. waaye la jëkk a jóg. mooy fas yéene gën a nasaxal jikko yu yi. bon mën a jëfandikoo jikko yu baax ba yi. loolu yi rek la yomb na lool. julli jafewut. waaw góorgóorlu nag ba di ko jëf ci waxtu ba di ko jëf ci waxtu di ko boole laab ponk yi itam. ponk yi itam. la la la koy fonk lépp. waaw la koy fonk lépp. mu mel ni waru gar. mu mel ni weeru lu mel ni weeru tedd wii nu jóge. mu mel lu mel ni weeru tedd wii nu jóge. ñu fonk ko nañ ko war a fonk. ñu fonk ko nañ ko war a fonke. loolu mooy lépp. loolu lépp. loolu lépp. sëriñ bi noppi na ci. sëriñ bi noppi na ci. fàggul nañu lépp. fàggul nañu lépp. bàyyiwul dara. bàyyiwul dara. wax na. wax na. bind na bind na. jëf na jëf na. kon. kon amuñu wenn lay. amuñu wenn lay. buñ mënul dara itam. buñ mënul dara itam. Ah, waaye li mu defal. waaye nan ko sagal. nan ko ko sagalal fonk nan ko sagalal fonk lislaam. nan ko sagalal defar suñuy jëmm. nan ko sagalal defar suñuy jëmm. dafa nañ ko sagalal nañ ko defal suñuy jëmm defal suñuy jëf bu doon mënut dara itam war nañ koo sant sagal googu mu sagal lislaam yi mu sagal lislaam moom lañ koy mën a sante noon lañ koy mën a la demee nan góorgóorlu bu baax bu baax tënk bàngu nan góorgóorlu bu baax waaw ñoo ngi sonn suñ bopp nanuy soññ suñ bopp di soññ sunuy bokk sunuy bokk jullit sunuy bokki taalibe sunu njaboot nañ leen di soññ ginnaaw buñ soññee sunu bopp di leen soññ te nekk ca lañ leen di soññe te nekk ca lañ leen di soññe sunu kem kàttan nan ko def nan ko def buñ ko defee dañuy mucc dañuy mucc adduna bari nay gàllankoor lool adduna bari nay gàllankoor lool ak ni mu xewee ci jam li làmm yi wax ak ni mu xewee ci li làmmiñ yi di wax mu di ay jafe-jafe jafe-jafe yi du dara dara ci am. dara du ci am jafe-jafe ju am mën a mën waaw jafe-jafe ju bu mën a am. noo ko teg suñu bopp noo ko teg ku nekk ci la war nga war a ne. jafe-jafe du am. jafe-jafe du am. njàmbat du am. njàmbat li. njàmbat li. feeg nekkuñ ci leen war a nekk. feeg nekkuñ ci war a ne. njàmbat yi duñ ci jóg. njàmbat yi duñ ci jóg. te suñu musiba rek duñu jëriñ dara. te xarab suñu borom dong la ñuy indil. kon kon nan jéem a nekk ci leen war a nekk. ci li ñuy mucc ci dundug adduna gii. ci téq téq yi ci am ak gàllankoor yi. jafe-jafe yi ni ak jafe-jafe yi. ak tax jàmbat yi bari. ak yi tax jàmbat yi bari. dara duñu ci musal. dara duñu ci musal. loolu fonk fonk fonk fonk diine. lu dul fonk suñu diine. góorgóorlu ci njub. góorgóorlu ci njub. ci makaarimu góor góor góorgóorlu ci makaarimul axlaaq loolu lépp nag nan koy def te yàlla tax te yàlla tax mooy tax mu am njëriñ mooy tax mu am njëriñ buñ ko def ngir dara nañ ko def te yàlla tax loolay tax mu am njëriñ nan góorgóorlu bu baax xoolaat suñu bopp xool fi jamono ji toll islaam noonu ma ko waxee fanweer yu tegal rek wallaahi mu lëndëm kërëj gaa yi yàlla jàmbaar yi rek ah benn benn yu baax yi ak benn benn yu baax yi. ñoo ñoo ñoom ñoom la ci. ñoom rek ci rëcc. ñoom rek ci rëcc. wallaay wallaay islam googee yenn te gars yu baax yi rek. tumuranke googee. tay ji lepp fofé l'islam juddo fofé l'islam juddo xew-xew yang fay am xew-xew yang fay am rayante rayante bo xam teguñ ko fenn ba ci bisub tey bii ña nga ca te teguñu ko fenn te teguñu ko fenn yàqu rek eh, eh, yàqu rek ya-, leen ko teg moo leen ko teg nañ góorgóorlu bañ a yàqu nañ góorgóorlu ci bëgg defaru nañ ci bëgg defar dara duñu ko may dara duñu ko may lu dul ci ndigal li rek dellu ci ndigal li rek dellu ci li yàlla bëgg dellu ci li yàlla bëgg dellu ci li yonent bi bëgg dool dellu ci li yonent bi bëgg loolu lépp nag loolu lépp mi ngi sëriñ bi mi ngi ak sëriñ bi noppal nañ ci noppal nañu ci nan xool sëriñ bi rek te jéem a jàngaat sëriñ bi nan jéem a jàngaat sëriñ bi di ko jéem a dund buñ jàngee buñ xamee sëriñ bi dund sëriñ bi dund sëriñ bi malaayika yi la ñuy rawanteel malaayika yi la ñuy la dëgg ah, nee na noo ngi sant nag noo ngi sant bu baax nak di sant serigne bi nam ko waxe won ci pagouté bi nga xam fagu nonu ko misaal mi yëpp misaal mi lépp man na delu ci man nañ ko gisee man nañ ko gisee ci lépp lépp ci cheikh Mouhamadou Fadil Mouhamadou Fadil ci cheikh Mouhamadou Fadil mii ibnu cheikh Abdoul Khadir ak cheikh Mouhamadou Fadil Male di ibnu cheikh El Mbousso bii ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ñooñu exemple lañu exemple lañu ci lépp ci lépp ci lépp diine ci lépp sëriñ bi ci lépp sëriñ bi. exemple lañu exemple lañu. tey tey ñu ngi ci ànd ak seen i yoo xam ne. tey it ñu ngi ci ànd ak seen i morom xam ne. ñu ngi ci seen wet. ñoo xam ne. ñoo xam ne. mën nañ leen a wóotu. mën nañ leen a wóotu. ànd koog ñoo xam ne nag. ànd ñoo xam ne nag. ñoo yor diine ji. ñoo yor diine ji. yilimaan a ngi nii. yilimaan a ngi nii. yilimaan dara ba ngi nii. a si nuwaab yaa ngi nii. nu ñi ànd ak moom nuwaab ya nga xam ne fu ñu mën a taxaw ñooy taxaw mën na. loolu nag sama bokki taalibe yi lay lay lay lay soññ. nee na loolu nag mi lay soññ. loolu kat sëriñ bi moom jàkkoon na jàkkoon na dëgg la nee na sëriñ bi nag jàppandal na mbiram. li mu bëggoon am na ko. kon ku ci bëgg bokk. kon ku ci bëgg a bokk. da ngay xool sa bopp. jëmale ci sa lépp. jóg def ko ci muy sa yitte. muy sa yitte. waaye nit ki bu. looy dem ba nga xam ne adduna rek mooy sa yitte sa bopp rek kay sa yitte. te mënaloo sa bopp dara. adduna mënaloo dara. te taloo lu dul adduna. taloo yàlla taloo alaxara waaw. gëm boo gëm dëgg. nee na dafay dafay wax ne gëm dëgg. bu amee il faut que nga soppiwu doxin Non, rek la jërë ngeen jëf ak wàlla jërëjëf tàll waaye nekk na tàllal na ñëpp talal. fu na talal. di la delloo bi di la négee cant gu rëy. di la négee cant gu rëy. gun la ameel. gun la ameel. xam nañ sa doxin yëpp. lépp ñun ñëpp teg xam nañ sa doxin yëpp ndax lépp teg nañ ci suñu bët. waaye li nga xam ne nag amuñu amuñu warugaru bañ la cee sant. waaye li nga xam ne amuñu warugaru bañ la cee sant. mooy li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. am na yitte ju fi nekkoon. joo xam ne mel ni mënul woon ñàkk ci dëkk bi. joo xam ne mënutoon a ñàkk ci dëkk bi. yàlla mu ngi ko jaarale ci sa loxo. yàlla mi ngi ko jaarale ci sa loxo. ba mu sotti ni ñu ko bëggee woon. ba ni ñu ko bëggee woon. loolu mu ngi fi mooy titre foncier Touba. leneen loo xam ne. ak leneen loo xam ne. bëggoon nañ ko ca ndakaaru googee. bëggoon nañ ko ca ndakaaru googee. ndax dëgg la ndakaaru mooy capitalu Sénégal. ndax dëgg la ndakaaru mooy capitalu Sénégal. loolu nag moo tax eh, ba loolu moo tax bi sëñ bi sóoboo ngir liggéeyal boroomam. ndakaaru googee. ndakaaru googee. foofee la jaar jaarin wi di jaarin wu tiis. jaarin wu nag di jaarin wu tiis. loo xam ne nag du jóg mbukk ci sunuy xol. loola. loola. ñu bëggoon fa firnde ju réy loolee ñu bëggoon fa firnde ju rëy. ndamal Serigne doon. loo xam ne ndamul Serigne Touba lay doon. ñëpp dañ ci mën loo xam ne ñëpp danañ ci mën a teg seen bët. muy liggéey loolu mooy liggéey boobee di jumaa joojee ñu def ci Ndakaaru. loolu ku ne xam loolu ku ne xam na taxawaay ba nga xam ne taxaw nga ko ci. foofee mu nekk rawati ca. foofee mu nekk nag rawati ca. loolu muy lu waroon a jafe loolee yàlla jaarale ko ci sa loxo muy itte ju mat sëkk akuk dogu ba loola am alhamdulilahi rabbil alamin mel na ni egg na ci nan ko bëggee woon te incha allahu septembre bii di bëgg a ñëw 27 septembre. le 27 septembre. dajeeg ajjuma ci lañ ko bëgg ubbi. loola nag. loolu nag ndamal sëñ Tuubaa lu rëy la. waaye wax dëgg yàlla am nga ci wàllu rëy. ndax yàlla moo ko dogal. waaye ci sa loxo la ko jaarale. kon kon ñaari yooyu. yëpp sax. yi ci des yëpp sax. li ci ci am warugaru mënuñu ci ndax li nga xam ne am nañu ci warugaru mënuñu la cee ñàkk sant. moo tax moo tax. bi nga waxee ne moo tax bi nga xamee ne wax nga ne da ngay ñëw tey siyaare si. ma xalaat sama bokk yu baax tax ma xalaat sama bokk yu baax yii. dëgg la kilifa yi yoon dëgg la kilifa yi yoon wi yëpp dajewuñ fi. tànn naa ñoo xam ne. waaye tànn naa ñoo xam ne. bi ngeen leen bi ngeen leen fi fekkee. bi nga leen fi fekkee. mel na ni fekk nga fi kilifa yoon wi yëpp. mel na ni fekk nga fi taalibe yi yëpp. ndax ñii fi teew ñëpp kenn ku ci ne. kenn ku ci nekk yoon wi rek moo di ak dundam. te xam nga doxinu yoon wi. gannaaw ci ay cant lañ la ameel. gannaaw ci ay cant lañ la ameel. nu sàkk lim boo xam ne. danañ mën a wóotu kilifa yi. wóotu bokki taalibe yëpp. ñu seereel la. cant goo xam ne. yoon wi ameel na la ko. ci yaari yëf yooyu. mën nañoo yem ci yooyu rek. xam ne li ci des waaye lii moom. amuñu war goru bañ la cee sant. kon nag bokk yaa nii. yoon waa ngi nii ñëpp sant nañ la gërëm nañ la ci taxawaay bi nga taxaw ci Touba ak taxawaay bi nga taxaw ci Ndakaaru ak liggéey boobee toll ci sotti loolu ameel nañ la ci cant gu rëy kon maa ngi ànd ak bokk yi ku ni kilifa yi mel na ni kilifa yeeg taalib yi yëpp daja nañ ñu ngi lay seeral cant goo xam ne yoon wi ameel na la ko loolu mooy kàddu yi nga xam ne laa bëggoon a wax ànd ak sama bokk yi seereel la ko ah mooy li nga xam ne moom lañ la doon négee boo ñëwee nga xam ne ameel nañ la cant gu wér waaye sant nañ la cant gu wér gërëm nañ la ci taxawaay boobu sa diggante ak sëriñ bi loolu mooy li nga xam ne amoon naa ko ci lu ma la war a wax sant ko lool nag ci sant la lool nag ci jotaay bi. li nga wax lépp dégg wax lépp dégg nañ ko. mu xam nañ ne yéene ju mat sëkk la. liggéey bu rëy la itam. liggéey bu baree baree la itam. loolu it dégg nañ ko bu baax. loolu gën naa dalal suñu xel. ci li nu bëgg ci Touba. gën naa dolli sunu yaakaar tam gën kon jërëjëf kon jërëjëf. nga wax di dégg nañ ko bu baax waaye nag dama baaxoo lépp lu may def dafa am ñu ma waxal. loolu rek la. waaye déglu nu rek. bi ngay ñëw nag fekk na sëñ atu mii nga xam ne moo nekk ci bopp bu Tarqiyyah teraanga yëpp moom laa ko moom laa ko tegoon ci loxoom yow nag mi ngi ci sa coobare teraanga yëpp a ngi fi fa nga daan dal itam ñu di la fa teral mhm, bula neexee teraanga yi ñu yóbbu lépp foofu nga dem foofu bu neexee ñu fab lépp andil la ko nga yóbbaale ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii di talaata dëppook juróom-ñeenti fan ci weeru safar di juróom-ñetti fan ci weeru octobre atum 2019 Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides dikk na nemmiku si liggéey bi nga xamante ni daara Hizbut Tarqiyyah mi ngi koy def ànd ko comité d'organisation bi ci waajal màggal gi fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké doon mbégte mu am solo moo xamante ni dong yëpp ak bokki taalibe yi nga xamante ni gis nañu ñëw sëñ bi yëg ko gàttandu ko teeru ko kuréelu xaside yi teeru ko ci buntu euh, exposition bi gunge ko ànd ak moom agsee nag jëwriñu daara isbu tarxiya di Serigne Atou Diagne di commissaire des grandes expositions moo ànd ak moom won ko liggéey bi banqaas yi nga xamante ni waxtaanee nañ ko ren lenn lu ci nekk mu indi ci ay leeral xamante ni ñooy waa raw Rawdu Rayaahiin te sëriñ bi féetale leen lu jëm ci wàllu liggéeyu université bi ñoom itam barab bi ñu exposé ñu def ko. àggee nag ci la sëriñ bi agsi fii ci mbaar mi am kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko fa ginnaaw bi nga xamante ni sedd na liggéey bi rafet rafetlu ko màggam bi nga xam ne tey jii l'islam yëpp sañ nañoo feetu ci 18 safar fukki fan ak juróom-ñett kenn ku ci ne wóor na ne sa jëng yi nga xamante ne moo doxoon sa digganteeg àgg ci suñu borom sëñ Tuubaa moom moo ko lijjanti kon noo ngi sant bu baax ci sa dikk gi fii ci exposition bi nga xam ne àdduna sépp mën nañ cee jàngee ñu xam ne sëriñ Tuubaa mbiram mooy law xalima naasu maahu naa la baadaroo ilaa talabihi walakin lama jahiloo talaboo xayruhu ku xam mbirum sëñ tubaa doo wuti ji lenn lu moom lu waay di fàggu di ko wut di ci sonn am sëñ tubaa ko gën a wóor gën koo matale gën koo sotti ndax njëriñal tey ak ëllëg lay doon te day ànd ak bilaa aafatin wala kadarin wala stidrajin wala cheyin yasuhu fil xaali wal maali loolu sëñ tubaa rek ko am jërëjëf Mbàkke yow mi ñëw fii mel ni yaa indi tampon bi nga xam ne moo tax ñu xam ne lii nuy def sëñ tubaa nangu ko kon ci turu suñ jëwriñ sëñ aatu ñoo ngi lay sant dina la cant sant cant koo xamante ne lott nañ ci ci ci ci ci ci defee ko ni mu waree waaye nag na la wóor ne noo ngi yeesalaat sunu lépp ci bisub tey ci ni sëñ Tubaa defoon la woo xayaat yi wa mawti yi wax dawoo wala woo sirri wa jëhri wa yux nii nii bi alaafi sunu dund ak sunu dee sëñ Tubaa rek koy moom dootuñu yëngooti ci dara lu sëñ Tubaa kon dimbali ñu wërsëgal ñu ak xam ba duñu teg suñu tànk fu ñu ko war a teg waaye fas nañ yéene kenn duñu moom ku dul bii nii la ko sëñ aatu waxee bu la neexoon lépp nga jël ko maye ko yaa ko moom lebuñ ci lenn ñaanuñ ci lenn saraxuñ ci lenn danoo dajale buntu tawféex yi nga ubbil ñu ko mu jàpp ni lool lu waay yóotu jot ci ñu liggéey ko ba mu agsi nii kon ñoo ngi lay sant di ñaan nag ñu amaat barab yu gën a yaatu ba nga xam ne exposition bu ñu jógee ci stade bi fukki hectare ñoo ngi lay ñaanal yoo xamante ne gaaral rek day leeral mbirum sëñ Tuubaa ku dugg sa woto dugg ci stand bii dangay ngay duggaat sa woto demaat ci beneen stand lépp doon loo xamante ne day jéem a leeral mbirum sëñ Tuubaa ndax moom moo wax ne ah moo wax ne nazaxanii minal waraa baaxil xadiim allamahum bi na annanii abdul xadiim moom bokkul ci bokkul ci doomu aadama yi suñu borom ko sàkk moo xam lu mu doon waaye ba mu ko sàkkee ba noppi nag suñu borom moo ne man dinaa xamle kan mooy sëñ kon xam le sëñ tubaa ab jaam lott na ci waaye ndokk bi ko suñu boroom sa sol boppam kon sëñ tubaa àdduna sépp nañ xam mooy kan bilaa idan aw alami dina dimbali ñëpp dina ñoddi ñëpp dina teg ñëpp ci yoon te kenn du sonn te xaddu damm jërëjëf Mbacke. sëñ Abdou Lahad waxoon nañu ne. nee na sëñ Abdou sëñ Abdou mu mu baax ma sa wajur wu tedd ma waxoon nañu ne ñu. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. bi xëy see ci moom. bi xëy see ci moom. mu mu ne ah nuyooguñ ko mu ne xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taïya. nu nuyooguñu ko sax mu ne xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taïya. ma ne ko déedéet Mbacke. sëñ Atou mii ne ko déedéet Mbacke. mu ne ko àgg naa ak yéen ci su ngeen bëggoon def lu ko génn dootu leen ko mën. mu ne àgg naa ak su ngeen def lu génn sëñ Touba leen ko mën jërëjëf Mbacke donc kon defe naa lii moom mooy kaddu yi bu bëtoon une seconde képp sax doyoon na àdduna sépp a ngi koy suivre ñu ngi ko def en direct dongo yi di ko bëggee di ci sonn di ci di ci soññ di yëg ne fi ñu toll ni yoon wi yeesaat na laataa waxtaan waa jeex keroog waaw neena laataa waxtaan way jeex keroog mu wax ni mu wax ne xam ngeen lu ngeen doon ci nun xam ngeen lu ngeen doon ci nun ma ne ko déedéet mu ne ko déedéet mu ne ay wéttal ay wéttal ngeen mooy du mooy sësooy mbagg mbaa yaakaaru leen ne wéttal mooy ne xaw ma ci dara mu ne dara de mbagg mu ne nag du caageen sësooy mbagg mu ne du caageen sësooy de wéttal mooy wéttal mooy ne bu fekkoon sësooy mbagg la nee na nee na bu fekkoon ne sësooy mbagg la takkandeer ak borom a ànd takkandeer moo borom ñoo ànd waaye wéttaliwu ko waaye wéttaliwu ko ne kon wéttal mooy mooy. bokk bëgg bokk bëgg. bokk pexe bokk bokk yéene bokk yéene. bokk melo bokk melo. bokk fu ngeen jëm bokk fu nii ñu mel ak yow nii ñu mel ak yow jërëjëf Mbacke. mu ne waaw sëñ Ahmadou Badawi mii lay waxal nee na ak ñoom ñooñu <laughs> suñu kilifa yi tedd yi. nee na li am solo rek moo di tawféex ndax ñoom ñii moom si ba mu ñu xamee moom is ci la ànd ak ñun. boobu dama na boobu dafa daan wax ne. gëmewu leen. gëmewu ma leen. mu ànd ak ñun ci loolu. mu ànd ak ñun ci loolu. ànd ak ci loolu. ànd ak ñun ci loolu. ba am yàqin ci ñun. noonu digganteem ak ñun noonu la demee. nee na lépp sëriñ bi la. na waxoon na ne sunu ànd bii noog moom. nee na du nundu moom nee na pàgguteefu sëñ tubaa rek la nee na sëñ tubaa lu mat a fàggu fàggu na ko tey jii ak ëllëg nee na jubóo na ceeg boromam nee na nee na buñ ko gisul nee na boromam a ko nekkal bu ñu ko wooyee boromam mooy wuyu nee na lépp la nee li ci am solo nag nu xam ko di ko jéem a xam waxtu ne. nee na du doomu aadama mën a xam sax. waaye nag doomu aadama am na lu ko yàlla cere la mu ko cërale nag. na ca def kem kattanam. xam sëriñ bi. nee loo ci xam rek. mu nekk njëriñ la. nañ ko jéem nañ ko jéem a dund nag. suñ ko jéemee xam ba noppi. nañ ko jéem a dund. bu ñu ko bu ñu ko dundee rek. neen taxe àdduna ak àllaaxira ngoog. da fii di ko dund. da nee na boo demee nag fekk fa la ko taxoon a jóg. neen noonu rek la demee. neen sëñ bi noonu rek la demee. kon sant sant yàlla rek lañu war a def. te xam li ñu am nag. nee na xam ngi weesuwul li mu wax rek nañ ko jéem a xam di ko jéem a dund nee na bu ñu ko dundee rek nee na alamul islaam yëpp ci benn kuréel nee na benn kuréel dootu la mën a kawe bu ñu dundee sëñ Tuubaa bu ñu dundee sëñ Tuubaa benn kuréelu lislaam benn kuréelu lislaam dootuñu mën a kawe dootuñu mën a kawe kon nee na kon noonu rekk la demee. sant bu baax nag. jërëjëf <laughs> ko waxee woon rek ñun dañoo am tawfeex <laughs>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 kooku ay sëñ bi dañuy jéem a xam rek neen sëñ bi weesu na foofu li gën a yéeme li gën a yéeme neen li ci ci doomu aadama mën a xam neen li gën a yéeme ci lu doomu aadama mën a xam mooy sëñ bi ñi mu bokkal boromam ñëpp nee na sëñ bi ñi mu bokkal boromam ñëpp nangul nañ ko nangul nañ ko ndax dañoo jox seen àq ba mu mat sëkk ndax daf leen jox seen àq ba mu mat sëkk la ko boromam def la ko suñu borom def boroom def ko ci moom. boroom def ko ci moom. ñu nangul ko ñu nangul ko ko. koo ci a xam a xam rek. na dañuy jéem a xam sant rek nu war. la ca dara bi nag. waaw nii rek nii ko ci moom. waaw ca dolli ko nag mooy lii rek. yitte jëpp ñu ko ci moom sëriñ bi rek. li li doomu ci xelam ci ci ci lu mu bëgg ci boppam. ci yiw yiw ak nag lépp nga ci dund sëñ nee li doomu aadama di bëgg ci boppam lu mën doon ci yiw àdduna ak alaaxira lépp mi ci dund sëriñ bi rek. dundee sëriñ bi rek. bu dundee sëriñ bi rek. yaar yooyu dara du ci manqué. yooyu dara du ci manqué. kon loolu ci am solo mooy loolu. kon li ci am solo mooy loolu. nañ góorgóorlu bu baax bu baax. nañ ko def ci sëriñ bi. di a xam di ko jéem a xam di ko jéem a dund jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. yéen doo di ko mën a ñàkk a wax ak yéen. <laughs> ak ak ñi ñi ñu bokkal ñi ñu bokkal doxin bi. loolu loolu moo indi wax. Mhm. waaw loolu moo indi kon day dellu si waat nag mhm. dellu si waat nag mhm. ci ñun doomu aadama <laughs> ñun ñëpp koy foofu lañ bëgg rek nañ nekk foofu ñun ñëpp na nga foofu ña nga foofu rek. donc yóbbu yóbbaale nu foofa rek. li ma wax waaye ginnaaw am nañ ko ba noppi nag lu lu gën a xam sëriñ bi gën a yokk gën a gën nga gën a dund gën a yokk loolu nag xam-xam rek am a dimbali moo ci mën a dimbali loolu moo tax euh, xalaat ji li xam ne toog fa rek lu ci ne bàggute fi sëriñ bi yëpp lu ci ne day si dox ci mhm. nag alhamdulilah toog fa bàgg ci ma dësi bii mhm. moo saison ci li nga xam ne wane woon na ko li mu mënta ñàkk loolu moo tax gisuma lenn gisuma dara ci saa yi lu dul nag ñu ko jóg ci xam-xam tam ma ma ma jëm jëmal ko nag ci madrasam boobu mboobu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

sëñ Tuubaa xajul ci daray adduna waaw mhm. <laughs> kon ñi ngi ci daara ji li nga xam ne moo waral daara ji est Amadou Bamba moom laa ko dénk ak ñi ko ñàkk ak nattangoom ko bokkaloon ni bu bëgg dem ñi nga xam ne kenn sonal leen ñoo sonal seen bopp ci ci rapport mooy ñu tudd ñu jàng ñu jàng kenn sonul leen ñoo yàlla dañoo am tawféex am jom amu fit di jàmbaar amuk dogu teg seen tànk seen siraatal mustaqim ñooñu sëñ Tuubaa ni mu ni mu ni mu ni mu fàggoon dara ji rek ni la fàggoo ñooñu ñoo ànd ñoom pàggu te fa sëñ Tuubaa rek la ñu ndax koo xam ne sëñ Tuubaa mi ngi ci yow nga am yittiwu yittiwu yittiwoo diine yitte woo xam-xam kooku sam naa la dana du du yomb loolu nag ñoom ñu ngi nii di doon jóg rek waaye alhamdulilah rabbil alamin sama xel dal na ci ñoom li ñuy wutti mën nu ko ñàkk tey ëllëg mooy sëriñ bi ñoom nag sama xel dal na ci ñoom ci liggéey boobu liggéeyu xam-xam boobu moom loolu noonu rek la daara ji ak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 jaaxliwuma dama daa dama leen dama leen dama leen nangul nit nii na nag fi waaye fi nga fi ngeen tolloo man booba mooy gëmiwuma leen bi ma demee ba xam ma am yaqin nag ma ma ma gën a fedd sama saay gën a ànd ak yéen ndax noonu laa ko defee wala defee ma ko waaye yéen yéen yéen yéen wéy leen rek sëñ Ahmadou ñoom laay waxal yéen waxuma ak yéen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 bu yow mii waxoon naa la ko loolu bu bu ci am kumpa lu lu ma lu ma war a yëg rek naa ko yëg lu ma war lu ngeen bëgg rek lu ngeen bëgg te mënu leen ko ñàkk rek wax leen ko lu ngeen bëgg ci liggéey bii taxawaay bii ak nu ko bëgg lu ngeen ci bëgg te mënu leen ko ñàkk wax leen ko ma ànd ak yéen ba jeex tàkk non sëñ sëñ Muntaxa Jaata yaa ngi yéen ngi dégg ñëpp ngi dégg ñëpp ngi dégg waaw loolu fii fii moom day ma fi moom nan nan nan nan na fi nan na nay carrefour bi sëñ Tuubaa moo moom dañ dañ fa daa yëmul fenn daa yëmul fenn lu nekk ñu nekk ngi ci classe bu nekk ngi ci waaye ñun ñëpp ñëw sëñ Tuubaa lañ yoon kenn nekku ci waaye liggéey bi nag dafa am dox dafa dafa liggéey bi dafa am nu ñu koy doxalee waaw liggéey bi. dafa am nu ñu koy doxalee waaw waaw liggéey bi moom dafa ñëpp xol bu sëñ Tuubaa xol boo xam ne sëñ Tuubaa nga nga ca xol ba. kooku am na tawfeex ba noppi. am na tawfeex ba noppi. waaw waaye nag liggéey bi moom. dafa am nu aw yoon. yoon bi mooy.

ginnaaw nag euh, bi nga xamante ni nemmeeku na liggéey bi def waxtaanu soññe wu am solo ci la ñaanal ñëpp moom Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ni ñu ko defee woon nag bi muy dikk ñu daare ji ànd ak kuréelu xasida bi ak mbokk yëpp sëriñ ba Badawi ibnu Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké waa Rawdu Riyaahin ak mbooleem mbokki taalibe yi fi teew gunge sëriñ bi ba ci biti ànd ak moom ci mbégte mi nga xamante ni indi na ko ci barab bii di firndeel ne liggéey bi lu sëriñ Tuubaa nangu la ñu ko ñaanal nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñaandu ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waxtaan rekk laa ci jublu waxtaan woo xam ne dañuy fàttaliku ndax nu gën a mën a yokk sunu liggéey lépp itam dañu koy delloo rekk sëriñ bi suñu aatu ak bokk yu baax yi mu àndal li ñu def jëru sax wax ndax jëf ji jiit jiit ànd nag lépp waaye nag nu waxtaan rekk ci sëriñ bi Euh, euh, yow Cheikh Mahamadou Bachir ak euh, Cheikh Saleh mën ngeen fi teewal mboolem ku ñuy tudd ci sëriñ bi yéen leen fi teewal ndax jataay bii day loo xam ne ku ñuy tudd ci bi rek waroon na ko teewe waaye nag ginnaaw noo ngi fi ngeen yéen ñaar ñi ngeen wettali ma ci ak bokk yi ni bokk sëriñ bi ñeena ngi fi kon mel na ne jataay bi ñëpp a ko bokk ñu tuddi sëñ Tuubaa nag ñoo ñoo ñoo si jiitu eh, ak bokki bokki taalibe yii eh, nga xam ne tey ñoo waral jataay bi eh, mi ngi tàmbalee ci ko te lépp sëriñ bi lay dellu ngeen seere ne ngeen seere sama digganteeg suñ bokki bi yi sama digganteek ñoom sama digganteeg ñoom du man du ñoom lépp sëriñ bi ni ni ni man dox ànd gi ànd maa ngi ñoom déggoo dox ci biir ak ci bitti ba ci jataay bii loolu du man du ñoom sëriñ bi kon ni ma ko mën a tudde mën naa ko tudde mën naa koo tudd ci ñaari tur ànd giima ma ànd ñoom ba ci jataay bii fa mu ba ci jataay bii ca ndorte ba ci jataay bii loolu ci wàllu sunu borom dafa mel ne sunu borom da cee namm gën feeñal mbirum sëriñ bi loolu ci wàllu suñu diggante ak sunu borom bu sun digënté ak sëriñ bi nak dafa melni sëriñ bi da cee jublu feeñal ci bopam waxtaan bi mën naa gàtt non rek la demee du man du yéen sëriñ bi rek la amul menn xel mu mën a xalaatoon ne سوا دقين تيجين لا نعكس جثايبي أول من نخل مسخ جد من يكنن من نخل مسخ خلاص جثايبي ده نعم سوا دقين تيجين من تنك da no am tawfex juray rek nok ñu bokk serigne bi ba mel dañ ci doon dara tawfeex juree rekk la seen yoon nekku ci sun yoon nekku ci lépp sëriñ bi xool leen ko bu baax fanuma fa tàmbaleeg ñoom te kenn wuuma fañ ko tàmbalee ñoom te kenn santu leen ko diir bu gàtt lu daje ma ak ñoom ànd àndi du rafet bi nu ànd ba ci jotaay bii loolu loolu loolu yoonu xelum doomu aadama nekku ci loolu loolu nammeelu suñu borom la bu mu nammal sëriñ bi loolu jublu sëriñ bi la bu mu nammal boppam dong la demee dama koo gis gisee nu leer ne noonu rek la ma wëlbati ko gisaat ko nag dana euh, karaama jëf ju rëy ju baax mënu ko weer loolu ma ne na goo tuddee ne karaama la ñu bokk ci karaama yi sëriñ bi dégg na ngeen déglu seet li ma leen wax li ma wax bu baax baax baax noonu rek la demee ana li ci des lu ci des sant bu baax a baax a baax boo xam ne mënee su ko wax ci làmmiñ mënee su ko feeñal ci xol xajul ci xol ca googu cant la war a def la ca dolliku mooy yeesal sunu jaayante nun noonu mboolem ku bokk koo xam ne euh, sa sa sëñ Tuubaa mi ngi ci sa xol waxuma laa nag ka nga xam ne dafa dafa dafa jaayante dundam gépp mu jaay ko sëriñ bi te yàlla tax sant cant gu rëy ak yeesal sunu jaayante ba mu mees peq fas ko koo wii di ko dund ba kenn ko ne ci noonu wàccub liggéey ñanu wutu ci ci lii nekk ca loola ba wàccub liggéey ña leen wuutu nekk ca loola muy demee noona ba bis nañ ci lépp di ndemal sëriñ bi نون رك لا دمي شيخ محمود بشير سيدي صالح ما لي نسير الكادو يي خانا لول صح دا دار مولو شي رساتي خانا خانا خانا خانا سبق جنتو بوب ak yeen looloo ci des sama cantu bopp ak yéen nag ma ngi jël sama biiru cant sama diggante ak loolu rek laa ci mën a dolli kon nag nan dem rek maa ngi labiré di soññe ci képp koo xam ne Sëñ Tuubaa ngi ci sa da nga yeesal ak jaayante woon gannaaw lépp jëm ku jëme ci sëriñ bi te sëriñ bi moom mu sa jëm ci dara lu dul borom xanaa ko joxe ne yonent bi mu wéy ci ndigal ba ndigal la la ca boromam bëgg mu mu defee ko ni sang bu baax ba mu defee mu liggéeyal ko ba lam ca bëgg mu defee ko ni loolu rek moo di dundam loolu nag mooy suñu ndona buñ ko xamee ak buñ ko xamul jublu ko suñu lépp suñu kem kàttan loolu bokkoon ci li yi ñu gën a jig ndax dañuy defaral tey defaral nu ëllëg kon nanu góorgóorlu bu baax rek waaw nanu le bu baax rek sunu kem kàttan kenn ku ne ne bu xëyee no gum noyyi na ca na ca na ca fas soññu boppam jëme ci yoon bi rek yoon wa rek rek la li ci des wax loolu laa ci a bi bi bi dara mënuñu mënuñu cee bett jëf ji rëy na lool jëf ji rëy na lool ndax benn taalibe bu ne bu dëggal bu ne loolay xemeem téefam loolay yitteem kon liggéey bi moom fa tabarakallahu sëriñ bi borom liggéey bi moom ko gën a gis am na ci teg sama bët nii borom liggéey bi moom ko gën a gis moom gën a xam fi mu jóge fa tabaarakallaahu réy na lool waaye eh, waxuma la waxuma la ku aju ci bi waaye jullit bu te te te te gëm dëkku ci moom lislaam dëkku ci moom ihsaan dëkku ci moom kum ci mën a doon rek noonu rek la demee li doon bëgg wax moo di rek euh, waxuma la ku aju ci bi waaye jullit bu mu mën a doon jëf diggam ak boroomam boroom yombal na ko yombin woo xam ne mënee ko miyaa misaal yàlla boo yéenee rek te defoo dara yi mu fay la dencal ba fa nga ko gën a soxlaa boo jëfee mu tàmbalee fukk benn yiw mu tàmbalee fukk yow fukk moo lay delloo fukk yooyu ab tàmbali la man nay dem ci sa ci sa jublu ci sa yitte mën nay dem ba doon ay junni moom benn boobu man nay dem ba doon ay téeméer doon ay junni kooku mooy borom lépp te du jeexal dara jullit bu ne jëf leen teg ñoom bu dee ñetti daara yooyu quatre millions lañ amoon joxe nañu quatre millions deux cent kon alhamdulilahi rabil alamin jëf ji gisees na ko waaye sëriñ bi moom a ko gën a gis mooy borom liggéey bi waaye moom itam kam doon liggéeyal moo ko gën a gis kooka itam ka ko yebaloon moo ko gën a gis kon nan sant rek te soññu nan sant rek te soññu bu nu geesu bu nu taxaw yàlla yàlla mi dara tawul nag na noonu yi ma wax yàlla noonu sunu boroom muy jëf ki dindi gë gën noo gàtt ndoog tawfeexi sëriñ bi ndax lii nu am lépp tawfeexi sëriñ bi moo nu ko may ci la ko jaarale kon yal na nu gën a gàtt nag tawfiq sëriñ bi ban mën a gën a jublu mën a gën a jéegu bañ a dëpp bañ a geesu bañ a taxaw yal na du ko suñu borom defal moom mi defa ko dindi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi akub ngartanoom moom yal na sëriñ bi gàttanu boppam gàttandul nu boppam ak ko tax a jóg allahumma waaye bala maa wax dara naa wax ne jërë ngeen jëf ñi fanaan ci mbaar mi ak ñi doon jàng jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu dara mayu leen ko du lu yitte xam naa ne guddi gi moom sori ngeen ci ak càggante waaye waaw leen góor def ngeen lu ko mat dama bëgg rek nu waxtaan rekk waxtaanu sago waxtaan ci yitte waxtaan ci càggante yitte sunu borom lu ko soob def ta dara du ko ci fekk waye mom la def nak mu dib sabab nit wara joge ci souf jëm ci kaw lolu lim tekki moy nit wara genn ci lepp genn jëm rek ci boromam lolu moy yitte bu amee nag day day wéy di màgg di wéy jëm ci boroomam ci kaw rek waaye boo amee lu mu tuuti tuuti day màgg ci biir màggam googee day ne saxal yitte yi ànd ak moom di àdduna yitte yitte yàlla day na saxal yi àdduna kon yitte yàlla rek moo am solo kon am yàlla rek moo am njëriñ tey moo am njëriñ ëllëg moo am njëriñ ci sunu biir moo am njëriñ ci sunu biti càggante nag moom bu amee day màgg ba yitte gedd ba yitte gedd jëmm ji génn dem yoonam càggante de des fa wala yasubillah yaatal nañ iblis ba mu mën a liggéey yàq jaam bi loolu rek moom mooy yitteem moom sunu borom da ko na lool kon nan góorlu ci tewoo yàlla moo nu amal njariñ tey moo nu amal njariñ tey moo nu amal njariñ ëllëg moo nuy noppal moo nuy dimbali dunduk àdduna bu dee àddunay kese ay xat-xat rek la ay musiba rek la ay jàngoro rek la ay fitna rek la ay tis-tis rek la ñak la rek ndax lo bëgg lo mëna bëgg ngay bur ngay borom xam-xam ngay borom bërsëk bala nga am dara do ci am dara du ko amal jariñit du ko amal yalla yitte ngok càggante it safaan bi rek moom day xañe di xañe rek man sëñ bi mu ne dégguma séeréer waaye nee nañu xaayan bala mu neex nga dégg séeréer kon mu ne da ngeen di déglu li muy wax des koy dégg déggu xol déggu nopp te jiital sam xel dégg ko sa jëmm jëpp muy yitte yoo xam ne. muy moo nekk sa diggante sa borom moo ngay jëm kanam. ngay jëm kanam. yitte ji gën di yokku rek. ba dara du dul yitte ji. ba dara du dul yitte ji. duutu nekk ci yow. mu des. diggante jaam bi. ak boroomam diggante jaam bi ak moroomam jaamam foofu la liggéey bi nekk day góor góorlu day góorgóorlu rek kem kàttanam ci yittewoo boroomam lolu moy tax mu meuna jariñu ci digal ak téré lolu moy tax mu meuna jariñu ci jëf lu baax daw lu bon bëgg lu baax bañ lu bon kon digëm ak boromam mi ngi nonu digëm ak jaam bu mu tal sa moromam jaam li nga bëggal sa bopp. ko li nga yéene sa bopp. bëgg rek mu baax. bëgg rek mu baax. moom day nga moom nga ameel jaam bi. yeneen yi sa des yépp nag. ña ko séqanteel. ñu defee ne. ña ngi ko séqante lépp mu ngi ci boroom sa diggante moroom jaam dara waru ca lu dul bëggal lu baax rek yéene ko lu baax rek di di ko defal lu baax te yàlla tax loolu mooy suñu diggante sunu borom mooy suñu diggante suñu moroomi jaam kon dégg ngeen ko. àdduna ci coobareel sunu borom la bindee àdduna andi nu fi nattoonu ko waaye àdduna day du dara rafa sunu borom xam nga nu ko misaalee dafa wax bu fekkoon dafa yemale ak àdduna ak laafu yoo laafu yoo da ko yemale ak àdduna kon ab yéefar du ci am kaas ndox bu mu naan xool leen foofu bu baax a baax kon àdduna du dara waa àdduna yal na nu sunu borom gën a gindi ci boppam waaye bu nu ci gindiwul ku nu jigéendiwul adduna du dara amul benn maanaa noo ngi sant suma borom bu baax mu nu gindi ci sëriñ bi sëriñ Moustapha xam nañ ni demee ci moom bi sëriñ ba Basiiru doreem dañuy waxtaan ma yërëm ko ci yenn bi lool bëgg koo laabire te waruma te loolu waruma sama diggante sama kilifa waaye ba ma koy def du lu ma tey dañuy waxtaan ci biir waxtaan wi ma ne ko àdduna dey wàcc pën mu rot nga tiim ko loo ci mën a lijjanti nga lijjanti ko waaye lijjanti bi day weesuwul Saku ci ngeureumal sa borom jox ci sa borom jam ci àq comme ni mu ko waxee woon ci ginnaaw rek mu ñoog mbir maa ngoog noo ngi nii noog ak aduna ni ko sunu borom binde lim koy ñàkkal ñàkkal solo da koo boole nag nattuwaat nu ci. boole noog ay boole noog ay noon. ñu nekk ak ñun. taxoog ñun. ñetti noon yi. dañoo taxoog ñoom. bi ci des. mooy iblis. mu kàttanal ko. kon kon àdduna benn noon la. lim lay wan ci boppam yépp lu dara amul benn maanaa. bakkan door a moom lu ko neex rek la lay xiir <coughs> dali ko xiir dara amul ci njariñ bànneex lañ ko tudde mooy ñetteel bi manees na koo jéem a firi mooy lu la yàlla xiir te xiiru ci boppam nga bànneexoo ko lool xoolal waa làmb ja xoolal waa dam ba xool ñu ca ba xool ñu garam place ya te kaf ak caaxaan rek moo nekk ñoom loolu mooy bànneex adduna bakkan bànneex ñetti noon la joo xam ne dañoo takkook ñun iblis nag bi mu ci gën a jox doole boo xeexul ak ñetti gaa yooyu boo mucc ci ñoom daw si xelu bakkan jëm ci sa borom noppal nañ seytaane moom iblis mi mu kàttanal boo muccul ci ñooyu Iblis amatu ci habité noppal nañ ko ñu delluwaat ci sëriñ bi sëñ bi biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis te lu fi dara lu dul boroom lu mu fi jaamu boroom la liggéeyal yonent bi ci jàmm ak ci lépp leneen lu mu fi talle loolu rek la te loolu jàmm boroom rek la liggéey yonent bi rek la kon noonu rek la demee nan ko xamee noonu lii mu lii mu leen wax ba téere dalee wàcc ba léegi ba ci alxuraan loolu rekk ko tax a jóg kon na ma leen ko waxee woon yitte rekk a fi nekk ak càggante yaar rekk a fi ne kon góor góorgóorlu yitte buñ ci xeeb dara ndax seen seen guddi gu rafet gii ngeen yittewoo ko ni ngeen ko yittewoo nekk ci ngeen ci nekke loolu yitte rekk la te yitte nag mu ngi tàmbali nag ci góor góorlu te bu yitte ji sa diggante ak sa boroom dalay gàttandu ci gàttal womatal la boppam safaan ba nag mooy sàggante bu sàggante amee day gën a des ginnaaw rek ndax sunu borom moom noppee naag nun dafa teral doomu dama teraanga ju rëy ci coobareem nag mu natt ko bu sóoboo yoonu boroomam boroomam da koy gàttandu bu càggante rekk desee muy dellu ginnaaw di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ba egg ci bàyyi ma bàyyi ma nag ëpp ko tawféex bàyyi ma toppee ko dara doomu aadama ba mu wàccee ci kaw suuf lañ ko toppoon ba diir bi muy am ci àdduna. yan yan boobu moo nekk ci kawam. kon bu sàgganee. kon yan ba du ca def dara. walla lu mu ca defaat. yàqal ko boppam. waliyaas billah kon nañ góorgóorlu ñaari baat yi rek la. yittewoo yàlla. ragal càggante sunu diggante ak sunu borom. sunu borom màggaayam ba xajul ci làmmiñ xajul ci xol xajul ci xel waye nak nu xam bopam mu xam bopam mu xam bopam yombal nu lol yombal nu lool suñu digganteek mom da ngay seet doomu li ko war di gëm ak boroomam yépp julli moo ci gën a yomb gën cee bari njariñ dangay seet bàkkaar rek ni mu bone diggante jàmbeek boroomam te julli waxtu juróom yonent bi dafa wax ne mu ngi mel ne ak dex nekk sa buntu kër bis bu yàlla sàkk nga sangu ci juróomi yoon ndax ab tër na desati ceew moo tax di day fari bàkkaar jul day setal di di bàkkaar day defar nit te jul de yomb na góorgóorlu ba xam ne julli war na la nga def sa xel ci waxtu juróom. nga fu mu la fekk fu mu la bul talati dara. féeg joxe waxtu wa loolu wax dëgg yàlla jëfewut waaye nag sun ñeenti noon yooyu duñu bàyyi ci dara duñu bàyyi ñu def dara duñu bàyyi nu am dara waaye loolu lépp nag yitte woo yàlla rek bu yitte woo yàlla amee te muy dëggu ci nit ki nu muy daal di def sóobu rek diggam ak boroomam te duutu ci tal dara ci diggante bi xanaa moroomam jaamam rek te moroomam jaamam day sax dàkk bëggal ko bëggal boppam di ko yéene lu baax di jëflante mu jëf ju baax di ko di ko dimbali ci wàllu gone te lépp nag yàlla tax rek mu di ko def loolu mooy diggante jaam bi ak moroom jaamam kon nan seet suñu diggante ak suñu borom seet suñu diggante ak moroomi jaam li ngeen di def li ñu digal lu ñu ca man suñu kem kàttan ñu di ko def te yàlla tax li ñu tere lu ñu ca man ñu di ko suñu kem kàttan te yàlla rek tax loolu mooy ndigal tere kooku moom warteefu jaam la jaam mënul dara ci boppam kon bu ko boroomam tegee la war a doon jomam yanul ko yan ba yóbbul ko ko fa mu ko bëggee la ca des mooy yéene lu baax bëgg lu baax di def lu baax di daw lu bon gën a bañ lu bon te yàlla rek tax nga di ko def ñu gën yàlla na ñu gën a dimbali. yàlla na suñu borom gën a di dimbali. nun waa Kër Sëriñ Tuubaa bu ñaanee loolu ba noppi. dana ñaan suñu borom gën noo ci sëriñ bi. gindi nu ci boppam. gindi nu ci sëriñ bi. te boo xisee lay gàttandu. waaye sóobu gi nag moo mat a jóg moo mat a waajal waaye lépp mën naa jóge ci yitte yitte ne ma dema ba jeneen yitte nekkatu ci wetam bu boobaa sóobu yoon yàlla da yomb lii daal mooy li xew mooy li am de nan góorgóorlu bu baax fekk na loolu lépp moom màggaayu suñu borom. màggaayu ëpp na lépp. bu ko sooboon. bu ko sooboon. ñun ñëpp. tegu ci yoon na mu ko bëggee. mu yóbbu nu safara. te dara du ko ca fekk. bu ko sooboon. ñun ñëpp. mu yóbbu nu àjjana. te du ko wàññi dara. loolu na moom màggaayu suñu borom foofu la tàmbalee. te kenn xamut fu mu yem waaye nag waaye nag sañ la na doon ay jaam yu nangu ak njaam bu njëkk suñ réew mii rek am na tolluwaay yoo xam ne booba nit dafa yilif moroomam xam nga booba lu ñu daan caaxaane jaam bu nangook njaam bàyyi ko ca nguur ga la bokk <laughs> kon li jëkk lépp nan nangu di jaam te jaamu suñ kepp kàttan mënu jig de lii mënu jig dara jigunu lu dul jëm ci suñu borom te sëñ bi wàcc na fi ñu ko gisee ba fi ko noppee gis te lu fi dara lu dul boromam te lu ma tabax wax na ko lu mat a def def na ko wàccoo na ak ñun waaye moom itam sunu borom cëral na ko ci boppam cër bu réy réy bu kenn xamut fu mu yam ma loolu ma lanoo doy yaakaar moom moom ñi sopp suñu borom mu boole nag moom nun ñi sopp suñu borom mu boole nag moom mu boole nag moom loolu mooy na am yaakaar waaye bu mu nu tee jóg de góorgóorlu suñ kem kàttan ndax sëriñ bi lee moom amul ñaari bëgg boromam rek la bëgg ak yonent bi genn bëgg genn bëgg rek la genn bëgg rek la kon nañ ko xame noonu xam màggaayam sunu boroom xam cërub sëriñ bi ci boroomam te góorgóorlu nag waaye nit ki ma waxuma ku la moom waaye bu amee sa kilifa fexeel ba jubóog moom déggoog moom mu am sa ngërëm nga am ngërëmam kenn kenn ku ne xam na njariñam Mm-hmm. nan góorgóorlu rek suñ kem kàttan soobu yoonu yàlla soobu yoonu yàlla mooy mbir mi waaye nag du tee am na lu nu sunu borom may ci bopp na lu nu sunu borom may bopp daganal nu ko daganal nu ko sañ nañ koo jëfandikoo sañ nañ koo jëfandikoo waaye nag ci kaw de nan ko bokk bu mu nu yàqal dara suñu diggante suñu borom sañ nañoo lekk sañ nañoo naan sañ nañoo denc sañ nañoo am kër loolu bind la bu nu yàlla bind bu ne yàcc yàccaaral nag loolu suñu borom moo nu ko may ci ngëneelam ak yërmandeem sañ nañ cee jëfandiku waaye nan yem fam nu ci yem lool cëral ci sa jëmmi bopp ak lu mën doon yàlla la ko ameel te foo nekk mu fekk la loolu moo tax yaacaar bi mën naa ñàkk il faut ku ñu yëngatu bàyyi xel li ñu yàlla may ñu mën koo jariñoo man koo jaamoo yàlla man koo jariñu suñu diggante suñu moromi jaam loolu sañ nañ ko bokkul nag suñu yitte jëpp ñu jëme ko suñu borom kon dunda ngoog moom bu ñu fi fanaanoo ne du jeex waaye nu jàpp ci loolu jërëjëf Mbàkke <laughs> yàlla na suñu borom gën a gindi ci sañ bi ginnaaw ba mu gindee ci boppam ndax sëriñ bi mënees na gindee ko ci moom te suñ borom gindiwu la ci boppam njëkk sëñ bi moom léppam boromam la noonu rek la demee jërë ngeen jërë ngeen jëf leen li mu doon wax rek moo leen ko may yitte rek moo leen ko may naa xam ne am ngeen lu ngeen yëg li ngeen yéeg nag li may wax lépp mu ngi ci biir seen yëg-yëg googu topp leen ko rek kon noonu rek la jërë ngeen jëf seen borom gën a gindi ci boppam gën a gindi ci sëriñ bi gàttitu gi moom teg na ko boppam ba noppi mun sóobatu muy dëgg rek moo gatt dul bopam wammatal nu no ba fa ngëne li kon jere ngeen jëf nan sante bu baax a baax boole gi nu sunu borom booleeg serigne bi mbir mu reey la xéewal ju reey la tawfiq ju reey la waaye nag bu mu tee góorgóorlu bu mu tee góorgóorlu bu mu tal suñu bopp bu mu tal dara nantal yàlla rek na sëñ bi moom kenn mënut a dégg pëndam waxuma di ko séen waaye moom biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis foofu rek la nekk yitte woo boroomam ba wàccook moroomi jaamam yépp ci kaw suuf yitte woo ba wàccoog moroomi jaamam yépp yi ci kaw dem ca boroomam sëñ baa sant bu baax a baax ndax kooku suñ kilifa nan sant bu baax waye nak buñu yaccaral de buñu sagal de buñu yaccaral buñu sagal buñu yaccaral ñu ko lan tribu yag yaccaral moy mooy dara yaccaral moy kuwut ta xam dara kon ne buñu yacc buñu ne yacc <laughs> <laughs> jere ngeen jëf taal leen yi ñaan jere ngeen jëf li ma bëgg a wax mën nañ fekk du fanaan waaye waaye nañ leen jàpp ci loolu sa mu ne boppam nag la ci jiital ndax màggaay suñu borom boobu moo tax dama àtt sama bopp xaw ma jullit laa am déet waaye jullit laa bëgg a doon xaw ma ànd naa ak sëñ bi dama bari itam waaye bëgg sëñ bi rek moom ma jën fu mu jëm jëmee loolu rek ma loolu rek loolu xaw ma waaye attuma saa bopp ci jàppale ma defe ne ab jullit laa wala taalibe laa wala nit ku baax laa déedéet waaye lépp ma ngi sant saa borom xaw ma dara waaye nag lu ma am yéene naa ko ñu ma bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp yéene naa ko ñu ma bokkal islaam ñëpp la fekk na nag bay ci sewewu tànk moo tax lu ma am yéen naa ko ñu bokk Sëñ Tuubaa waaye lu ma am yéen naa ko sama bokk jullit yépp waaye nag suñu borom moo defee noonu nañ ko bàyyi boppam lu ko soob mu def ko te du ko ca fekk lu mu ci am ci di doon am ci nu jeexit bu mu am ci nun jeexit lu mu àtte ci nun bu mu am ci nun jeexit mas kelak xalaat xalaat bu sori sama xel dem ci ne sun borom attal ma nek ci nditul sawara du baaj du wañ sama wéetal ga dara du wañ ci sama cant ga dara na fofu rek la nek dem bak bismillah bismillah Tali loxo noonu la ñu ni ci fi nekkee rek nii la ñu gisee. muy taw bi wéy rek ci noonu. xasida yi bari na loolu waaye ñu jàngal ñu xasida yi nga xam ne moom. ñëpp dañu bëgg nit ñi ci biir xasida gi. loolu tawfeex rek nu ko may. sant bu baax a ci sëriñ bi dafa doy lépp. Euh, euh, di may ñaan sax dama. Euh, damay boole. suñu borom ginnaaw mooy def ak dindi. Mm-hmm. boole nag sëriñ bi. Mm-hmm. تفتح جينو شام دينو كدول دبي الحمد لله آمين بك آمين الحمد لله الحمد لله آمين بك سليم بيجي بحولنا آمين بولا بيجي بحول آمين آمين آمين آمين آمين بك تبارك الله تبارك الله غاتا نوبو امين امين وماتل نوبو امين بك امين امين lool rek. Mhm. mooy mooy ñaan bi. ginnaaw suñu borom mooy def ak dindi. Mhm. Eh, may nañu tawfeex sëriñ ba waaye mu dina ko doon nag di wéy. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. sëriñ bi nag. Mhm. boole ci boppam moom ci boppam. gën noo gàttandu boppam. Hmm. gën noo womatal boppam. amiin amiin alhamdulilah amiin bakki amiin amiin. suñu jotaay bii. Hmm. ñu ngi nuy gis. Hmm. lii may wax mi ngi koy dégg. la ilaha illallah. kon sant rek. sant rek. alhamdulilah alhamdulilah. sant rek. alhamdulilah jërëjëf Mbacke waaw sant rek waaye dafa am baat bu ma koy lëkkaleen nag sant ak soññu sant nan sax ci sant sax ci soññu moom baat boobu soññu laa koy lëkkaleen sax ci sant sax ci soññu waaw ñoo yàlla na nekk diggante boobu rek loolu sax ci sant te sax ci soññu nag suñu bopp ci moom. loolu rek la. tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla Mbacke tabaarkalla jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. loolu rek la jërëjëf jërëjëf. saa ci sant. Mhm. saa ci soññ suñu bopp ci moom. tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla. Euh, loolu. Mhm. yaqin la ci ne. Mhm. yiwu àddina ak yiwu

yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira moo ci jiitu ak yeneen yi nga xam ne nag xel mënu ci àdda ko xel mënu koo daj noonu rek ci soññ suñu bopp ci gépp wàll Jesús, ¿qué me defee tabarkalla Mbacke tabarkalla tabarkalla tabarkalla mooy moom yéen sëkk doy la sëkk Mbacke ñëpp sant nañ ñëpp ngi lay sant sëriñ bi ñëpp ngi lay sagoo ñëpp ngi lay béggee ñëpp ngi lay ñaanal Mbacke fàggul mboolem ku fi teew rek yàlla jéggi la say bàkkaar te defal ko defal na ko rek الحمد لله رب العالمين jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ñi ñu ñi ñu bëgg taalibe yu dëggu yii jiituma ci wax ji doyoon na sëkk waaye waxi Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da ci mënta dolliku nag rek sant ak santlu nun lii gën a war ci noonu muy sant rek sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi nun sant sëriñ bi rek mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi di nu nu di jaam ñu war a kon buñ bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lanu sunu borom baye luñ ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko ñu dolli ko ca kon sunu cant noonu foofu rek la war a nekk ak cant dong laay dolli ci wax yi Cheikh Abdou Samad ji góor góorgóorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu paggu bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënal lu lépp nu doy loo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaw nag sant sëriñ bi ci nun wurti am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nan ko doy na sa kiitam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeñ moo ngi àdduna yóbbaale ko su yóbbal ci alaaxira di sant sëriñ Tubaa kon nanu góorgóorlu bu baax lanu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu nu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg a liggéey foofu la liggéey bi nekk ne ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yim fi li fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam am nam nam doon doxe digg ma boroom ak digg ma yonent bi am nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ñu ko gën a xam gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu la liggéey bi amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon sunu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bég ci nun yaar nun ca gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel boppam di gën a bëgg ci loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor góor gën a góorgóorloo danaa dañoo bëgg bi di bëgg ci nu bëgg jege sëriñ bi tey ga nag dañu góorgóorlu ci yar nañu jéem a set set set tii bàkkaar sunu kepp kàttan yomb waaye nañ ko jéem ndax moo ni dolli ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay bi moy suñu xaas ñu gën a fonk xasida sëñ bi di gëna a ci ñun lu ko gëna a jàng gën a jege bi waxi sey Abdou Samad bi loolu yaar yi la ci doon nañu góorgóorlu bu baax ci jéem set di gën di set ndax lu ñu gën set rek señ bi gëna a ci ñun lu ñu gën set gëna a señ bi te man ko xasida yi nag xasida yi مون ورا داخل لب لوني لك لوني داك خزي مون ورا داخل لوي دال خل لوني تي خزي نغارناي جاني خزي مو غنا غاو لا ديمي فوف رك لا duma ci dolli dara waaw cant rek ci dolli kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di diggan di set góorgóorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunub dund ndax mën na ko loolu rek la maanaam nag sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar a wax waaye maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëriñ bi ne maa ngi waxal bokki bi yëpp dafa am lu ñu lay ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp na mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa yëpp nga fonk te gëm leen waaye da nga koy fab kenn mu di sëb nun ñi ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog loolu sëñ ma ko goonu tibbal rek ñu sëñ ma ko nooru daari yi ngeen def doy na sëkk nooru daari nooru daari moom nooru daari moom am naa am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde nooru daari nii am naa sëriñ Cheikh Saalihu moo ma ne woon ko jàngal nooru daale ni Cheikh Saalihu moo ma ne woon ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj gi bis bu ma jàngal ko ko bi ma ko gisatul te xat-xat yi bari aji mu juree ma jàngal ko ko boo koy jàng du ma ci fas dal Seex Saaliw rek laa koy jàngal moom laa koy liggéey waaw waaye xasida yi xasaa yi rek laa wax waaw ci bu ni sëñ bi ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu mu gën a bari gën a baax noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci waxi Seex Abdu Samad yi sëriñ Basirou dafa am bis mu maag beneen mbokkum taalibe muy waxtaan ak nun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bëgg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne ko diw bo yoroon dalli nañ di ko doxee ba xar do gis ku melni man <laughs> ah serigne bi nak serigne bassi mo waxon waxoon fullaam te wax jooja la dem ba tang xaal ne waaw waaye sëriñ bi sax mu am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa day waxtaan day wax ba yàgg mu gën a tàng ne waaw waaye sëriñ bi sax am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa kon bis bii leer na taxaw sañ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ seigne bi foo ko mu toll fa leer nañ mom nak dañu gëna ñaan rek waye sampu seigne bee ay dañu gëna ñaan nak bu gën su ma gën ko sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci ligéem bi fa tabarakallahu alhamdulillahi rabbil alamin lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo ko gën a bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg taalibe yëpp ko bëgg waaye boo ko di da ngay defee ne gone yi sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu mbir la gone yu ndaw yi ak jigéen ñi ak ñëpp gone yu jigéen ñi boo ko di seet da ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mu la mën naa dalal xel waaw bi fag faggul nanu lépp waaye bu na yàcc bun yàccaaral bun sàggan nanu jiima sant sëriñ bi ci ni mu ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf ñaan

waaye dafa am lu ko gën a ñor lu jiitu loolu loolu mooy sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal Serigne Touba te séq ak ñoom liggéey bi li dox sama diggante ak sama bokk yooyu laa bëgg ñépp seere ko tey na ñépp xam ni ci ñoom sama bokk yooyu laay yees lu sama jaayante ci Serigne Touba bu ñu xamee loolu ba noppi ñoom ñooñu ñu xam ne ñoo bokk liggéey bi am li ci am solo nag nu am li ci am solo mooy ñu ànd def suñu it jëpp ci liggéey ñu gën a xam ne liggéey bii lépp loo xam ne lu yitteel la dama koy ànd ak ñoom rek sama bokk yooyu ba mu gis nu mu gën a nasoo ñu door a yëkkati loola loolu yi mooy li ci ëpp solo li ci des nag daf leen dama leen di xamal sama bopp ndax wax jot na kon li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi muy wàllu fàttali gi ak wàllu soññ gi def nañ ko ci këyit boo xam ne bind nañ ko mi ngi fi loolu moom mi ngi fi ñi ko war li ci li ci li ci nag. ma xamal sama bopp ñi ma bokkal liggéey bi ñëpp. ma xamal sama bopp ñi bokkal liggéey bi ñëpp. sama jaay sama doxin. sama doxin. rek laa bëgg ngeen xam sama doxin rek laa bëgg ngeen xam ko. fii ba agsi man. bi ma xàmmee sunu borom daf ma nattoo munumaa def lu ma xamut munumaa def lu ma moo tax nag sama doxin wu jafe la wu metti la li ma yàlla nattoo noonu xam ne jàng àdduna jàng àdduna rek damaa daal xam ne nag jàng àdduna rekk nag moo jiitu. jàngiwuma ko sama xel ak sama ko nenn nag lu dul sama xel ak sama jikko. ci loolu laa nekk ay ci ci laa nekk ay at. nekkuma ci dara. nekkuma ci dara. boyal sama bopp boyal sama bopp. nekk ci loolu nekk ci loolu. la ma loolu andil. lépp li ma li ma bëggoon li ma doon gëstu lépp ak li ma bëggoon lépp. gis naa li ma doon gëstu ak li ma doon bëgg lépp. la ma ci jëlee. la ma ci jëlee. mooy xam ne. mooy xam ne. tegu ci yoonu jub. tegu ci yoonu jub. mooy aw benn yaakaar ci lenn lu ci yoonu benn yaakaar dul tegu ci yoonu jub rek. loolu alhamdulilah. loolu alhamdulilah rabbil alamin. ma na ma nekk ci loolu. ab diir ma xam ne njub lu mu am am njëriñ njubug yàlla njubug yàlla fa la njariñ la nekk dëgg dëgg kon am naa ci tawféex gannaaw diine jëng fi may gëstu nag sama diggante ak diine ji lépp itam bëgg diine ji wér lépp gëstu gi ngir bëgg diine ji wér rek ba ma ca ba ma ca amee ab diir ma ca tawféex ma am ca tawféex la ma ca jëlee la ma ca jëlee mooy xam lay dëgg dëgg diine ji wér xam lay dëgg dëgg diine ba ma ca agsee foofu ba ma ca soobu nag ma daal di nag ci biir soobu gi nag ci laa daal di ci sëriñ bi ci laa daal di ci sëriñ bi di jàng sëñ di jàng nag sëñ bi di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba am ci tawféex bi loolu amee nag bi loolu amee gannaaw xam naa luy dëgg gannaaw xam naa liy dëgg dëgg diine xam naa xam naa sëriñ bi kon nag dox rekk moo ci des ma sóobu ci biir sóobu gi nag ci njàngaleem sëriñ bi ma xam ne sharia ak xaqiiqa ñoo fi ne muy diine ji ci njàngaleem sëriñ bi am na lettre am na lettre buñ ko joxoon ci mbirum yoon wi ci xam yoon wi lettre booba ci xam le yoon wi naka muy doxee la loolu mooy jawaab yi Mor Sëy sëñ Mor Faalo Sëy ca lettre boobee ca la waxee ni la mu njëkk a tontu ndax dañ ko jëk laaj mom sëriñ bi ci lan nga nek mu ne mom nekut fenn lu may ci ñaari la fi sharia ak haqiq na len nak sharia moy li ñëw ci alquran haqiqa haqiqa moy li nek ci lawul mahfuz la nekk ci lawul mahfuus nag. la nekk ci lawul mahfuus nag. dafa am lu ñëw ci alxuraan. dafa am lu ñëw ci alxuraan. am lu dikkut. foofu la ci yem. mu jëm nag ci. mu jëm nag ci. gannaaw daa bëggoon ba xam doxinu dafa bëgg a xam doxinu dëgg-dëgg yoon wi. dénk mu dénk leen. ne leen. na ngeen di jàng téere tawxiid di jàng téere tawxiid yu wér yi. te di ko jëfe di jàng téere yi fiq yu wér yi te di ko jëfe di jàng téere yi tasawuf yu wér yi te di ko jëfe amaa nag ñi nga xam ne yàlla da leen a jox ak jagle ña nga xam ne sunu borom moom daf leen a jox ak jagle na ngeen leen bàyyi ak seen ak jagle ñoom loolu yi ci la Seex Ibra Faal bokk foofu la Seex Ibra nekk loolu bi muy jàng sëriñ bi bi muy jàng sëriñ bi loolu ci la bokk waaye nag may wéy rek di gën a di jàng sëriñ bi rek topp ko rek ci sama xel ak sama xol ak sama pëseef ak sama jikko ma topp ko rek topp ko rek ba am ci tawféex ñëwuma kenn ci sëriñ bi ñeewuma kenn ci sëriñ waaw waxoon naa ne ba ma sóoboo ma daal di nekk ci loolu rek di sàmmonteeg sharia bàyyi bàyyi fee xaqiqa ma nekk ci loolu rek alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom di ma gàttandoog tawféexi sëriñ bi boole ko ndimbalum nag mooy sama doxin ba agsi fii ma agsi tey sama téeméeri xel musta xalaat mukk nekk ne ne lii dana am sama xel musu ci nekk waaye sama xel musu jóg waaye sama xel musu jóg ci sama xalaat yëpp ci sama xalaat yëpp ni bëgg rek yoon wi dox ni mu war a doxe loolu moom ngeen gis ma doon ko doxee kon gis ngeen ni ma àndeewoon ak samay kilifa ba ci sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mii doxin woo xam doxin woo xam ni dox ga yomb na ma lool yomboon na ma lool. ba ci sunu jataay jataay bii ci loolu laa ne. man foofu laa toll woon. man foofu laa toll woon. lii dal ci sama kaw lii dal ci sama kaw bett ma. waaye. waaye. dolliwuma dara. dolliwuma dara. lu dul. ma gën a am pëseef gën a am ak dogu gën a fas yéene liggéey rek loolu rek la ne sama sang yi laa leen di wooye du leen wax sama bokk yi kon dégg ngeen ko yéen a jiitu kon bokk taalib yi dégg ngeen ko muntaxaa ngoog sëriñ Muntaxa ngoog ku dem ku dem ma dem ku demul ma dem li gis nag waxtaanu àdduna rek la ndax diine ji ba sangub mbindeef yi wàccee ba léegi alxuraan wàcc. alxuraan wàcc. ak sunna. ànd ak sunna. xadisu yonent bi. mu nekk fi. nekk fi. ba léegi. ba léegi. doomu aadama yi. doomu aadama yi. ki leen bind xam seen mbir. leen bind képp xam seen mbir. waaye boobaak léegi. waaye boobaak léegi. junni ak ñeenti téeméeri. junni at la ak ñeenti téeméeri du tegal. alxuraan a ngi fi naa ngi fi borom xam-xam yi yaatal nañu di ci liggéey di ci liggéey ba tey ba tey sàgganuñu lu ñu war a wax lu ñu war a wax lu ñu war a def def nañ ko lu ñu war a wax wax nañ ko waaye waaye xoolee mbooloo boo xoolee mbooloo mi jullit yëpp. alxuraan moom alxuraan moom yi. alxuraan moom yi. ak sunna ak coono yi borom xam-xam ak yi li mu jariñ ci nit ñi bari bariwul. la coono yi bari bari li mu jëriñ nit ñi bariwul. loolooy loolu mooy li nekk. loolu moo tax ma jiital wax ji loolu moo tax ma jiital wax ji ma jiital. ci sama bopp. Hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy doxin wi mën naa yi nga xam ne ci la yoon wi war a doxe wax naa leen ci sama bopp la ca des nag lépp a ngi fi sëñ Moustapha jaral mi sëñ Moustapha mi la nga xam ne mooy moom la liggéey bi laaj maanaam ci fàttali ak soññee bind nañ ko mu wér mi ngi mu ne loolu yi tënk naa ko bindloo ko sëñ Muntaxa mii ak man mii ñu tënk ko hmm. loolu nag incha allahu lu ñu man rek danañ ko tasaare incha allah eh, la cay dolli ko bon mooy. taalibe yi am tawféex yi dëkk ci dëkk bi. sama bokk yi am tawféex yi dëkk ci dëkk bi sama bokki taalibe yi am tawféex yi dëkk ci Touba gii tawféex la. loolu dama leen ci wax sama xalaat. loolu dama leen ci bëgg a wax nag sama xalaat. ngir laabiri leen. ku am tawféex yi dëkk fii. ku am tawféex yi dëkk fii. nekk ci wetu Serigne Touba. waroo koo booleeg dara waroo koo booleeg dara. bu dee looy wut. bu dee looy wut. sëñ bi noppi na ci. bo fi nekkee ci boo ci nekk ci nag ci na nga fi war a nekkee. sa dara du des gannaaw sa dara du des gannaaw. boo fi nekkul na fi war a nekkee. waaye nag boo fi nekkul ni nga fi war a nekkee. ah loolu moom dañ lay bàyyi ak sëñ bi rek. kon ci dama ko xalaat ni ma ko bëggee ni ma ko bëggee woon ci sama sama sama labiré. kon ni ma ko bëggee woon ci sama labiré. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ñu dollee góorgóorlu xam li ñu nekk mooy xam li ñu nekk mooy lan sàmmonte ak dëkk bi sàmmonte ak dëkk bi sàmmonte ak dëkk bi sàmmonte dëkk bi mooy sàmmoonte ak borom dëkk bi dëkk bi la ko gënal ci dëkk bi la ko gënal ci dëkk bi loolu jafewul loolu jafewul a xam xeyna na gi mo jafe waye xam gi moom jafewul waye nan bokk góorgóorlu nun ñep jox dëkk bi ak xam mooy tax moy tax day bokk ci jiitu yi ñu war a liggéeyal sëriñ bi day jiitu ci yi ñu liggéeyal sëriñ bi dëkk bi dëkk bi ñi fi dëkk ñi fi dëkk ñi am tawfiq dëkk fi seen xel warut a xalaat lenn. seen xel warut xalaat lenn. lu ñu defee ne mën na leen a jëriñ ñu defee ne mën na leen a jëriñ ci àdduna. loolu warut a am am waruñ koo xalaat. sëñ bi doy na leen sëñ bi sëñ bi war na leen doy sëkk. te am xel mu dal ne. te am xel mu dal ne. liñ namoon di ko wuti ci àdduna namoon di ko wuti ci àdduna lépp dana leen fi fekk. ak ñi nga xam ne. ak ñi nga xam ne. dañuy jóg jëm ñi nga xam ne dañuy jóg jëm si ci dëkk bi. ku ci jëm dëkk bi ku ci jëm si. sëñ bi sëñ sëñ bi rek moo la fi war a indi. moo xam da ngay siyaare. moo xam da ngay si ngir yàlla. loolu tooyaay boppam la. moo xam da si nag. moo xam da ngay ñaan si nag. say aajo say aajo. kooku yaag sëriñ bee. kooku yaag sëriñ bee. kon ku jëm ku ci dëkk bi. kon ku ñëw ci dëkk bi. koo mën a doon koo mën a doon. warulaa séentu njëriñ fenn fudul sëriñ bi. warulaa séentu njëriñ fenn fudul ci sëriñ loolu mooy li am. loolu mooy li am. kon nag maa ngi laabiire. kon nag maa ngi laabiire. ñii ñëw ci dëkk bi ñii ñëw ci dëkk bi. te yitte tax leen a jóg. te yitte tax leen a jóg. buñ jóg mukk buñ jóg mukk. defe ne mën nañ fee jariñu. defe ne mën nañ fee jariñu. ci lu dul yem ci sëriñ bi lu yem ci sëriñ bi. siyaare ko ngir yàlla siyaare ko ngir yàlla. ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ko seeni soxla. ñaan ko seeni soxla. lu dul loolu. warul ñu di ko wut si ci dëkk bi. warut ñu di ko wut si ci dëkk bi leneen lu dul loolu. ndax ku ko wuti itam. ndax ku ko wuti itam. <laughs> doo ko mën a am doo ko mën a am. li ci des nag moom. mooy sama bokki taalibe yi. sama bokki taalibe yi maa ngi jëm ci sama bokki taalibe yi. ñoom nag. ñoom nag. dégg ni xanaa war nañoo dégg ni ma ko waxee. xanaa ñoom war nañoo dégg ni ma ko waxee léegi daanaka jërul xamul jar bamtu xan daanaka jërul ma di ko bamtu nan góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu bu baax ci li sëriñ bi bëgg ci bi bëgg li bi bëgg mooy topp ndigal yi mooy topp yi li bi bëgg li mooy daw tere yi mooy daw bi bëgg bëgg bëgg lu yàlla bëgg loolu rekk la nañ ci góor góorgóorlu bu baax nañ gën a fonk diine ji te fas gën koo fasoo te gën koo fasoo fasoo gi nag mooy tax mooy indi man gi mooy indi man gi man koo jëfandikoo faw fasoo jiitu waaye népp jullit laa rek ab taalibe laa rek nekk fi naan ab jullit laa ab taalibe laa rek nekk ci sa bopp noonu de du ñu war a jëflante ak sëriñ bi bokkut ak ni ñu war a jëflante ak sëriñ bi ak lu nu ko tëlee tëlee dañoo war a jéem nekk ci li mu bëgg sëñ bi nag yàlla dong la bëgg ak jaamu yàlla loolu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 dara yóbbu waaye dara yóbbu ko fa. lu dul bëgg sëriñ bi ko. lu bëgg sëriñ bi képp ak doyloo ko. waaye xamuñu sëriñ bi. waaye xamuñu sëriñ bi. dunduñu sëriñ bi dunduñu sëriñ bi. nun ko gën a xam. nun ko gën a xam. di gën a mucc di gën a mucc. di gën nekk ci li bëgg di gën a nekk ci li mu bëgg. luñ ko gën a dund. luñ ko gën a dund. ko. muy topp ko. ci ni muy doxee. ak ni mu ko bëggee ci nun ak ni ko bëggee ci nun kon loolu mooy dund sëriñ bi. loolu mooy dund sëriñ bi. loolu nag loolu nag. ku ci góorgóorlu ku ci góor góorlu na yombul sax xëy na yombul sax. waaye ku ci góorgóorlu waaye ku ca góorgóorlu. da ngay gën di dajeeg tawfeex rek da ngay gën di dajeeg tawfeex rek. di gën a xam di gën a xam. di ko gën a xam di ko gën a xam di ko gën a dund. kon nu góorgóorlu ci loolu. kon nu góorgóorlu ci loolu. lee. lee. mooy tax nekk ay jullit dëgg. lee mooy tax li ma njëkkoon a wax léegi mooy tax ñu nekk ay jullit dëgg. muy fonk suñu diine muy fonk suñu diine te muy dëgg ci ñun te fasoo ko te fasoo ko. sax ci dàkk wa sax ci dàkk. li ci des li ci des. mooy nu xam sëriñ bi. mooy nu xam sëriñ bi. di ko dund di ko dund. ni mu ko bëggee ni ko bëggee. ak ni mu ko doyloo ak ni ko doyloo. xam gi xam gi. ak dund gi ak dund gi. yombut waaye ku waaye ku ko sàkk wut sàkk ko. te muy dëgg ci yow muy dëgg ci yow. muy sa yitte da nga ci loolu. mooy sama diggante ak sama mbokki taali bii li ci des li ci des mooy nu xam sëriñ bi mooy nu xam sëriñ bi di ko dund di ko dund ni mu ko bëggee ni mu ko bëggee ak ni ñu ko doyloo xam gi xam gi ak dund gi ak dund gi yombut waaye waaye ku ko wut sàkk ko te muy dëgg ci yow muy sa yitte danga nga ci am tawfeex loolu mooy sama diggante ak sama mbokki taalib la ca dolli ko mooy sama diggante ak ñi ñu seq réew mi mooy ñi sama diggante ak ñi nu séqal réew mi moo xam kilifay diine yi moo xam kilifay diine yi la moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi ñoom li ma séq ak ñoom li ma séq ñoom ndax man kat ndax man kat taluma dara taluma dara ndegam la ma weesu la ma weesu taluma ci woon dara taluma ci dara yàlla dimbale na ma yàlla dimbale na ma nag may dund ak ñoom may dund ak ñoom maslaa ak ci ñëpp nag. waaye fekk na waaye fekk na. taluma ci dara taluma dara. lu dul sëriñ bi lu dul sëriñ bi. taluma ko lu dul am ngërëmal sëriñ taluma ko. lu dul nekk ci lu neex sëriñ bi taluma ko. waaye nag maslaa mënta ñàkk. waaye nag maslaa moo mënta ñàkk. ci maslaa laa laa fii. ci maslaa laa egsi fii ma egsi. ànd ak ñëpp ànd ak ñëpp. tàmbalee tàmbalee ko ci samay kilifa. ba am seen ngërëm ba am seen ngërëm kon kon noonu rekk la nan góor góorgóorlu nun ñëpp te xam ne yoon waa ngoog mooy li ma wax rek mooy diggante kilifay diine mooy ni ma wax rek sama diggante kilifay diine yi kilifa yi nga xam ne ñoo yor ñoom la yàlla dénk doxinu ak sama ak kilifa yi nga xamante ne ñoo yor doxinu àdduna wi. ci biir maslaa ci biir maslaa. am dama leen a ameel seen aqi bopp. dama leen a ameel seen aqi bopp. waaye jum ci mën a doon. waaye jum ci doon. danaa leen jox seen aq ba mu mat danaa leen jox seen aq ba mu mat sëkk. noonu rek la noonu rek la. ورحمة الله تعالى وبركاته ñëpp di si ziare ñëpp عليكم الحمد لله رب العالمين الشيخ محمود الفاضل تحب لكم جاننا خطبي كو خامون تم ام تي تبرك بركي خطبه بي من جاي بي بيت دول سي تام كاد يو خامني خام خام لا تبارك الله كن من الجثاي بي اي واحد دفتو جي تولا وقت عنا مو امور وقت كون من لو تيغي ريك وقت عنا داوي مون تي دولي كوي لول لو خامنا يتم نك داني گنا سوني سون بوب سون بوب دي گندي سون يتي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 jàng sëriñ bi nag il nga xam ne sóobu mënu ci ñàkk sóobu itam bala moo mën a am dëddu adduna am kon nu góor góorgóorlu bu baax jéem a sóobu jéem a gën a sóobu ñëpp sax ñu ngi ci loolu suñu kem kàttan waaye waxtu wu nekk nag nuy gën jéema su gën a sóobu jéem a itam li tax sóobu mën a am ñu gën a dëddu àdduna dëddu àdduna ci fi mu fi mu gën a gàtte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 nag koy daal di njàng mi yëpp nag ko ñuy dañ koy daal di ci sëriñ bi sëriñ bi moom mustatal dara lu digg ma borom suñu noor daal la jaay. karawaatu karawaatu soowu imaam bi bii bu. am kaala. di am ci

ñu gën koo mën a xam mu la gën a mën a leeral yoon wi sa xol jépp nga waxtu wu ne ngay jéem di ko jëme ci yàlla mooy tax doxin wi yomb la bu yooyu amee nag dox rek ci des jëf ak dox rek moo ci des nu góorgóorlu bu baax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

ñu góorgóorlu ci bu baax suñu kem kàttan lu mu ci jëfe rek na yàlla tax mu du ko def loolu day daal di delluwaat ci eh, positif ak ngor ak jom waaw ñaari xayma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama am muy ngor ak jom il faut bala moo am njëriñ dëgg dañ koy sof ci positif تحملنا عليه ولا تنزل سبكم عن ايمان ولا تجعل في قلوبنا حلا ليس لنا ربنا انك غفور رب هب لي جنب السرية وانا على صلاه واهدني في سريتي واهدني في سريتي ini dukkan ñun donc dañuy nee Cheikh Cheikh Diop sant kenn ku ma yor def ñoo ko des makka ma kenn góobu ah? ma def makka ma dama ko liggéey ma dama ko liggéey nee ñaar ñoo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 suñu borom gën a gàttal nag taw foofu Sëriñ Tuubaa lu ca mat a def lu ca mat a def waaye nag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 ok mbokk yi euh, ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax di leen sant gis ngeen euh, julli gi nga xam ne sëriñ Fallou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khader moo ko jiite bu fukki waxtu di jot waaye itam dégg ngeen xutba bu am solo bi nga xamante ni moom la ci teg ah, ak ndénkaan yu am solo yi nga xamante ni moom la ci teg ci lu aju ci ngëneeli weer wi fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki fan zil xijja ci mboole loolu mooy suñu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yàgg ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci mépp mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk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 suñu borom mi nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp ñu baloo xaq ñépp di ñaan ñu balonte xaq ñëpp eh, loolu nga xam ne mooy suñu mooy suñu liggéey buñ ca nekkee ak ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laabirante ak ku dimbilante loolu rek moo moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax

taxaw tem ci li ñu fi andi muy jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp euh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëñ bi euh, tolluwaay bii nu toll euh, mel na ne tiital na ñépp waaye dan faaw nu ñaan sun moroom jàmm yépp suñu mbokki jullit yépp suñu mbokki taaliba yépp yàlla daqanu ndawam loolu nga xam ne du def luñ ko digalut fuñ te fañ ko yem loo mu yem fa waaw waaye nag du tee ñaan ndax ñaan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 di gën di jege lu ko gën a dund di gën di mucc di gën di raw kon noo ngi sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi eh, li li li li ngeen ci man lépp def ngeen ko

kon dañu ñaan rek suñu borom gën noo gindi ci boppam gën noo gindi it ci sëriñ bi nuy gën di mën a wéetal yàlla du sax ca dagg di gën di xam sëriñ bi di ko gën a dund yàlla na ko suñu borom ngàttandoo ci biir ak bitti ak tey ak ëllëg jërë ngeen jëf ñu sant bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf ñëpp tàllal mm. ñëpp tàllal fan koy tàmbalee rek mooy Cheikh Abdoul Ahad eh, liggéey bu rëy bii eh, eh, lépp gannaaw Sëriñ Tuubaa kenn jiituwu ko ca li ci am moo di Cheikh Abdoul Ahad dañoo ne jóg rek mu gis leen xam ne sëriñ bi mu ngi ci kon mu ne mooy naa wax ne Cheikh Abdoul Ahad moo feeñal sëriñ bi ci yéen gis xam ne seen gën seen sëñ bi rek moo ne ci yéen mu jug ñun ñëpp itam ñëpp muy taxawal leen bu ngeen mën a sóobu sax dàkk ci liggéey sëñ Tuubaa te tax la ca dolliku mooy Cheikh Saleh eh, moom it eh, dafa xam ne sëriñ bi la ci yéen ndax loolu moom xam na ko waaye fekk na itam Cheikh Abdoulaye feeñal ko feeñal sëriñ bi ci yéen eh, moom xam ñu fi mu yem wu fa liggéey ba jëm ndax moom moo leen tuddee xisbu tarxiya tarxiya nag ci lépp nekk قد خلقنا الإنسان في أحسن تقييم ثم رددناه أسفل السافلين foofu la tibbe pour wuy woowu ndax suñu borom moo waxal boppam bind na nit na mu gën a jekkee na mu gën a rafete waaye coobareem dool delloo ko it ba mu gën a suufee la gën a suufee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 ni ko mu gàttal ci gàttal ñu ngi ko defe rek moom mu ñëw tudd leen tur woowu xam ne jëlee na ngeen suufee waaye dafa bëgg ngeen di jëm kaw mooy Hizbut mooy kuréel kuréelu yéege loolu di ay kàddu yoo xam ne il faut que nu fàttali ko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 du moom day tawfeex Sëriñ Tuubaa ju ko yàlla defal sunu borom it waajalaat ko waajalaatal ko sëñ bi ba tax euh, kaddu euh, jiigu yu rëy yi mu dox loolaa ko waral dañ koy waajal sunu borom moo ko waajal Sëriñ Tuubaa ci ndigal si si si si si si suñ eh, eh, sañ ab sañ ab laaj liggéeyu ab liggéeyam sañ Cheikh ci yéen ba noppi la ca des moom moom la yàlla def defal ko Sëriñ Tuubaa ci moom mu dox jiigu mu jox ba ni mu noppaloo jee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 loolu wax wax aju aju ajootuñ ci wax ndax jëf ji jëf taxaw ngeen loo xam ne pàggu tëf Sëñ Tuubaa la muy taxawaay boo xam ne itam nag diggante sëriñ bi ak boroomam kanamam gannaawam mënut a ñàkk mënu cee mënu mënu cee ñàkk a def pàgguteef ndax liggéeyam bu rëy bii loolu la mu ko bëggee muy muy liggéey ba di dox ba ca ba ca ba ca kanam ba ca kanam kanam borom loolu kon loolu pàgguteefuma yéen.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 kon alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi leen di sant suñu borom mu nu booleeg sëriñ bi ñoo ngi sant sëriñ bi noo ngi leen di noo ngi leen noo ngi leen di sant noo bi gën a sant sëriñ bi ndax lépp mooma lépp mooma kon sant rek nu war sant rek nu war te sant gi du xam nu koy defee sant gi mën noo xam nu koy defe ndax mën nu koo sant Cheikh Maodo ba si wax na ko léegi xese bi kon lan koy mën a sant rek mooy rek nii ngeen ko yëgee ndax jéego yi ngeen dox loolu leen ko may muy xas woo ci la. loolu moom mooy mën a am jublu yàlla bala bala bañ a gis dara ci diggante bi na am na xisab koo xam ne da doon nattu ak njabootam ba xam yow yow nañu walla yowuñu jox leen ak fetal mu leen diir leen mu ko jox nga diir loo gis nga gis naa nangam gis naa nangam moom ak si ka nga xam ne da ko ne gisuma dara loolu li ma diir mu ne loolu laa doon wut waaw waaw loolu laa doon kon noonu rekk la da ngeen noo ngi leen noo noo noo noo ngi am mbégte mu réer réer réer réer ci yéen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 mooy tawfiix sëñ Tuubaa ju sell ju wér maa ngi ñaan ku ne taalibe yàlla def ko ci yow noonu dong dong dong dong la yoon waa ngoog nu yoon waa ngoog ah ñun ñëpp ñun ko bëgg ko waaw ku gëm yàlla bëgg sëñ Tuubaa loolu sëñ Tuubaa ñun ñëpp a bëgg li ngeen bëgg li ngeen la ngeen nekk ñëpp a ko bëgg waaye nag ah, xorriya bi maanaam maanaam liberté bi bi ngeen am moo def liberté lépp dara dara dara dara tënku leen ngeen soobu yoonu yàlla waaw ah, moo moo loolu moo tax may wax loolu moo tax may wax dangeen am lu jafe dangeen am lu jafe waaye lépp sëñ bi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 kon nag yoon waa ngoog yoon waa ngoog yàlla nañu suñu borom gën a gën a gàttandoog gën a gën gën a gàttandoog kon nag yoon waa ngoog barkal barkal jërëjëf jërë ngeen jëf sant gi sant gi moom ban leen xame dañ leen sante woon Serigne Touba sant leen cant gu rëy suñu boobam it dimbali leen tawfeex jooju am na lu ci yàlla suñu boobam defal mooy tawfeex Serigne Touba da ngeen a jóg rek.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 waaw ci yéen yéen lañ daal doon jox misaal may leen ndax seen borom dafa tëri dara bu ko neexoon ñëpp tegu ci yoon ñëpp moo ndax sëñ Tuubaa daal da suñu borom da ko jombalee dara lu baax sëñ Tuubaa suñu borom jombalewu ko dara lu baax loolu mooy jël loolu danaa ko tontu ci ci ci ci ci ci ci ci ci lu ngeen yëgu lu ngeen yëgul waaye diin ko gunge.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 man na sëñ Tuubaa rek tax moo ko tax a jóg kon nag ñoo ngi sant mu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan li ma ñaan suñu bopp rek suñu boppam dañuy dolli yàlla noonu dolli taw tawfeex sëñ bi ci noonu yàlla noonu yàlla noonu di ñu dolli suñu di dolli suñu tawfeex di ñu dolli taw tawfeex sëñ bi ci noonu waxtu wu moom laa xëy di ñaan ku ma ñaan rek ci moom laa lay mujjee moom laa xëy ba ba wax ba tëdd loolu moom laa gudd gudd loolu rek lay ñaan. kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf leen bu baax a baax baax a baax ci jéego yi ngeen jéggee ak jataay bu bu yàgg bii ngeen toog ñu ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw yàlla noonu suñu gën a gàtt nag tawfeex sëñ Tuubaa ci suñu biir suñu bitti suñuy mbir yëpp yàlla noonu suñu gën a gàtt nag tawfeex sëñ Tuubaa kon dafa mel ne tawfeex sëñ Tuubaa rek am solo dafa mel ne tawfeex seen tuwaat doo am solo ah kon nag moom lu ñu def nan ñaan rek dañ sax sax lu may ñaan rek yàlla na suñu borom gën a dool leen dool suñu dool seen tuwaat loolu rek la loolu rek la waaw ah, loolu rek la kon pëstéef bi ak junj gi ak yéene ji ak jaxaay bii mel na ne xam ndax dara bett ci te fu ngeen bëgg mu àgg da da da ko wees loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa moom laa am yaqin ba nga fa jataay bu njëkk ba bii xamee ko lii dara rëbbati ci te am na yàq yi itam ci li ci kanam mun na ñàkk ñaan rek suñu borom sàmm leen ci yàggal leen wéral leen ba ngeen mën a nekk ci liggéey bii na ngeen ko yéenee loolu rek la ñuy ñaan waaye amu ci dara loo xam ne lu bett sama sama am naa ci yàq yi. kon. jotaay bi njëkk boo leen def toogoon ak man di ma ko wax ak ak jotaay bii xam moo ko ndax dara bëtt ma ci amul lu ñu fi wax nag loolu fexe dimbali ñu ba njaboot Sëñ Tuubaa gi ñu àndandoo dem ba ca fa ñuy teg fa ñuy tàmbali liggéey bi ñu teewandoo ko dara du doon ci lu nag bu ñu demee ba bay bay yëkkati mool bi jiital ci ñaan bi la may la may la may naan ñun ñëpp nan teewlu ñun ñëpp nan teewlu bu ñu teewloo nu nu nu nu yeesal suñu jaayante sëriñ bi di yeesal suñu yéene di yeesal suñu di gën a wéri ba séef di gën a jublu sëriñ bi teel rekk tax la cee dolli ko moo di bu ñu yeexalee suñu jaayante ba noppi li ci kanam liggéey bi sëriñ Tuubaa bii liggéey bi bii ñu tàmbali da cee bokk waaye liggéey bi réy na yaatu na te il faut mu yóbbu ko fa mu ko jëmee waaye nag du tee ñaan nanu ñaan liggéeyu sëriñ bi bii yàlla kattanal nu nun ñii fi teew nii kattanal ak ñeneen ñenuy wuutu ëllëg suñu moom kattanal leen ba ba bis ba sëriñ bi soxlaa jataay bii muy bis bu bis bis bis bisu bisu daje ba rek kon ci barkib sëriñ bi ñi yor liggéey bii ñi nekk ñi fi teewee ñi ko teewee nii ak ñay ñëw ëllëg ñay ñëw ëllëg muy wéy liggéey bu mu laal suuf mukk nañ naan bu mu laal suuf mukk lenn dong dong dong moo war a liggéey bi mooy yëkkati baatu sunu borom sëriñ bi ñëw leen yëngutam bépp léppam jàddul lépp mi ko def ci yëkkati baatu sunu borom ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong moo moo moo moo ko fi indi loolu it lañu fi bàyyil mooy suñu ndono ci loolu rek lañ war a nekk suñu lépp ci loolu lañ def di ñaan nag ñun ñii fi teew mu gën dolli nu kàttan eh, ban mën koo taawu liggéeyam bii bu yàlla bu nu yàlla wooyee eh, eh, ña ña ña ña wuutu yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis ba ci mën a jëm jëmul fer bis ci mën a jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ak mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwatu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laal suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa sëñ Tuubaa di demoo waaw ba bis bi fa sëñ Tuubaa di yàlla alhamdulilah yàlla boole yàlla nu si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ Tuubaa xoom xoom sëñ Tuubaa ga ca biir ñu yaa ngi bokk nga ci ñan bi waaw ndam ndam ndam ndamam ëllëgam loolee yàlla nañ ci bokk waaye yàlla nañ lu gën dimbali itam ban liggéey bi liggéey bi ñu taawul ko kooku ba bis biñ ci ba loolu rek lañ ñaan ci barkeem ci barkeem ci baaxam ci ngëneelam ci pàkkute fam nag ndax lépp pàkkute jërë ngeen jëf nan dem nag def nan dem ba bi li ci ay yeesal ay cantam rek sant gi ma sant suñu borom ngir boole gi ma booleeg sëriñ bi moo jiitu di sant sëriñ bi sama léppi tey ëllëg ndax li ma sama léppi tey ak ëllëg moom dong laa ci wut moom dong laa ci wut ñàkk di ko sant nag bu baax baax xel mën a yem ak cant xol man faa ak foofee laa koy àggale maa ngi leen di seereel sama cant bu rëy la ca dolliku nag moo di ni ma ko waxee rek suñu diggante ak sëriñ bi sama doom yu baax yi sama doom yu baax yii xam xam naa ne dañoo bokk rek

bi. bi may dégg di dégg mati rek di dégg di dégg di dégg ba dégg ñaar ñoo ñooñu nga xam ne mooy doomi mooy sëñ jiiri moom sëñ Cheikh May ak sëñ Fallou moom sëñ Moustapha Absa ci seen i taxawaay ak seen may dégg ba suñu borom dogal nag ma am lu ma ci xam. sëñ Khalil mii moom amoon naa ndigal ci moom jaar na fi man ci moom mii moom amoon naa ndigal ci moom ci ndigalal sëñ Saliou jaar na ci man. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. ñoo ko andi itam ñoo ko ma gisee loolu. mu yëg mu sori ci man lool. ma yëg ko mu sori ci man lool. mu wóor na ma ne. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal ko si yi moo jiitu. ko xaside yi moo ci jiitu. bi ma xamee loolu. bi ma xamee loolu. doom jéem di seet sama dom je di sëñ Cheikh Fatma moom sëñ Moussa Bachirou. yalla defal nu ci tawfiq ci mom yalla defal nu tawfiq ci mom defal nu ci njub. defal na ci njub. ci xam-xam. defal nu ci xam-xam. yalla xiir ko itam. yalla xiir ko itam. liggéey boobu. ci liggéey boobu. liggéey liggéey liggéey boobu liggéeyub serigne bi moo jiitu ci liggéey yëpp. ndax liggéeyub serigne bi mo jitu ci liggéey yëpp. liggéey boobu mu doon mu defal bop liggéey boobu mu defal boppam. diggam ak boromam. diggam ak boromam. diggam ak yonent bi. digganteem ak yonent bi. diggam ak boppam. digganteem ak boppam. ma daal di santaan nag. ma daal santaan nag. Eh, sëñ Cheikh moom yi. sëñ Cheikh moom yi. nga xam ne dafa daal di sama xel li ma yéene. sama xel dafa daal di dal jëm ci li ma yéene. muy lu bopp doom yu baax yi bind. muy lu sama doom yu baax yi bind. bind ko seen loxo yi. ñu bind ko ci seen loxo yi. lu ma ñàkk ñàkk ñàkk solo. waaw waaw moom de lépp lu jom yi man it muul ko. man fas yéene naa am taxawaay muul ko. waaw lu ci yàlla dogal rek. lu ci yàlla dogal allah lépp laa bëgg a muul. loolu dama dama li ma ko waxee rek eh, sant bu baax. loolu nag ni ma ko waxee rek sant naa bu baax. tawfeex ji ma am ci sëriñ bi. ma am ci sëriñ bi waaw Mbacke tawfeex ji de rëy na lool waaw. sama dundug àdduna. ba ba tax na sama dundug adduna sama dundug alaaxira sama moom rek laa ci mënta ñàkk moom rek laa moom noppi woon naa ci bu yàgg. noppi woon naa bi ma daataa agsi foofu bi ma daataa agsi foofu. loolu nag tax. loolu nag tax.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 kon loolu rek mooy sabab si. la ca dolliku. la ca dolliku. mooy muy muy muy jataay bii. mooy jataay bi bi loolu amee. bi loolu amee. damaa daal di xemmem jataay bi. damaa daal di xemmem jataay bi. bëgg ñoom ñooñi. bëgg ñoom ñooñi. ñu teew si fi. ñu teew si fi. ak képp ku yeyoo ci jataay bi. ak képp ku yeyoo jataay bi. nii mu demee nii rek. nii mu demee nii rek. noonu laa ko bëggee woon. noonu nii laa ko bëggee woon. boo xam ne. muy jataay boo xam ne. dama leen di dama sama digg ak ñoom. sama digg ak ñoom. loolu wane rek teraanga. na lool ci ndax lu ma ci def rek ci teraanga rek néew na lool ci dama ko bëgg. waaye loolu dong laa ci jublu. waaye loolu dong laa ci jublu. di bokk jotaay. nu bokk jotaay. masant leen. ma sant leen. kañ leen. kañ leen. di seereel sama borom. seereel sama borom. di seereel sëriñ bi. di seereel sëriñ bi. ni seen liggéey boobu yi. ni seen liggéey boobu yi ñu sëbu. fas yéene caa ànd fas yéene caa ànd ak ñoom feeg maa ngi noyyi ñoom feeg maa na yàgg lool loolu nag moom moom laa leen doon seeral ñoom loolu moom laa leen doon seeral ñoom bokk seeral bokk yu baax seeral bokk yu baax yëpp nga xam ne am nañ yeeyoo teew ci jotaay bi am nañ yeeyoo teew ci jotaay la loolu rek la loolu rek la waaw ndax yàgg fi lool eh, ngeen da na ngeen seeral ne daal ni ma ko waxee woon rek. ni ma ko waxee rek sëñ bi rek laa mënta ñàkk. sëñ bi rek laa mënta ñàkk. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. ni itam nag. na ngeen seere nag. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. te bu ma sañoon yenn ko yóbbu ko fa fa fa ko sëñ bi bëggee. te bu ma sañoon yenn ko yóbbu ko fa ko sëñ bi bëggee. waaye yitte ji nag. waaye nag yitte ji nag. lii laa ci jiital. lii laa ci jiital. fas yéene cee liggéey rek. fas yéene cee ci mën a boole boole ci mën a boole laa leen di muy tàllal ngeen ñaan yéen tàllal tàllal leen sañu ñaan gërëm bu baax a baax waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax Cheikh Bass suñu Moussa dama laajoon eh? ba xam ndax danaa fi yëkkati kàddu ma ne fi jataay bi moom yëg-yëg bi ci suñ bi am wóor ma ne kenn mënu ko ci wut kon nee na ñu yàgg fi lool ba egg ba ba li bëgg lépp mu egg incha allah des na tuuti rek nee des na tuuti rek jëmmi yooyu nag jëmmi yooyu nag dama yaakaar ne dama yaakaar ne buñ ci nekkee. buñ ci nekkee. dana mas a bari lool. dana ma a bari lool. loolu nag moo tax. loolu nag moo tax. bëgg ñu wutal ko kër boppam. waaw ñu wutal ko kër boppam. bii ba yéeg teg bu sëñ Moussa Dieng fii dara xajatu ko. déedéet di gàtt dara xajatu ko. béykat béykat. daal mi naan yëpp waaye dama bëgg bii moom ñu wutal ko kër boppam goo xam ne. mbindum bi dong moo ciy nekk. kër boppam goo xam ne mbindum sëriñ bi képp moo fay nekk. loolu mooy ngeen xamaale ko ci. ngeen xamaale ko ci. dañ ko dañ ko daal sóobu nag fi saasi. dañ ko ci sóobu ci saasi

ab angaar la itam. donte ab angaar la itam. dana fa xaj dana fa xaj loolu rek laa ci bëgg. loolu rek laa ci bëgg. ngeen xamee ko noonu. ngeen xamee ko noonu rek. suñu yaatukaay. Nee, léeg léeg damay ne samay xel samay xel samay sa jëm dañ bëgg a jiit sama xel waaw moom mii déyoon naa ko ne ko moom mii déyoon naa ko moom sëñ aatu bi kër googu ne kër googu maa ngi ñoom ñoo koy liggéey moom mii sëñ aatu moom moom ñoo koy liggéey mënoon na maa wax Cheikh Bass mënoon naa maa wax Cheikh Bass ak sëñ Ahmadou Badé bi ak sëñ Ahmadou Badé bi ñu seet ñu seet ñi kuñ kuñ koy liggéeyloo. kuñ koy liggéeyloo. ca ca barab ba. ca barab ba ci université am yéene bari na lool. ñi ci am yéene bari na lool. xam ne nag lii moom. waaye damaa xam ne lii moom. moom moom moom

xam na lëm sédd boromam xam na lëm sédd sëriñ bi bu ca xelam dalee na gën a góorgóorlu bu baax yokk ko bu ca xelam dalut na ca góorgóorlu ba xelam gën caa dal loolu dongkat moo nuy amal njëriñ amul leneen leneen leneen loo xam ne du dul dolli na ay jafe-jafe baati baat jamono jooju bay xew du dul dolli na ay jafe-jafe jëm ci leneen lu lu sunu borom ci gannaaw sëriñ bi amul nu na njariñ dañuy dolli ay jafe-jafe rek àdduna moom xëy na dëgg la nii la baaxoo sax mu sa jàkk waaye suñu jamono ji moo ci raw sëriñ bi ndokk Cheikh Sidi Moustapha ndokk bi nga xamee ne itam jëpp mi ko jëmee ci sëriñ bi jëmee yitte sëriñ bi moom moo jëme yitte sa borom rek kon ndokk bi nga xamee ne itam jëpp jëmee ni ko ci sëriñ lii mu digle jamono bi ne waxtu wu ne baax na la baax la am waxtu wu ne baax na am na njëriñ waaye dafa mel ni suñu jamono jii nag moo ci raw li ci bari ñu yaakaar ñu ci bari dégg nañ la nga xam ne moo xaw ci réew islam yi ay julliti kese di rayante seen biir te adduna rek tax loolu képp jar na jóg jëm ci lii sëriñ bi digle dellu ci suñu borom waxuma la sax réew yi arab yi waaye mën naa cee wax menn réew moo xam ne muy Filistin fa nga xam ne fa la masjidul aqsa nekk fa la nga xam ne fa la su su su su su su yonent bi foofu la rañaane wu jëm ci boroomam foofee ay noona ko wër këpp aw ay ay néew jóole dëkku fa noonu yooyu bëgg leen a génne foofa leen buntu xasaal ci wet bu ne di rey di jàpp loo ko soob mu def ko ndax ëpp gëm leen ëpp la ëpp doole loolu kon lu néew néew doole lii jar na di ko def waxtu wu ne ngir ngir ngir liggéey lislaam la ci suñu kem kàttan ginnaaw moom ku gis loo xam ne gënut boo ko mënee faj da koy faj fa saasa boo ko mënut faj nga wax la la ca naqari lépp bu munta wax nga am nga am naqaru xol mu wóor a wóoru wu xóot ci yow ngir jëf ju bon ji nga xam ne moom nga yëg moom nga gis kon lii sëriñ bi digle alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi ñu amee kilifa boo xam ne waxtu wu ne mën nu jéem a delloo ci sëriñ sëriñ bi nan noo ngi nan sant bu baax a baax a baax nan sant bu baax te góor góorlu nag nan dellu ci suñu bopp kenn ku ne ci ñun ñi fi teew ñëpp ak ñi koy dégg kenn ku ne ci ñun na dellu ci boppam seet diggam ak boroom seet diggam ak sëriñ bi la mu la la la mu def ci loo xam ne na ma ko waxee léegi rek la mu jëf ci loo xam ne dal na xam jigéen ma boroom alhamdulilah rabbil na ko yokk la mu sàggan diggante boroom ak diggam ak sëriñ bi xam na ko na ca góor na fas yéene jóg ci càggante googee muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñun ñëpp ñoo ci yem ñun ñëpp bëgg mucc tey ëllëg kon ñàkk a xam ak sàggan rekk fi nekk damay wax ni ku gëm yàlla gëm gu wér gëm alaaxira il faut da xool sa bopp soppi saw doxin xam ngeen li ma wax kon nan góorgóorlu bu baax te xam ne eh, ña nga xam ne ñoo daw jëm ci seen boroom ba jege ko lool ñooñu seeni bàkkaar moo di noo noo goo xam ne jëmul ci yàlla loolu mooy seeni bàkkaar moo tax ñuy wax ne eh, yii yiwi gaa yu baax ñi mooy ñaawtee fi gaa yi jege yàlla yi kon jëm ci sa borom amul waxtu waxtu boo ci amee tawféex rek santal yàlla te jëg te te te fëx daw lu dul jëm ci sa borom kon jërëjëf sëriñ bi moom mi nga xam ne waxtu bu ne mi ngi delloo ci suñu borom li ñu digal loo xam ne njariñal julli yépp lay doon ñu ko sant bu baax di leen sant ñi ñi nga xam ne taxawaay bii sàmm alxuraan jëfee alxuraan di biggee alxuraan di dundee alxuraan loolu mooy suñu liggéey ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax yoon waa ngoon ñi ngi sant bu baax nag alhamdulilah rabbil alamin الشيخ محمد بشير مني في مشافة الفاضل ثاني مامور مشافة الفاضل ثاني بشير مي موسى حبيب يا خامن كنا خامن كم من لي ماني ذكري فتبارك الله مني كان كنا أه، خيب ناس ما بقى تجاي بي فهذا دون ما نفسي تجاي نعم نعم نعم ak seeni rakk ak seeni mag dana ñaan rek suñu borom mu gën a sàmm Seex Sidi Muxtaar di gën di bàyyi lu yàgg yàgg nekk mu gën a mën nekk ci liggéeyam bi te ngeen fa bàyyi leen ñi nga xam ne yenn a jëw yi ñi sàmmal xaal leen di ñaan ñaanal yéen itam suñu boom sàmm leen sàmmal leen te bàyyi leen fi wéral leen kàttanal leen ba ngeen gën a mën a nekk ci li ngeen nekk sama sang si dëgg la maa leen def ci maa leen def ci wet waaye man kilifa laa leen def na ay sang laa leen jàppe ñoom ñii nga xam ne ñoo fi teew teewal fi ñi seen seen i bokk yi fi teewul ñu ngi ñaan bu baax a baax ñu ngi doon la ñaan bu baax a baax ñu gën a ànd ak Seex Sidi Maxtaar تي تيم دي قنا عندك يين تسين تخوابي تسنو بورم تلي قول درا ودف كينو نك ويرد نجاب بقين بقين بق سرين تباب بدولة لب مضالي نك بن ما نقدر تقول شيء أنا مو بقول بقول mën a gën a mën nekk seen i jëwriñ ma mën a gën a ànd ak yéen loolu noonu nan ko ñaan ñun ñëpp ñaan na ngeen ma ko ñaan ndax kilifa mun la ñàkk te kilifa nu mel ñi mu yëlif noonu rek la mel kon nag na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen leen di ñaaral man dinaa ba noppi mag laa ay moom ñii ay ndaw lañu na ngeen leen ñaanal sum borom tëbb leen gën leen a dolli xel mu rafet mu leer gën leen a dolli seen i pëstéef gën leen koo dëgëral gën leen koo sàmmal yokk gën leen a yokk yitte xam li nga xam ne moom lañ am masuuliyaat yi nga xam ne moo leen moo tegu seen kaw du gën koo xam ba mën koo ëpp doole mën ko jëfe bu baax a baax a baax wax liggéeyal ko sëriñ Tuubaa lépp sax dàkk ci liggéeyal ko ci islaam sax dàkk ci liggéeyal ko ci bopp ci suñu lépp nag damay wax ne liggéey liggéeyal sañ tubaa dañ koy tàmbalee ci suñu bopp dañ ko liggéeyal ci suñu bopp ba koy liggéeyal suñu bopp mooy jéem a defaru rek ba suñu xel daal seen gën a jébbal jébbal ñu gën ko jébbal suñu bopp la ca doon door caa dolli nag yeneen lu mën a doon bu baax lu baax lu mën a doon rek loolu ca mën rek dañ ko def am ca pëstif liggéey la ko sëriñ bi ak lu mën a doon kon jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax ko waxee nag eh, xëy na fi ma toll ma ma gën a yàlla saytaane gën maa sori waaye mag bi ñëw na doole di yaram bi ñu ngi fi waaye alhamdulilah rabbil alamin sant naa bu baax ci li ma wees sant naa ci lépp kon moo tax ma bëgg ñi ñaan googu Cheikh Mahamadou Bachir mii Cheikh Mahamadou Fadil sëriñ Mamour mii mu Cheikh Mahamadou Fadil sëriñ Bachir mii mu Cheikhul Habib ngeen xam ne seen taxawaay mat na sëkk xeeb naa ci sama bopp lool man ci taxawaay bii xam naa da ngeen ma ko yéene rek yéene ma lu baax rek waaye xeeb naa ci sama bopp lool waaye ni ma ci xamee sama xeebee sama bopp nag ñoom ñi leen ñi leen ñi leen laa ci ñi leen laa nawee ci taxa ci ci jataay bi ci taxawaay bi kon euh, ni ma ko ñaanee woon rek loolu baamtu nan ko suñu borom defal bañ gën a mën a jublu sëriñ bi bañ gën ko mën a jox suñu lépp bañ gën a mën a sax ci liggéeyale ko suñu lépp daal di wax sax man ci waxi daanukat daal di wax ci waxi daanukat nun suñu jaamu yàlla dafa ñu fasaale ca liggéeyale ko sëriñ bi doon ko liggéeyal nag moom ci boppam ci lépp lu baax suñu kenn kàttan man noonu laa ko gisee kon maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu bu baax a baax baax ci lépp loo xam ne ak matali la bu ma weesu matali la matali la bu ma bu teew fi man matal la matal la ji loo jëm da nga koy jëm bu baax a baax wax dëgg ko seetal yàlla ñu marché suñu borom may nu yërmandeem gàttal loolu noonu njëggalan bi bitti gën ñoo xiir ci boppam gën ñoo xiir ci sëriñ bi gën ñoo xiir ci lépp lu baax lu war a jëf jërëjëf nii nii nu nii nu nii nu nekkee fii noonu noonu noonu lanu lanu gisee ci waxtu bii. Mm-hmm. noonu lanu gisee. Mm-hmm. ñu fi nekkee rek ni lanu gisee. muy taw bi wéy rek ci noonu. Mm-hmm. xasida yi bari na loolu waaye ñu jàngal nu xasida yi nga xam ne moom. ñëpp dañu bëgg mi ngi ci biir xasida loolu tawfeex rek nu ko may. alhamdulilah rabbil sant bu baax a baax baax baax. sëñ bi dafa doy lépp bi may ñaan sax dama boole suñu borom ginnaaw mooy def ak dindi amin bakki amin bu ne maa koy alhamdulilah amin bakki sëriñ bi ci waxam nag mooy boole na ci boppam amin boole na boppam amin amin amin amin bakki tawarkal tawarkal gàttal na nu boppam amin amin womatal na boppam amin bakki amin amin amin loolu rek. Mhm. mooy mooy ñaan gi. ginnaaw mhm. mhm. suñu borom mooy def ak dindi. Eh, may nañu tawfeex sëriñ bi ba noppi waaye mu dina ko doon nag di wéy. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. sëriñ bi nag. boole ci boppam moom ci boppam. gën noo gàttal lu boppam. gën noo womatal boppam. amiin amiin alhamdulilah amiin bakki amiin amiin. suñu jotaay bii. ñu ngi nuy gis. lii may wax mi ngi koy dégg. la ilaha illallah. kon sant rek. sant rek. alhamdulilah alhamdulilah. sant rek. alhamdulilah jërëjëf Mbacke. waaw sant rek waaye dafa am baat bu koy lëkkaleen nag sant ak soññu mhm. sant nan sax ci sant sax ci soññu moom baat boobu soññu laa ci sant sax ci waaw ñoo yàlla na nekk ci diggante boobu rek loolu sax ci sant te sax ci soññu nag suñu bopp ci moom. loolu rek la. tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla Mbacke tabaarkalla jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. loolu rek la jërëjëf jërëjëf. saa ci sant. Mhm. saa ci soññ suñu bopp ci moom. tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla. Euh, loolu. Mhm. yaqin la ci ne. Mhm. yiwu àddina ak yiwu àllaaxira

yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira moo ci jiitu ak yeneen yi nga xam ne nag xel mënu jàdd ko xel mënu koo daj noonu rek dafa sax ci sax sax ci soññ suñu bopp ci ci gépp wàll fazer quero um café. yem ci kàddu yooyu rek. doy na sëkk doy na sëkk mag ñëpp sant nañ ñëpp ngi lay sant sëriñ bi ñëpp ngi lay sagoo ñëpp ngi lay béggee ñëpp ngi lay ñaanal Mbàkke fàggul mboolem ku fi teew rek yàlla jéggi la say bàkkaar te defal kenn defal na ko rek. dañuy bëgg ay ndol la ni ndol la ni ndol la di wéy ndax ngëneel yàlla yëmul fenn

taalibe yu dëggu yii jiituma ci wax ji doyoon na sëkk waaye waxi Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku ñu ci bëgg xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da cee mënta dolli ko lu dul nag rek sant ak santalu nun di gën a ci noonu muy sant rekk sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gëna jëmit mu dëgg ci xel yi gëna jëmit nak mu dëgg ci jëf yi nun sant sëriñ bi rek mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp yàlla moo nu bind andi nu fi di jaamuloo nu di jaam ñu war a jaamu kon bu bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lanu sunu borom bayee nun ci mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko nu dolli ko ca kon suñu cant nun foofu rek la war a nekk ak cant dong laay dolli ci wax yi Cheikh am sama ji góor góorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu paggu téef bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënal lu lépp nu doyloo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaw nag sant sëriñ bi ci nun wër am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo na ko faggul am nan ko doy na sa tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeñ moo ngi àdduna yóbbaale ko suñu yóbbal ci àllaaxira di sant Sëriñ Tubaa kon nañu góorgóorlu bu baax lañu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ñu ko gën a dund gën a kawe ñépp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la liggéey bi nekk na ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yi mu fi nettali fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam ak nam nam doon doxe digg ma boroomam ak digg ma yonent bi ak nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ko gën xam gën raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp la liggéey bi amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon sunu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a ci nun yaar nun ca gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel bappam di gën a bëgg ci loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor góor gën a góorgóorloo dinaa dañoo bi di bëgg ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi teygal nag dañu góorgóorlu ci yar dañu jéem a set set set ci bàkkaar sunu kepp kàttan yomb waaye nañ ko jéem ndax moo ni ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay di moy suñu xaas lu ñu gën a fonk xasida sëñ bi di gëna a ci ñun lu ko gëna a jàng gën a jege bi waxi sey Abdou Samad bi loolu yaar yooyu la ci dolli nañu góorgóorlu bu baax ci yema set di gën di set ndax lu ñu gëna set rek señ bi gëna a ci ñun lu ñu gëna set gëna a señ bi te man ko xasida yi nag xasida yi مون ورا داقل لب لوني لك لوني داك خزي مون ورا داقل لوي داقل خل لوني تي خزي نغرناي جانج خزي مو غنا غاو نون رك لا دمي فوف رك لا يم واخي سي عبد duma ci dolli dara rek laa ci dolli kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góor góorlu ak lu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góor góorlu di di set góor góorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunub dund ndax mën na ko loolu rek la li ci maanaam nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar wax waaye maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp bi ne maa ngi waxal bokki taalibe yëpp dafa am lu ñu ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp ne mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa yëpp nga fonk te gëm leen waaye da nga fab kenn mu ngi sëb nun ñii ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu sëñ ma ko nooru daari li ngeen def doy na sëkk nooru daari daari moom am naa am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde sëriñ Cheikh Saalihu moo ma ne ma ko jàngal nooru daane ni Cheikh Saalihu moo ma ne ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj gi bis bu sel ma jàngal ko ko bi ma ko gisatul te xat xat yi bari aji mujj ne ma jàngal ko ko boo koy jàng du ma ci fas dal Seex Saaliw rek laa koy jàngal moom laa koy liggéey waaw waaye xasida yi xasaa rek laa wax waaw buñ ci bu ci wóor ni sëñ bi ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu gën a bari gën a baax noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci waxi Seex Abdu Samad sëriñ Basirou dafa am bis mu maag beneen mbokkum taalibe muy waxtaan ak ñun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bëgg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne ko diw boo yoroon dalli weñ di ko doxee ba mu xar doo gis ku mel ni man <laughs> ah sëriñ bi nag sëñ Basiru moo ma fullaam te wax jooje la dem ba tàng xaal ne waaw sëriñ bi sax mu am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa day waxtaan day wax ba yàgg mu gën tàng ne waaw sëriñ bi sax am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa kon bis bii leer na taxaw sañ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ sëñ bi foo ko toll mu toll fa leer na nañ moom nag dañuy gën a ñaan rek waaye sampu sëñ bee waaye dañuy gën a ñaan nag bu gën su ma ngir koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi fa lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg de ñoo ko gën a bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg ko bëgg waaye boo ko di seet da ngay defee ne sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la mbir la gone yu ndaw yi ak jigéen ñi ak ñëpp gone yu jigéen ñi boo ko di seet da ngay defee ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mbir la mën naa dalal waaw sëñ bi fàgg fàggul nanu lépp waaye buñ na yàcc buñ yàccaaral buñ sàggan nanu jiima sant sëriñ bi ci ni mu ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf ñaan

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi ñoo bu baax rawatina juróom nuy sant sëriñ bi bu baax di leen xamal ne faggul nanu sunu njëriñi tey ak sunuy njëriñi ëllëg lépp faggu na ko noo koy sant bu baax pàggtee fi fa tabaarakallaahu yaatu na liñ ci mën a jiital mooy jataay bii rekk faggu gi mu nu faggul ñaari sëriñ faadilu kii di imaamu taraawix kii di imaamu eh, salaatil aydayni di ay gone yu ndaw ñu waajal leen waajub lislaam bu mat sëkk dëppale leen dëppal lislaam muy alxuraan noo ngi gën a sant sëriñ bi bu baax ndax loolu lépp pagute fa moom ne ñeewunu madinatul munawwara ci seen ilimaan ñeewunu it makkatal mukarrama ci seen ilimaan loolu lépp nag fàggu sëriñ bi rekk kon nag noo ngi koy sant bu baax moom Sëriñ Tuuba bu loolu wée ñu farlu ñu farlu ci dool ñu ñu farlu ci jooyal lislaam loolu moo di taxawaayu lislaam ak doxiinam ak ni mu gaawee am am téq fanweeri at yu tegal rek mbooloo mi mel ni lépp a soppiku ti ti li fi ngeen ji mi def bàyyi woon muy liggéey bu rëy bii di lislaam mat sëkk ko waxee woon rek nam ko waxee woon rek ne al yawma akmaltu lakum diinakum ñu dox tuuti at yu néew dox tuuti at yu néew lépp xaw dellu ca na meloon lépp xaw a dellu ca na meloon ñooy seti yonent bi ñu ah ñu rey seti yonent bi ñuy rey seti yonent bi di jàpp ay setam yu jigéen ni ki jàpp njaam ni jàpp njaam benn yàqu-yàqu mënu defe loolu defe naa benn yàqu-yàqu munu ko lislaam di dem ci noonu rek nag yi rek nag di gën di gën di lëj rek diggante lëndëm lalu moo waral loolu moo waral jàmbaari l'islam yi jàmbaari lislaam yi gannaaw sahabatu rasul ñu jog ñu jóg fas yéene taxaw ay yonent bi sallallahu alaihi wasallam, sallam fas yéene ak dundal ko ak jele ak ko ci tumurankem ku ne xam na ci ne xam na ne ci la sëriñ bi bokk. gis nañ ni mu jógee. gis nañ ni mu jóge dafa mel ni da koo àndaale. mel ni da koo àndaale. dunde ko. dunde ko. lépp di jub ci lislaam. lépp di jub ci lislaam. am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon. am taxaw delloo ko fa mu newoon. moom xaadimu rasul ba ñu jëkk a ànd ak moom xaw na leen a def ni saxaabatu rasul mën na si ne leen a yéegalit ca ñoom kon fii ñu toll nii war na noo taxaw war na noo tal leneen lu jógaat ci lislaam lu jógaat ci lislaam jàmbaari lislaam yooyu jàmbaari lislaam yooyu seen taxawaay yooyu seen taxawaay yooyu seen liggéey yu rëy yooyu seen liggéey yu rëy yooyu te sëriñ bokk ci ñoom te sëriñ bi bokk ci ñoom kon kon il faut ñu war a jooyal lislaam ndax moom bu dundee moom lislaam yoon yëpp dund bu tumurankee yoon yëpp tumurankee kon kon ñu toll nii jullit yëpp dañoo war a jógaat ci lislaam kem kattan

te taxaw ci temm def ci sunu lépp loolu muy sunu warteef nee na loolu moom lan war a tal bala noo tal yoon yi nañ tal lislaam bu lislaam dundee yoon yëpp dund kon nag kon nag il faut il faut nun nun ñii di ñooñ Sëñ Tuubaa nun ñii di ñoñ sëñ Touba. il faut nu jooyal lislaam. boole ko ci liggéey bi. ñuy liggéeyal sëriñ bi. il faut nu jooy. il faut waaye loolu lépp nag. waaye loolu lépp doomu aadama rek la. ndax suñ boroom. mooy def mooy dindi mooy te xam na ni muy def. te xam na ni muy def. te loolu lépp moo kon lu nu jooy jooy jooy. lu nu jooy jooy jooy. nañ far sunuy rongoñ. donc delloo lépp ci moom. loolu delloo lépp ci moom. bu ñu delloo lépp ci moom. bu ñu delloo lépp ci moom. dellusiwaat ci sëriñ bi. dellusiwaat ci sëriñ bi. góorgóorlu bu baax. góorgóorlu bu baax. fas yéene koo sagalal lislaam. fas fas yéene koo sagalal lislaam. ko lu li ñu koy defal lu mu néew néew. li ñu sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. sagalal ko mooy fonk lislaam li mu digle. li mu digle. ñu di ci góorgóorlu suñ kam kàttan li mu tere. li di ci góorgóorlu suñ suñ kam kàttan daw ko. al imtisaal wala ijtinaab loolu mhm, loolu mooy mooy mooy lislaam mooy lislaam la ca dolliku la ca dolliku moo dig taalibe moo mooy makaarimul axlaaq rek mooy makaarimul axlaaq rek kon kon nan góorgóorlu bu baax bu baax lislaam diine ji fas lislaam ji ci fonk lislaam ji suñ kem kattan suñ kem kattan la ca la ko dalee ca gone ga nga xam ne jullee nga koy door war doog a war ak mag mi nga xam ne daanaka mënatu ko ak ñi ci diggante bi ak ñi ci diggante bi ñun ñëpp nan góorgóorlu gën a fas sagalal sëriñ bi lislaam nañ fonk julli mooy waxtu yi juróom gën a fonk ponk yi gën a kem kattan loolu loolu buñ ko sàgganee buñ ko sàgganee buñ ko caaxaane buñ ko caaxaane buñ ko ko rafete daal njot bu nu war la warteef bu nu war la nañ ci góor góorlu kem kattan kem kattan fonk sun diine fonk suñ diine nan ko fonk nan ko fonk fonk sunu taalibe nag fonk sunu taalibe nag ndax ak taalibe bu amut ndax ak dana jafe dana jafe lislaam am lim bëgg lislaam am lim bëgg kon kon nanu góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu bu baax ci njub waaw li ko dalee ci gone yu ndaw yu tuuti yi. ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg tële. ba ci mag ñi nga xam ne ñi bëgg a tële. kenn ku kenn ku ne ci ñun. xool boppam. jéem a teg tànkam jéem a teg tànkam ci siraatal mustaqim. loolu mooy mooy teg tànkam ci njub rek. nag mel mel na ne ñaari mbubb la. ñaari ñaari njub doomu aadama. njubug nga xam ne. gi ñaari ñett buñ dee buñ dee fee ñaari. boo ñaari jëmm bu nee fee. mën nga caa xàmmee ki jub. nga caa xàmmee ki jub. ak ka dëng. ka jub nag. ka jub nag. day jariñ dama boppam. day jariñ boppam. ndax ñëpp dañ koy xoolee jub googee. ndax ñëpp mën koo jariñoo. ñëpp mën koo jariñoo. njubug yàlla nag. njubug yàlla nag. mooy def ndigal bàyyi tere. mooy def ndigal bàyyi tere. yàlla digle lépp. li yàlla digle lépp. di ko ñu di ko jéem a xam. di ko jéem a def. di ko jéem a def. li yàlla tere lépp. li yàlla tere lépp. ci biir ak ci biti. ci jéem a ñu di ko jéem a xam. di ko jéem def. di ko jéem a lu dul loolu. lu dul sàggante lay andi. kon nan xool suñu bopp. kon nan xool sunu bopp. gone gu ndaw gi. waxambaane wi. ña ca topp ña ca topp ba ci mag ñi ba ci mag ñi nañu kenn ku ne na xool boppam kon kenn ku ne na xool boppam na xool boppam ci ci ci njub na xool boppam ci njub ci njub xool boppam ci lislaam xool boppam ci lislaam xool boppam ci makaarimul axlaaq xool boppam ci makaarimul axlaaq bala ngaa am am taalibe bala ngaa amuk taalibe balaa taalibe ngay sotti bala moo rafet bala moo rafet in fokk ñu jëfandikoo makaarimul axlaaq suñ borom ci coobareem natoo moo nu nattoo moo nu nattoo def ci nun ay jikko yu baax def ci nun ay jikko yu baax def ci nun jikko yu bon waaye lañuy jëkk a jóg mooy fas yéene gën a nasaxal jikko yu bon mën a jëfandikoo jikko yu baax yi loolu yi rekk la yomb na lool julli jafewut waaw ñuy góorgóorlu ba di ko jëf ci waxtu di ko boole laab ponk yi itam. ponk yi itam. la la la koy fonk lépp. waaw la koy fonk lépp. mu mu mu mel mu mel ni waru gar. mu mel ni weeru lu mel ni weeru tedd wii nu jóge. mu mel lu mel ni weeru tedd wii nu jóge. ñu fonk ko nañ ko war a fonk. ñu fonk ko nañ ko war a fonkee. loolu mooy lépp. loolu lépp. loolu lépp. sëñ bi noppi na ci. sëñ bi noppi na ci. fàggul nañu lépp. fàggul nañu lépp. bayiwul dara. bayiwul dara. wax na. wax na. bind na bind na. jëf na jëf na. kon. kon amuñu wenn lay. amuñu wenn lay. buñ mënul dara itam. buñ mënul dara itam. Ah, waaye li mu defal. waaye lim nu defal nan ko sagal nan ko sagalal sagal nan ko sagalal fonk lislaam nañ ko sagalal defar sunuy jëm nan ko sagalal nan ko defal sunuy jëm defar sunuy jëf bu doon mënut dara itam war nan ko sant war nañ koo sant sagal googu yi mu sagal l'islam mom lañ koy meuna a sante moom lañ koy meuna a sante noonu rek la demee non rek la demee nan gor lu bax nan gor lu bax tank bàngu tank bàngu nan gor bu baax nan waaw ñoo ngi sonn suñ bopp. nanuy nanuy soññ suñ bopp nanuy soññ suñ bopp. di soññ suñuy bokk. di soññ suñuy bokk. suñuy bokki jullit. suñuy bokki jullit. suñuy bokki taalibe. suñu bokki taalibe. suñu njaboot. suñu njaboot. nañ leen di soññ. nañ leen di soññ. ginnaaw bu ñu soññee suñu bopp. ginnaaw bu ñu soññee suñu bopp. di leen soññ. te nekk ca lañ leen di soññee. te nekk ca lañ leen di soññee. suñu kem kattan. suñu kem kattan. nan ko def. nan ko def. buñ ko defee. buñ ko defee. dañuy mucc. dañuy mucc. adduna bari ni gàllankoor lool adduna bari nay gàllankoor lool. ak ni mu xewee ci jam li làmm yi di wax. mu di ay jafe-jafe. jafe yi du dara. du ci am. dara du ci am. maanaam du ci am jafe-jafe ju am a am. waaw jafe-jafe ju bu mën a am. noo ko teg suñu bopp. ku nekk ci la ku nekk ci la nga war a ne. jafe-jafe du am. jafe-jafe du am. njàmbat du am. njàmbat doo am. njàmbat li. njàmbat li. feeg nekkuñ ci leen war a nekk. feeg nekkuñ ci war a nekk. njàmbat yi duñ ci jóg. te suñu musiba rek duñu jëriñ dara. te xarab suñu borom rek. te xarab suñu dong la ñuy andil. kon kon nan jéem a nekk ci leen war a nekk. ci li ñuy mucc ci dundug adduna gi. ci téq téq yi ci am ak gàllankoor yi. ak jafe-jafe yi ak yi ci tax jàmbat yi bari. ak yi tax jàmbat yi bari. dara du ci musal. dara du ci musal. loolu fonk fonk fonk fonk diine. lu dul fonk suñu diine. góorgóorlu ci njub. góorgóorlu ci njub. ci makaarimu góor góorgóorlu ci makaarimul axlaaq loolu lépp nag nan koy def te yàlla tax koy def te yàlla tax mooy tax mu am njëriñ mooy tax mu am njëriñ buñ ko def ngir dara nañ ko def te yàlla lool loolay tax mu am njëriñ nan góorgóorlu bu baax xoolaat suñu bopp xool fi jamono ji toll islaam noonu mu ko waxee fanweer yu tegal rek wallaay mu lëndëm kërëj gaa yi yi rek ah gars yi benn benn yu baax yi. yu ñoom ñoom la ci. ñoom rek ci rëcc. ci rëcc. wallaahi wallaahi ci tumuranke islam googee yenn te gars yu baax yi rek. tumuranke googee. tey jii la ëpp. foofee lislaam juddoo. foofee lislaam juddoo. xew-xew yaa ngi fay am. xew-xew yaa ngi fay am. rayante. rayante boo xam ne teguñu ko fenn. ba ci bisub tey bii. ña nga ca. te teguñu ko fenn. te teguñu ko fenn. yàqu rek yàqu rek leen ko teg moo leen ko teg nañ góorgóorlu bañ a yàqu nañ góorgóorlu bañ a yàqu nañ góorgóorlu ci bëgg a defar dara duñu ko may dara duñu ko may lu dul dellu si ci ndigal li rek dellu ci ndigal li rek dellu ci li yàlla bëgg dellu ci li yàlla bëgg dellu ci li yonent bi bëgg dool dellu ci li yonent bi bëgg loolu lépp nag loolu lépp nag mi ngi ak sëriñ bi mi ngi ak sëriñ bi noppal nañ ñu ci so noppal nañu ci nan xool sëriñ bi rek te jéem a jàngaat sëriñ bi nan jéem a jàngaat sëriñ bi di ko jéem a dund buñ jàngee buñ xamee sëriñ bi dund sëriñ bi dund sëriñ bi malaayika yi lañuy rawanteel malaayika yi dëgg la dëgg la <laughs> alhamdulilah jërë ah, noo ngi sant nag ah, noo ngi sant bu baax nag di sant sëriñ bi nam ko waxe woon ci pàgguteef bii nga xam ne fàggu noonu ko misaal mi yëpp lépp mën naa dellu ci mën nañ koo gisee nañ koo gisee ci lépp lépp ci Cheikh Mouhamadou Fadil Mouhamadou Fadil ci Cheikh Mouhamadou Fadil mii ibnu Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Mouhamadou Fadil Male eh, di ibnu Cheikh El Bousso bii ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ñooñu exemple lañu ci lépp ci lépp diine ci lépp sëriñ bi ci lépp sëriñ bi. exemple lañu exemple lañu. tey it ngi ci ànd ak seen yoo xam ne. tey ñu ngi ci ànd ak seen i morom xam ne. ñu ngi ci seen wet ñoo xam ne. ñoo xam ne. mën nañ leen a wóotu. mën nañ leen a wóotu. ànd koog ñoo xam ne nag. ànd ñoo xam ne nag. ñoo yor diine ji. ñoo yor diine ji. Ilimaan a ngi nii. Ilimaan a ngi nii. Ilimaan a ngi nii. Ilimaan a ngi nii. ñi ànd ak ñun si nuwaab yaa ngi nii. nu ñi ànd ak moom nuwaab ya nga xam ne fu ñu mën a taxaw ñu taxaw mën na. loolu nag sama bokki taalibe lay lay lay lay soññ. nee na loolu nag bokki taalibe mi lay soññ. loolu kat sëriñ bi moom na jàpp na dëgg la nee na sëriñ bi nag jàpp na la mbiram. li mu bëggoon am na ko. kon ku ci bëgg a bokk. kon ku ci bëgg a bokk. da xool sa bopp. jëmale ci sa lépp. jóg jóg jëmale sa ci def ko def ko muy sa yitte. waaye nit ki bu looy dem ba nga xam ne adduna rek mooy sa yitte sa bopp rek kay sa yitte. te mënuloo sa bopp dara. adduna mënuloo dara. te taloo lu dul adduna. taloo yàlla taloo alaxara waaw. gëm boo gëm dëgg. nee na dafay dafay wax ne gëm dëgg. bu amee il faut que nga soppiwu doxin noonu rek la jërë ngeen jëf Mbàkke Balla jërëjëf tàll waaye nekk na tàllal na ñëpp tàllal fu waay nekk na tàllal di la delloo nuyoo bi négee cant gu rëy. di la négee cant gu rëy. gun la ameel. gun xam nañ sa doxin yëpp. lépp yéen xam nañ sa doxin yëpp ndax lépp teg nañ ci suñu bët. waaye li nga xam ne nag warugaru bañ la cee sant. waaye li nga xam ne amuñu warugaru bañ la cee sant. mooy li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. am na yitte ju fi nekkoon. joo xam ne mel ni mënul woon ñàkk ci dëkk bi. joo xam ne mënutoon a ñàkk ci dëkk bi. yàlla mu ngi ko jaarale ci sa loxo. yàlla mi ngi ko jaarale ci sa loxo. ba mu sotti ni ñu ko bëggee woon. ba ni ñu ko bëggee woon. loolu mu ngi fi mooy titre foncier. loolu mu leneen loo xam ne. ak leneen loo xam ne. bëggoon nañ ko ca ndakaaru googee. bëggoon nañ ko ca ndakaaru googee. ndax dëgg la ndakaaru mooy capitalu Sénégal. ndax dëgg la ndakaaru mooy capitalu Sénégal. loolu moo tax bii sëriñ bi soo wël soo wël liggéey doon liggéeyal boromam. ba lolou motax bi seigne bi sobo ngir liggéeyal boromam dakar goge dakar goge fofé la jaar. jaarin wi di jaarin wu tiis. jaarin wu nak di jaarin wu tiis. lo xamne du jog mukk ci sunuy xol. lo xamne nak du jog mukk ci sunuy xol. lola lola ñu bëggoon fa firnde ju rëy. loolee ñu bëggoon fa firnde ju reuy ndamal doon. loo xam ne ndamul Serigne Touba lay ñëpp dañ loo xam ne ñëpp danañ ci mën a teg seen bët. muy liggéey loolu mooy liggéey boobee di juma joojee ñu def ci Ndakaaru. loolu ku ne xam na taxawaay ba nga xam ne taxaw nga ko ci. foofee mu nekk rawati ca. mu nekk nag rawati ca. loolu muy lu waroon a jafe loolee yàlla jaarale ko ci sa loxo muy itte ju mat sëkk akuk dogu ba loola am alhamdulilahi rabbil alamin mel na ni egg na ci nan ko bëggee woon te incha allahu septembre bii di bëgg a ñëw 27 septembre. le 27 septembre. ajjuma ci lañ ko bëgg ubbi. loola nag. loola nag ndamal sëñ Tuubaa lu rëy la. waaye wax dëgg yàlla am nga ci wàllu rëy. ndax yàlla moo ko dogal. waaye ci sa loxo la ko jaarale. kon ñaar yooyu. ndax yi ci des yëpp sax. ndax li nga xam ne am nañu ci warugaru mënuñ li ce ñàkk sant. moo tax moo tax. bi nga waxee ne da ngay moo tax bi nga xamee ne wax nga ne da ngay ñëw tey siyaare si. moo tax ma xalaat sama bokk yu baax yii. dëgg la kilifa yi yoon wi kilifa yoon wi yëpp dajewuñ fi. tànn naa ñoo xam waaye tànn naa ñoo xam ne. bi ngeen leen bi fi fekkee. bi leen fi fekkee. mel na ni fekk nga fi kilifa na ni fekk nga fi kilifa yoon wi yëpp. mel na ni fekk nga fi taalibe yi yëpp. ndax ñii fi teew ñëpp kenn ku ci ne. kenn ku ci nekk yoon wi rek moo di ak dundam. te xam nga doxinu yoon wi. gannaaw ci lañ la ameel. ci ay cant lañ la ameel. nu sàkk lim boo xam ne danañ mën a wóotu kilifa yi wóotu bokki taalibe yëpp ñu seereel la cant goo xam ne yoon wi ameel na la ko ci yaari yëf yooyu mën nañoo yem ci yooyu rek xam ne li ci des lépp waaye lii moom amuñu warugaru bañ la cee sant kon nag bokk yaa ngi nii yoon waa ni ñepp sant nañ la gëreem nañ la ci taxaway bi nga taxaw ci Touba ak taxaway bi nga taxaw ci Ndakaaru ak liggey bobé tollu ci soti lolu amel nañ la ci ciantu gu reuy kon ma ngi and ak bokk yi ku melni kilifa yi melni na yi ak talib yi yépp dajé nañ ñi ngi lay sédal ciantu go xamné yoon wi amel na la loolu mooy kàddu yi nga xam ne laa bëggoon a wax ànd ak sama bokk yi seereel la ko mooy li nga xam ne moom lañ doon déggee boo ñëwee nga xam ne ameel nañ la cant gu wér waaye sant nañ la cant gu wér gërëm nañ la ci taxawaay boobu sa diggante ak sëriñ loolu mooy li nga xam ne amoon naa ko ci lu ma la war a wax sant ko lool nag ci la lool nag ci jotaay bi. li nga wax lépp dégg nañ ko. li nga wax lépp dégg nañ ko. xam nañ ne yéene ju mat sëkk la. liggéey bu rëy la itam. liggéey bu baree bare la itam. loolu it dégg nañ ko bu baax. loolu gën naa dalal sunu xel. ci li nu bëgg ci Touba. gën naa dolli suñu yaakaar itam. gën naa dolli suñu yaakaar itam. kon jërëjëf. kon jërëjëf. li nañ ko bu baax a waaye nag dama baaxoo lépp lu may def dafa am ñu ma waxal. loolu rek la. waaye déglu nu rek. bi ngay ñëw nag fekk na sëñ atu mii nga xam ne moo nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah teraanga yëpp moom laa ko moom laa ko tegoon ci loxoom donc nag mi ngi ci sa coobare teraanga yëpp a ngi fi fa nga daan dal itam ñu di la teral hmm, bu la neexee teraanga yi ñu yóbbu lépp foofu nga dem foofu bu la neexee ñu fab lépp andil la ko nga yóbbaale ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii di talaata dëppook juróom-ñeenti fan ci weeru safar di juróom-ñetti fan ci weeru octobre atum 2019 Cheikh Mouhamadou Mountakha mbake xalif général des Mourides dikk na nemmiku si liggéey bi nga xamante ni daara Hizbut Tarqiyyah mi ngi koy def ànd ko comité d'organisation bi ci waajal màggal gi fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadilou mbake te mu am solo moo xamante ni dong yëpp ak bokki taalibe yi nga xamante ni gis nañu ñëw sëñ bi yëg ko gàttandu ko teeru ko kuréelu xaside yi teeru ko ci buntu euh, exposition bi gunge ko ànd ak moom accès nag jëwriñu daara isbu tarxiya di Serigne Atou di commissaire des grandes expositions moo ànd ak moom won ko liggéey bi banqaas yi nga xamante ni waxtaanee nañ ko ren lenn lu ci nekk mu indi ci ay leeral. ci ñi nga xamante ni ñooy waa Rawdu Rayaahiin te sëriñ bi féetale leen lu jëm ci wàllu liggéeyu université bi ñoom itam barab bi ñu exposé ñu def ko. ci la sëriñ bi agsi fii ci mbaar mi am kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko fa ginnaaw bi nga xamante ne seetlu na liggéey bi rafet rafetlu ko ànd kenn màggam bi nga xam ne tey jii lislaam jëpp sañ nañoo feetu ci 18 safar fukki fan ak juróom kenn ku ci ne wóor na ne sa jëng yi nga xamante ne moo doxoon sa diggante àgg suñu borom sëñ Tuubaa moom moo ko lijjanti kon noo ngi sant bu baax ci sa dikk gi fii ci exposition bi nga xam ne àdduna sépp mën nañ cee jànge ñu xam ne sëriñ Tuubaa mbiram mooy law xalima naasu maahu naa la baadaroo ilaa talabihi walakin la maa jahiloo talaboo xayruhu ku xam mbirum sëñ tubaa doo wuti ji lenn lu moom lu waay di fàggu di ko wut di ci sonn am sëñ tubaa ko gën a wóor gën koo matale gën koo sotti ndax njëriñal tey ëllëg lay doon te day ànd ak bilaa aafatin wala kadarin wala stidrajin wala cheyin yasuwu fil xaali wal maali loolu sëñ tubaa rek ko am jërëjëf Mbàkke yow mi ñëw fii mel ni yaa indi tampon bi nga xam ne moo tax ñu xam ne lii nuy def sëñ tubaa ko kon ci turu suñ jëwriñ sëñ aatu ñoo lay sant di la cant sant cant koo xamante ne lott nañ ci ci ci ci ci ci defee ko ni mu waree waaye nag na la wóor ne noo ngi yeesalaat sunu lépp ci bisub tey ci ni sëñ Tubaa defoon la woo xayaat yi wa mawti yi wax dawoo walawoo sirri wa jëhri wa yux nii nii bi alaafi sunu dund ak sunu dee sëñ Tubaa rek koy moom dootuñu yëngooti ci dara lu sëñ Tubaa kon dimbali ñu wërsëgal ñu ak xam ba duñu teg suñu tànk fu ñu ko war a teg waaye fas nañ yéene kenn duñu moom ku dul bii nii la ko sëñ Atou waxee bu la neexoon lépp nga jël ko maye ko yaa ko moom lebuñ ci lenn ñaanuñ ci lenn saraxuwuñ ci lenn danoo dajale buntu tawféex yi nga ubbil ñu ko mu jàpp ni lool lu waay yóotu jot ci ñu liggéey ko ba mu agsi nii kon ñoo ngi lay sant di ñaan nag ñu amaat barab yu gën a yaatu ba nga xam ne exposition bu ñu jógee ci stand bii fukki hectare ñoo ngi lay yoo xamante ne gaaral rek day leeral mbirum sëñ Tuubaa ku dugg sa woto dugg ci stand bi dangay ngay duggaat sa woto demaat ci beneen stand lépp doon loo xamante ne day jéem a leeral mbirum sëñ Tuubaa ndax moom moo wax ne ah moo wax ne nasaxanii minal waraa baaxil xadiim allamahum bi nii abdul xadiim moom bokkul ci bokkul ci doomu aadama yi suñu borom ko sàkk moo xam lu mu doon waaye ba mu ko sàkkee ba noppi nag suñu borom moo ne man dinaa xamle kan mooy sëñ kon xam le sëñ tubaa ab jaam lott na ci waaye ndokk bi ko suñu sa sool boppam kon sëñ tubaa àdduna sépp nañ xam mooy kan bilaa idan aw alami dina li ñëpp dina ñoddi ñëpp dina teg ñëpp ci yoon te kenn du sonn te xaddu damm jërëjëf Mbacke. sëñ Abdou Lahad waxoon nañu ne. waaw nee na sëñ Abdou Lahad mu mu baax ma sa wajur wu tedd mooy waxoon nañu ne ñu. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. bi xëy see ci moom. bi ñu xëysee ci moom. mu mu ne ak ah, nuyooguñ ko mun a xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taïra. nu nuyooguñu ko sax mu ne xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taïra. ma ne ko déedéet Mbacke. sëñ Atou mii ne ko déedéet Mbacke. mu ne ko àgg naa ak yéen ci su ngeen bëggoon def lu ko génn dootu leen ko mën. mu ne àgg na ak yéen ci su ngeen bëggoon def lu génn sëñ Touba dootu leen ko mën jërëjëf Mbacke donc kon defe naa lii moom mooy kaddu yi bu bëtoon une seconde képp sax doyoon na àdduna sépp a ngi koy suivre ñu ngi ko def en direct dongo yi di ko bëggee di ci sonn di ci di ci soññ di yëg ne fi ñu toll ni yoon wi yeesaat na laataa waxtaan waa jeex keroog waaw laataa waxtaan laataa waxtaan way jeex keroog. mu wax ni mu wax ne. xam ngeen lu ngeen doon ci nun xam ngeen lu ngeen doon ci nun ma ne ko déedéet mu ne ko déedéet. mu ne ay wéttal ay wéttal ngeen. mu ne mbaa yaakaaru leen ni wéttal mooy du mooy sësooy mbagg. mbaa yaakaaru leen ni wéttal mooy sësoo ay mbagg. ma xaw ma ci dara. mu ne xaw ma dara de mbagg. mu ne nag du caageen sësooy mbagg. mu ne du caageen sësooy mbagg de. wéttal mooy. wéttal mooy. ne bu fekkoon sësooy mbagg la nee na. nee na bu fekkoon ne sësooy mbagg la. takk ndeer ak borom a ànd. takk ndeer moo borom ñoo ànd. waaye wéttaliwu ko waaye wéttaliwu ko. ne kon wéttal mooy. kon wéttal mooy. bokk bëgg bokk bëgg. bokk pexe bokk bokk yéene bokk yéene. bokk melo bokk melo. bokk fu ngeen jëm bokk fu ngeen jëm. nii ñu mel ak yow nii ñu mel ak yow jërëjëf Mbacke. ok mu ne waaw sëñ Ahmadou Badawi mii lay waxal nee na ak ñoom ñooñu <laughs> suñu kilifa yi tedd yi. <laughs> nee na li am solo rek moo di tawféex ndax ñoom ñii moom ba mu ñu xamee moom is ci la ànd ak ñun. boobu damaa na boobu dafa daan wax ne. gëmewuma leen. gëmewuma mu ànd ak ñun ci loolu. mu ànd ak ñun ci loolu. ànd ak ñun ci ci loolu. ba am yàqin ci ñun. noonu digganteem ak ñun noonu la deme nee na lépp sëriñ bi la. na waxoon na ne sunu ànd bii noog moom. nee na du nun du moom nee na pàgguteefu sëñ tubaa rek la nee na sëñ tubaa lu mat a fàggu fàggu na ko tey jii ak ëllëg nee na jubóo na ceeg boromam nee na nee na bu ñu ko gisul nee na boromam a ko nekkal bu ñu ko wooyee boromam mooy wuyu nee na lépp la def li ci am solo nag nu xam ko di ko jéem a xam waxtu ne doomu aadama du lu doomu aadama mën a xam sax. waaye nag doomu aadama am na lu ko yàlla cëral. la mu ko cëralee nag. na ca def kem kattanam. ngir xam sëriñ bi. loo ci xam rek. mu nekk njëriñ ko jéem a dund nag. nañ ko jéem a dund nag. suñ ko jéemee xam ba noppi. nañ ko jéem a dund. buñ ko dundee ko dundee rek. neen texe àdduna ak àllaaxiraa ngoog da nga koy yëg fii di ko dund. da nga koy yëg fii di ko na boo demee nag fekk fa la ko taxoon a jóg. noonu rek la demee. neen sëñ bi noonu rek la demee. kon sant sant yàlla rek la war a def. te xam li am nag. te nee na xam ngi weesuwul li mu wax rek. ko jéem a xam. di ko jéem a dund. di ko dund. neen bu ñu ko dundee rek. nee na aalamul islaam jëpp. kenn mënut ci benn kuréel na benn kuréel dootu la mën a kawe. bu ñu dundee sëñ benn kuréelu lislaam. benn kuréelu lislaam. dootuñu mën a mën a kawe. kon na kon noonu rek la dem. sant bu baax nag. jërëjëf. nee ni mu ñu ko waxee woon rek <laughs> dana am tawfeex rek. jërëjëf jërëjëf. nekk xam rek si nekk na sax. lu gën a xam si lañ gën ko gën di jëm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 xoolal sëñ bi dañuy jéem a xam rek neen sëñ bi weesu na foofu. li gën a yéeme li gën a yéeme. neen li ci li doomu aadama mën a xam. neen li gën a yéeme ci lu doomu aadama mën a xam. mooy sëñ bi ñi mu bokkal boromam ñëpp. nee na sëñ bi ñi mu bokkal boromam ñëpp. nangul nañ ko nangul nañ ko. dëgg la ndax dañoo jox seen àq ba mu mat sëkk. ndax daf leen jox seen àq ba mu mat sëkk. la ko boromam def. la ko suñu borom def. boroom def ko ci moom. boroom def ko ci moom. ñu nangul ko ñu nangul ko ko. koo koy sëriñ ci li dañuy jéem a xam rek ci a a xam sant rek nu war. dañu see doon rek. waaw rek nii rek. yite jëpp. yite jëpp jëme ko ci moom. waaw nee na ca dolli ko nag mooy lii rek. yite jëpp ñu jëme ko ci moom sëriñ bi. li li doomu aadama di ci ci ci ci lu mu bëgg ci boppam. ci yiw yiw ak nag lépp li nga ci dund sëñ nee li doomu aadama di bëgg ci boppam lu mu mën a doon ci yiw àdduna ak alaaxira lépp mi ci dund sëriñ bi rek dundee bu dundee sëriñ bi rek yaar yooyu dara ci manqué yooyu dara ju ci manqué kon loolu li ci am solo mooy loolu kon li ci am solo mooy loolu nañ góorgóorlu bu baax suñu yitte jëpp suñu yitte jëpp nañ ko def ci sëriñ bi di ko jéem xam di ko jéem a xam di ko jéem dund jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. yéen doo di ko mënut a ñàkk a wax ak yéen. Mm, <laughs> ak ak ak ñi ñi ñu bokkal ñi ñu bokkal doxin bi. waaw loolu moo indi wax. Mm-hmm. waaw loolu moo kon day dellusiwaat nag. Mm-hmm. dellusiwaat nag. Mm-hmm. ci ñun doomu aadama. <laughs> ñëpp koy foofu lañ bëgg rek ñun foofu tey ñun ñëpp na nga foofu ña nga foofu donc yóbbaale nu foofa rek. <laughs> yóbbaale nu foofa <laughs> gannaaw ko ba noppi nag lu ñu gën a xam sëriñ bi gën a yokk gën lu ñu gën nga gën a dund gën a yokk loolu nag xam-xam rek a dimbali xam moo ci mën a dimbali loolu moo tax eh, xalaat ji li nga xam ne dañoo toog fa rek lu ci ne si fàggute bi bi yëpp lu ci ne day si toog bàgg ci nag alhamdulilah am am nañ toog fa bàgg ci mhm. madrasa bii moo moo desoon ci li nga xam ne wane woon na ko li mu mënta ñàkk loolu nu am tawfeex nag yem ca loolu loolu moo tax gis gisuma lenn gisuma dara ci saayir lu dul nag mu jóg ci xam-xam tam ma ma ma jëm jëmal ko nag ci madrasam boobu moo xam ne ku ko deful noonu doomu aadama it yàlla dana ko defal dana ko defal. kon tàlluwaay bi moom. mooy jóg ci xam-xam bi. ñëpp kuy am doom wala nga am jabar wala nga am jaboot. nga góorgóorlu jëme njaboot gi ci njël njël njàng. njël xam nga xam-xam. nit yu sëñ Tuubaa xam-xam rek ko dese ndax dañuy taw feex la. la koy defal boobu si coobareem waaye nag li koy téye di ko sàmm di ko dundal di ko dolli mooy xam-xam loolu maa ko wax moom rek la demee eh, moo tax bi nu xalaat bi bi nu accès ci lii suñu xalaat dañu dañ caa yem mun nu ko ñàkk ci ñàkk jëm ndax dana dox bàgg ci ndax lépp pàggu suuf Sëñ Tuubaa la waaye dañoo am moo tax bi ma ci yemee yëkkati sama kàddu ci jàngu ko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

الشيخ احمد البرمي سما خل دفا دال تي موم مولم لين يوت تي تي اك مولم لين ورا ام تي خم سيرين بيك دوندوغي دا ما سي ام تي موم ياكار فتبارك الله صرنا لول تي خم خم تي سيرين توبا لا جود امنا توفيق جي ايتام لولو موتاخ والو خم خم بي ما تكو تي sama xel daal ci rëteex liggéey bi réy na lool waaye sama xel daal na ci ndax mag taal bi nekk yëpp ko bokk te loolu loolu xajunu ci waaw sëñ Tuubaa xajul ci daalay adduna kon ñi ngi ci daara ji li nga xam ne moo waral daara ji Cheikh Amadou Bada bii moom laa ko i nattangoom

ñoom pàggute fa sëñ Tuubaa rek lañu ndax koo xam ne sëñ Tuubaa mi ngi ci yow nga am yittiwu yittiwu yittiwoo diine yittiwoo xam-xam kooku sam naa la dana dootu yomb loolu nag ñoom ñu ngi nii di doon jóg rek waaye alhamdulilahi rabbil alamin sama xel dal na ci ñoom li ñuy wutti mën nu ko ñàkk tey ëllëg mooy sëriñ bi ñoom nag sama xel dal na ci ñoom ci liggéey boobu liggéeyu boobu moom loolu noonu rek lay daara ji ak euh, ñi ñi nekkoon ñi ñi ñi nga nga xam ne démb bëkk dem ñi ngi doon sonnee xam-xam mooy daara ji ak sañ sañ xamal ba defi ñoom waaye yéen ca njëkk ci njëlbéen dañ doon jaaxle am nañu bari dañ doon jaaxle ci yéen waaye comme ci waxal dama koy wax ne ko ndax ndax suñu borom dafa tële dara ndax suñu borom dafa jombalee dara am sëñ Tuubaa yéen foofu ngeen nekk yéen yéen foofu ngeen nekk loolu yéen yéen yéen loolu loolu loolu yéen dara raxu leen در رخلن بکو تفسیم بیرکن من دمام توفیق بگین چو گیرک جاگن دوما دما دما لین دما لین دما لین نگون لین نین نین نک فهم وای فینگ فین تو لو من با موی گمی وما لین بیم دما با خم نام یقین نک مگ مگ نفرت دیس مسایک گنا دگیر دارن ولی کدوم ولی دیم مگ waaye yéen yéen yéen yéen wéy leen rek sëñ Abdou Ahmadou ñoom laay waxal yéen waxuma ak yéen damay wax damay wax damay wax ne damay wax ne sëriñ bi daa ci li ma koy tegtale damay wax sëriñ bi leneen i boromam la ndax jullit buy buy buy wax bu ne war naa na sédd sa bañ a bokkale jullit buy wax ak ak wax ak ñu ko ñor ñor na sédd bañ a bokkale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 lu ma lu ngeen bëgg rek lu ngeen bëgg te mënu leen ko ñàkk rek wax leen ko lu ngeen bëgg ci liggéey bii seen taxawaay bii ak nu ngeen ko bëgg lu ngeen ci bëgg te mënu leen ko ñàkk wax leen ma ko ma ànd ak yéen ba jeex tàkk saya sëñ Mountakha Diatta tadi yang ini mau nan nan nan nan nan lu ñu ci. classe hmm. bu ci يمكنني كشي وهي لقي بنك دفع مدخل دفع دفع لقي مدفع من يقول دخل لقي بي دفع من يقول دخل لقي بي مم دفع نعم، نعم، نعم. مويون نيب خلبو سنتو خلبو خمنة سنتو بانجى بانجى خلبو كوكو أمنا توفيق بنوبي أمنا توفيق بنوبي وهي نك لقي بي مم دفع من يقول أويون يون بي موي يون عامله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 nag euh, bi nga xamante ni nemmeeku na liggéey bi def waxtaanu soññe wu am solo ci la ñaanal ñëpp moom Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ni ñu ko defee woon nag ci bi muy dikk jëwriñu daara ji ànd ak kuréelu xasida bi ak mbokk yëpp sëriñ Ahmadou Bade ibnu Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké waa Rawdu Rayaahin ak mbooleem mbokki taalibe yi fi teew gunge sëriñ bi ba ci biti ànd ak moom ci mbégte mi nga xamante ni indi na ko ci barab bii di firndeel ne liggéey bi lu sëriñ Tuubaa nangu la mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñaan ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waxtaan rekk laa ci jublu waxtaan woo xam ne dañuy fàttaliku ndax nu gën a mën a yokk sunu liggéey lépp itam dañu koy delloo rekk sëriñ bi suñu aatu ak bokk yu baax yi mu àndal li ñu def jëru sax wax ndax jëf ji jiit jiit ànd nag lépp waaye nag nu waxtaan rekk ci sëriñ bi yow Cheikh Mahamadou Bachir ak Cheikh Saleh mën ngeen fi teewal mboolem ku ñuy tudd ci sëriñ bi yéen leen fi teewal ndax jataay bii day day loo xam ne ku ñu tudd ci sëriñ bi rek waroon na ko teewee waaye na ginnaaw noo ngi fi ngeen yéen ñaar ñi ngeen wéttali ma ci ak bokk yi ni bokk sëriñ bi yéen a ngi fi kon mel na ne jataay bi ñëpp a ko bokk ñu tuddi sëñ sëñ Tuubaa nag ñoo ñoo ñoo si jiitu eh, ak bokki bokki taalibe yii eh, nga xam ne tey ñoo waral jataay bi eh, mu ngi tàmbalee ci ko te lépp sëriñ bi lay dellu ngeen seere ne ngeen seere sama digganteeg suñ bokki bi yi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom du man du ñoom lépp sëriñ bi ni ni ni man dox ànd gin ànd maa ngi ñoom déggoo dox ci biir ci bitti ba ci jataay bii loolu du man du ñoom sëriñ bi kon ni ma ko mën a tudde mën naa ko tuddee mën naa koo tudd ci ñaari tur ànd gii ma ànd ñoom ba ci jataay bii fa mu ba ci jataay bi ca ndorte ba ci jataay bi loolu ci wàllu sunu borom dafa mel ne sunu borom da cee namm gën a feeñal mbirum sëriñ bi loolu ci wàllu sunu diggante ak sunu borom bude sun digante ak serigne bi rek dafa melni serigne bi da cee djublu feñal ci bopam waxtan bi mën gàtt non rek la démé du man du yéen serigne bi rek la amul men xel mu mën a xalaatoon ne سوا ديجنتي يين لا ناكس جي تايبي اول من خل مكو مسخ دو من ديكنن من خل مكو مسخ خلادني جي تايبي دا ام سوا ديجنتي يين مون دا نيك دا نو ام توفيخ جولي رك نو ني بوكو سيرين بي ba mel ne dañ cee doon dara tawfeex jure rekk la seen yoon nekku ci sun yoon nekku ci lépp sëriñ bi xool leen ko bu baax fanama fa tàmbaleeg ñoom te kenn wuuma fañ ko tàmbalee ñoom te kenn santu leen ko diir bu gàtt lu daje ma ak ñoom ànd àndit wu rafet bi nu ànd ba ci jotaay bii Lalu, lalu, loolu yoonu xelum doomu aadama nekku ci Lalu, loolu nammeelu suñu borom la bu mu nammal sëriñ bi loolu jublu sëriñ bi la bu mu nammal boppam noonu dong la demee dama koo gis-giseen leer ne noonu rek la demee ma wëlbati ku gisaat ko nag karaama jëf ju rëy ju baax mënu ko weer loolu ma ne na koo tuddee ne karaama la ñu bokk ci karaama yi sëriñ bi dégg na ngeen déglu seetli li ma leen wax li ma wax bu baax baax baax noonu rek la demee

sant cant gu ak yeesal sunu jaayante ba mu mees peq fas ko koo wii di ko dund ba kenn ko ne ci noonu wàccub liggéey ñan wuutu ci ci lii nekk ca loola ba wàccub liggéey ñeneen wuutu nekk ca loola muy demee noona ba bis nañ ci lépp di ndemal bi noonu rek la demee Cheikh Mahmoud Bachir dañu saale maa ngi leen di seeral kàddu yi xanaa loolu sax daa dara waru cee desati xanaa nag sa xanaa xanaa xanaa sama jantu bopp ak yéen xanaa looloo ci des sama cantu bopp ak yéen nag ma ngi jël sama biiru cant sama diggante ak sëriñ loolu rek laa ci mën a dolli kon nag nan dem rek maa ngi labiré di soññe ci képp koo xam ne Sëñ Tuubaa ngi ci sa xol da nga yeesal jaayante woon gannaaw lépp jëm ku jëme ci jëme ci sëriñ bi te sëriñ bi moom mu sa jëm ci dara lu dul borom xanaa bi ko joxe ne yonent bi mu wéy ci bën ba ndigal la la ca boromam bëgg mu mu ko ni sang bu baax ba mu defee mu liggéeyal ko ba lam ca bëgg mu defee ko ni loolu rek moo di dundam loolu nag mooy suñu ndona buñ ko xamee ak buñ ko xamut jublu ko suñu lépp suñu kem kàttan loolu bokkoon ci li li ñu gën a jig ndax dañuy defaral tey defaral lu ëllëg

dara mënuñu ci mënuñu ci bett jëf ji rëy na lool jëf ji rëy na lool ndax benn taalibe bu ne bu dëggal bu ne loolay xemem téefam loolay yitteem kon liggéey bi moom fa tabarakallahu sëriñ bi borom liggéey bi moom moo ko gën gis man mi ci teg sama bët nii borom liggéey bi moom moo ko gën a gis moom moo gën a xam fi mu jóge fa tabaarakallaahu réy na lool waaye eh, waxuma ko waxuma la ku bi waaye jullit bu te te te te te nga gëm dëkku ci moom lislaam dëkku ci moom ihsaan dëkku ci moom ku ci mën a doon rek noonu rek la demee li doon bëgg wax moo di rek eh, waxuma la ku aju ci bi waaye jullit bu mën a doon jëf diggam ak boroom boroom yombal na ko yombin woo xam ne mëne su ko misaal yàlla boo yéenee rek te defoo dara yi mu fay la dencal ba fa ko gën a soxlaa boo jëfee mu tàmbalee fukk benn yiw mu tàmbalee fukk yow fukk bi mu lay delloo fukk yooyu ab tàmbali la man nay dem ci sa ci sa jublu ci sa yitte mën nay dem ba doon ay junni moom benn boobu man nay dem ba doon ay téeméer doon ay junni kooku mooy borom lépp te du jeexal dara jullit bu ne jëflanteeg bi. ñoom bu dee ñetti daara yooyu 4 millions la ñu amoon joxe nañu 4 millions 200. kon alhamdulilah rabil aalamiina jëf ji gisees na ko waaye sëriñ bi moom ko gën a gis mooy borom liggéey bi waaye moom itam kam doon liggéeyal moo ko gën a gis kooku itam. ka ko yebaloon moo ko gën a gis kon nan sant rek te soññuwu nan sant rek te soññuwu bu nu geesu bu nu taxaw yàlla yàlla mi dara tawul nag yàlla noonu yi ma wax yàlla noonu sunu borom muy jëf ak dindi gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi ndax lii nu am lépp tawféexi sëriñ bi moo na ko may ci la ko jaarale kon yal na nu gën a gàtt nag tawfeex sëriñ bi ban mën a gën a jublu mën a gën a jéegu bañ a dëpp bañ a geesu bañ a taxaw yal na nu ko suñu borom defal moom mi defa ko dindi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi akub ngartanoo moom yal na nu sëriñ bi gàttanu boppam gàttandul nu gàttandoo boppam ak ko tax a waaye bala maa wax dara naa wax ne jërë ngeen jëf ñi fanaan ci mbaar mi ak ñi doon jàng jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu dara mayu leen ko du lu yitte xam naa ne guddi gi moom sori ngeen ci ak càggante waaye waaw leen góor def ngeen lu ko mat dama bëgg rek nu waxtaan rekk waxtaanu sago waxtaan ci yitte waxtaan ci càggante yitte sunu borom lu ko soob def te dara du ko ci fekk waaye moom la def nag mu def sabab nit war a jóge ci suuf jëm ci kaw loolu lim tekki mooy nit war a génn ci lépp génn jëm rek ci boromam loolu mooy bu amee nag day day wéy di màgg di wéy jëm ci boroomam ci kaw rek waaye bu amee lu mu tuuti tuuti day màgg ci biir màggam googee day nasaxal yitte yi ànd ak moom di yitte àdduna yitte yitte yàlla day na saxal yitte yi àdduna kon yitte yàlla rek mu am solo kon am yàlla rekk moo am njëriñ tey moo am njëriñ ëllëg moo am njëriñ ci sunu biir moo am njëriñ ci sunu biti càggante nag moom bu amee day màgg ba yitte gedd ba yitte gedd jëmm ji génn dem yoonam càggante de des fa yaatal nañ ibliis ba mu mën a liggéey yàq jaam bi loolu rek moom mooy yittee moom sun borom da ko kàttanal lol kon nan gor gor ci yittewoo yàlla moo nu amal njariñ tay mono amal njariñ tay mono amal njariñ ëllëg moo nopal mono moo nuy noppal moo dimbali moo nuy dimbali dunduk aduna bu dee àddunay kese ay xat-xat rek la ay musiba rek la ay jàngoro rek la ay fitna rek la ay tis-tis rek la ñak la rek ndax lo bëgg lo mëna bëgg ngay bur ngay borom xam-xam ngay borom wërsëg bala nga am dara do ci am dara du ko amal jariñit du ko amal njariñet boo yittewul yalla yitte ngok càggante it safaan bi rek moom day xañe di xañe rek man sëñ bi mu ne dégguma séeréer waaye nee nañu xaayaan bala mu neex nga dégg séeréer kon mu ne da ngeen di déglu li muy wax des koy dégg déggu xol déggu nopp te jiital sam xel dégg ko sa jëmm jëpp mu yitte yoo xam ne. mu moo nekk sa diggante sa. moo borom. ngay jëm kanam. ngay jëm kanam. yitte ji gën di yokk yitte rek. ba dara du dul yitte ji. ba dara du dul yitte ji. duutu nekk ci yow. mu des. diggante jaam bi. ak boroomam diggante jaam bi ak moroomam jaamam foofu la liggéey bi nekk day góorgóorlu rek. day góorgóorlu rek. kem kàttanam. kem kàttanam. ci yittewoo boroomam. Lalu moy tax mu meuna jariñu ci digal ak téré loolu moy tax mu meuna jariñu ci jëf lu baax daw lu bon bëgg lu baax bañ lu bon kon Dikemak ak boromam mi ngi nonu digëm ak jaam bu mu sa moromam jaam li nga sa bopp. ko li nga yéene sa bopp. yéene bëgg rek mu baax. bëgg rek mu baax. moom day nga moom nga ameel jaam bi. yeneen yi sa des yëpp nag. ña ko séqanteel. ñu defee ne. ña ngi ko séqante lépp mu ngi ci boroom sa diggante ak moroom jaam dara waru ca lu dul bëggal lu baax rek yéene ko lu baax rek di di ko defal lu baax te yàlla tax loolu mooy suñu diggante ak suñu borom mooy suñu diggante ak suñu moroomi jaam kon dégg ko aduna ci coobareel sunu borom le bindé aduna andinu fi natonu ko waye aduna day du dar rafa sunu borom xam nga nu ko misale dafa wax bu fekkoon dafa yemale ak àdduna ak laafu yoo laafu yoo da ko yemale nag àdduna kon ab yéefar du ci am kaas ndox bu mu naan xool leen foofu bu baax a baax kon àdduna du dara waa àdduna yal na nu sunu borom gën a gindi ci boppam waaye bu nu ci gindiwul ku ne jigéendiwul adduna du dara amul benn maanaa noo ngi sant suma borom bu paax mu nu gindi ci sëriñ bi sëriñ Moustapha xam nañ ni demee ci moom bi sëriñ Basiiru doreem dañuy waxtaan ma yërëm ko ci yan bi lool bëgg koo laabire te waruma te loolu waruma sama diggante sama kilifa waaye ba ma koy def du lu ma tey dañuy waxtaan ci biir waxtaan wi ma ne ko àdduna dey wàcc pën mu rot nga tiim ko loo ci mën a lijjanti nga lijjanti ko waaye lijjanti bi day weesuwul sàkku ci ngërëmal sa borom. jox ci sa moromi jaam seen àq. jox ci sa comme ni mu ko waxee woon ci ginnaaw rek mu ñoog mbir maa ngoog noo ngi nii noog àdduna ak àdduna ni ko sunu borom bindee lim koy ñàkkal ñàkkal solo. da koo boole nag nattuwaat na ci. boole noog ay noon. ñu nekk ak ñun. taxoog ñun. ñetti noon yi. dañoo taxoog ñoom. bi ci des. mooy iblis. mu kàttanal ko. kon kon àdduna benn noon la. lim lay wan ci boppam yépp lu dara amul benn maanaa. bakkan door a ñëw moom lu ko neex rek la lay xiir <coughs> dal di ko xiir dara amul ci njariñ bànneex lañ ko tudde mooy ñetteel bi mënees na koo jéem a firi mooy lu la yàlla xiir te xiiru la ci boppam nga bànneexoo ko lool xoolal waa làmb ja xoolal waa dam ba xool ñi ca baal ba xool ñi ca wure ba xool ñi garam place ya te kaf caaxaan rek moo nekk ñoom loolu mooy bànneex adduna bakkan bànneex ñetti noonu la yoo xam ne dañoo taxaw ak ñun. Iblis nag ni mu ci gën a jox doole. boo xeexul ak ñetti gaa yooyu. boo mucc ci ñoom. daw si xelu bakkan jëm ci sa borom. noppal nañ seytaane moom. noppal mi mu kàttanal. boo muccul ci yooyu. Iblis amut ci yow noppal nañ ko ñu delluwaat ci sëriñ bi sëñ bi biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis te lu fi dara lu dul boroom lu mu fital jaamu boroom la liggéeyal yonent bi ci jàmm ak ci lépp leneen lu mu fi tallee lool rek la te loolu jaamu boromam rek la liggéey yonent bi rek la kon noonu rek la deme nan ko xamee noonu lii mu lii mu leen wax ba téere dalee wàcc ba léegi ba ci alxuraan loolu rekk ko tax a jóg kon na ma leen ko waxee woon yitte rekk a fi nekk ak càggante yaa rekk a fi ne kon nan góorgóorlu yitte buñ ci xeeb dara ndax seen seen guddi gu rafet gii ngeen yittewoo ko nii ngeen ko yittewoo nekk ci ngeen ci nekke loolu yitte rekk la te yitte nag mi ngi tàmbali nag ci góor góorlu te bu yitte ji wéree sa diggante ak sa boroom dalay gàttandu ci gàttal womatal la boppam safaan ba la mooy sàggante bu sàggante amee day gën a des ginnaaw rek ndax sunu borom moom noppee naag nun dafa teral doomu aadama teraanga ju rëy ci coobareem nag mu nattu ko sóoboo bu sóoboo yoonu boromam boromam da koy gàttandu. càggante rekk desee. bu càggante rekk desee. muy dellu ginnaaw di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw. ba egg ci bàyyi ma. bàyyi ma nag ëpp ko tawféex. bàyyi ma toppeesu ko dara. doomu aadama ba mu wàccee ci kaw suuf lañ ko toppoon ak bi muy am ci àdduna. yan yan yan boobu moo nekk ci kawam. kon bu sàgganee. kon yan ba du ca def dara. walla lu mu ca defaat. wala yàqal ko boppam. wala asbillah kon nañ ñaari baat yi rek la. yittewoo yàlla. ragal càggante suñu diggante ak suñu borom. sunu borom màggaayam ba xajul ci lamine xajul ci xol xajul ci xel waye nak nu xam bopam mu xam bopam mu xam bopam yombal nu lool suñ digganteek mom da ngay seet doomu aadama li ko war di gëm ak yépp julli moo ci gën a yomb gën cee bari njariñ dangay seet bàkkaar rek ni mu bone diggante jàmbeek boroomam te julli waxtu juróom yonente bi dafa wax ne mu ngi mel ne ak dex nekk sa buntu kër bis bu yàlla sàkk nga sangu ci juróomi yoon ndax ab tër na desati ceew moo tax di day fari bàkkaar jul day setal dit di far bàkkaar day defar nit te jul de yomb na góorgóorlu ba xam ne julli war na la nga def sa xel ci waxtu juróom. nga fu mu la fekk fu mu la bul talati dara. féeg joxe wa waxtu wa loolu wax dëgg yàlla jëfewut waaye nag sun ñeenti noon yooyu duñu bàyyi ci dara duñu bàyyi ñu def dara duñu bàyyi nu am dara waaye loolu lépp nag yitte woo yàlla rek bu yitte woo yàlla amee te muy dëggu ci nit ki nu muy daal di def soobu rek diggam ak boroomam te duutu ci tal dara ci diggante bi xanaa moroomam jaamam rek te moroomam jaamam day sax dàkk bëggal ko la bëggal boppam di ko yéene lu baax di jëflante mu jëf ju baax di ko di ko dimbali ci wàllu gone te lépp nag yàlla tax rek mu di ko def loolu mooy diggante jaam bi ak moroom jaamam kon nan seet suñu digganteek ak suñu borom seet suñu diggante ak suñu moroomi jaam li ngeen di def li ñu digal lu ñu ca man suñu kem kàttan ñu di ko def te yàlla tax li ñu tere lu ñu ca man ñu di ko daw suñu kem kàttan te yàlla rek tax loolu mooy ndigal tere kooku moom warteefu jaam la jaam mënul dara ci boppam kon bu ko boroomam tegee la war a doon jomam yanul ko yan ba yóbbul ko ko fa mu ko bëggee la ca des mooy yéene lu baax bëgg lu baax di def lu baax di daw lu bon gën a bañ lu bon te yàlla rekk tax nga di ko def yoon waa ngoog yàlla nu gën a gindi. yàlla nu gën a dimbali. yàlla na suñu borom gën a dimbali. nun waa Kër Sëriñ Tuubaa ñaanee loolu ba noppi. dana ñaan suñu borom gën noo ci sëriñ bi. gindi nu ci boppam. gindi ci sëriñ bi. te soobu. moo lay gàttandu. waaye sóobu gi nag moo mat a jóg moo mat a waajal waaye lépp mën naa jóge ci yitte yitte ne ma dema dem ba jeneen yitte nekkatu ci wetam bu boobaa sóobu yoon yàlla da yomb lii daal mooy li xew mooy li am de nan góorgóorlu bu baax fekk na loolu lépp moom màggaayu suñu borom. ëpp na lépp. bu ko sooboon. bu ko sooboon. ñun ñëpp. tegu ci yoon nam ko bëggee. mu yóbbu nu safara. te dara du ko ca fekk. bu ko sooboon. ñun ñëpp. mu yóbbu nu àjjana. te du ko wàññi dara. loolu na moom màggaayu suñu borom foofu la tàmbalee. te kenn xamut fu mu yem waaye nag waaye rek sañ la na doon ay jaam yu nangu ak njaam bu jëkk suñ réew mii rek am na tolluwaay yoo xam ne booba nit dafa yilif moroomam xam nga booba lu ñu daan caaxaane jaam bu nangook njaam bàyyi ko ca nguur ga la bokk kon li jëkk lépp nan nangu di jaam te jaamu suñ kepp kàttan moo nu jig de lii moo jig dara jigunu lu dul jëm ci sunu borom te sëñ bi wàcc na fi ñu ko gisee ba fi ko noppee gis te lu fi dara lu dul boromam te lu ma tabax wax na ko lu mat a def def na ko wàccoo naag ñun waaye moom itam sunu borom cëral na ko ci boppam cër bu réy réy bu kenn xamut fu mu yam ma loolu ma nanoo doy yaakaar moom ñi sopp suñu borom mu boole nag moom. ñun ñi sopp sunu borom. mu boole nag moom mu boole nag moom. loolu mooy naam yaakaar waaye bu mu nu tee jóg de góorgóorlu suñ kem kàttan ndax sëriñ bi lee moom amul ñaari bëgg boromam rek la bëgg ak yonent bi genn bëgg gi genn bëgg rek la genn bëgg rek la kon nañ ko xame noonu xam màggaayub sunu borom xam cërub sëriñ bi ci boromam te góor góorlu nag waaye nit ki ma waxuma ku la moom waaye bu amee sa kilifa fexeel ba jubóog moom déggoog moom mu am si ngërëm nga am ngërëmam kenn kenn ku ne xam na njariñam lan mhm. góorgóorlu rek suñ kem kàttan soobu yoonu yàlla mooy mbir mi waaye nag du tee am na lu nu sunu borom may ci sunu bopp daganal daganal nu ko sañ nañ koo jëfandikoo. waaye nag ci kaw de. waaye nan ko bokk. nan ko bu mu nu yàqal dara. suñ diggante suñu borom. sañ nañoo lekk. sañ nañoo naan. sañ nañoo denc. sañ nañoo am kër. loolu bind la bu nu yàlla bind. bu ne yàcc yàccaaral nag. loolu sunu borom moo nu ko may ci ngëneelam ak yërmandeem sañ nañ cee jëfandiku waaye nan yem fam nu ci yem lool cëral ci sa jëmmi bopp ak lu mën a doon yàlla la ko ameel te foo nekk mu fekk la ba loolu moo tax yàccaaral di mën naa ñàkk il faut que ñu yëngatu bàyyi xel li ñu yàlla may ñu man koo jariñoo man koo jaamoo yàlla man koo jariñu suñu diggante suñu moroomi jaam loolu sañ nañ ko bokkul nag suñu yitte yëpp ñu jëme ko suñu borom kon dunda ngoog moom bu ñu fi fanaanoo ne du jeex waaye nu jàpp ci loolu jërëjëf Mbàkke <laughs> yàlla na suñu borom gën a gindi ci sëñ bi ginnaaw ba mu gindee ci boppam ndax sëriñ bi mënee si gindee ko ci moom te suñu borom gindiwu la ci boppam njëkk sëñ bi moom léppam boromam la noonu rek la demee jërë ngeen ngeen jëf leen li mu wax rek moo leen ko may yitte rek moo leen ko may na xam ne am ngeen lu ngeen yëg li ngeen yëg nag li may wax lépp mu ngi biir seen yëg-yëg googu topp leen ko rek kon noonu rek la jërë ngeen jëf seen borom gën a gindi ci boppam gën a gindi ci sëriñ bi gàtt gi moom teg na ko boppam ba noppi mun sóobal te muy dëgg rek moo nuy gàtt lu boppam wàmmatal nu boppam bopp fa kon jërë ngeen jëf nan sant bu baax a baax boole gi nu sunu borom boole sëriñ bi mbir mu rëy la xéewal ju rëy la tawféex ju rëy la waaye nag bu mu tee góorgóorlu bu mu nu góor góorgóorlu bu nu tal suñu bopp bu nu tal dara nantal yàlla rek na sëñ bi moom kenn mënta dégg pëndam waxuma laa di ko séen waaye moom biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis foofu rek la nekk yitte woo boroomam ba wàccook moroomi jaamam yépp ci kaw suuf yitte woo ba wàccook moroomi jaamam yépp yi ci kaw dem ca boroomam sëñ baa suñ sant bu baax a baax ndax kooku suñ kilifa nan sant bu baax waaye nag bu ñu yàccaaral de bu ñu sàggan de bu ñu yàccaaral bu ñu sàggan bu ñu yàccaaral nu mu ko daan firi bu yàgg yàccaaral mooy kuutul dara yàccaaral mooy ku wut te xam dara kon ne bu ñu yàcc bu ne yàcc <laughs> waaw <laughs> ngeen jëf taal loxo yi ñaan jërë ngeen jëf li ma bëgg a wax man lay fàttali fanaan waaye waaye nag nan jàpp ci loolu sa mu ne boppam nag la ci jiital ndax màggaay suñu borom boobu moo tax dama àtt sama bopp xaw ma jullit laa am déet waaye jullit laa bëgg a doon xaw ma ànd naa ak sëñ bi dama bari itam waaye bëggu sëñ bi rek moom ma jën fu mu jëm jëmee fa loolu rek la loolu loolu xaw ma waaye attuma saa bopp ci jàppale ma defe ne ab jullit laa wala taalibe laa wala nit ku baax laa déedéet waaye lépp ma ngi saa saa borom xaw dara waaye nag lu ma am yéene naa ko ñu ngi bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp yéene naa ko ñu ngi bokkal Islaam ñëpp la fekk na nag bay ci sewewu tànk moo tax lu ma am yéen naa ko ñu bokk Sëñ Tuubaa waaye lu ma am yéen naa ko sama bokk jullit yépp waaye nag suñu borom moo defe loolu nañ ko bàyyi boppam lu ko soob mu def ko te du loolu ko ca fekk lu mu jàmm ci di doon am ci nu jeexit bu mu am ci nun jeexit lu mu àtte ci nun bu mu am ci nun jeexit mas naa xalat xalat bu sori sama xel dem ci ne sun borom attal ma nek ci ndittal sawara du bac du wàññi sama wéetal ga dar du wàññi sama cant ga dar na fofu rek la nek dem bak bismillah bismillah tali loxo yi Jangan lagi nak, jangan lagi nu gisee. ñu fi nekkee rek nii la nu gisee. muy taw bi wéy rek ci noonu. xasida yi bari na loolu waa ñu jàngal nu xasida yi nga xam ne moom. ñëpp dañu bëgg mi ngi ci biir gi. loolu tawfeex rek nu ko may. sant bu baax a baax. sëriñ bi dafa doy lépp. waaw di bi may ñaan sax damay damay boole. suñu borom ginnaaw mooy def ak dindi. Mm-hmm. boole nag sëriñ bi. tawfeex ji nu ci am lu ñu ko dolleel di wéy. alhamdulilah amiin bakk. bu ne maa koy. alhamdulilah amiin bakk. sëriñ bi ci waxul nag. mooy boole na ci boppam. amiin boole na boppam. amiin amiin bakk tabarkalla tabarkalla. gàttal na nu boppam. amiin amiin womatal na boppam. amiin bakk amiin amiin amiin amiin amiin amiin loolu rek. mooy. mooy ñaan gi ginnaaw suñu borom mooy def ak dindi may nañu tawfeex sëriñ bi ba noppi waaye mu dina ko doole nag di wéy amiin amiin amiin amiin amiin bakki amiin sëriñ bi nag boole ci boppam moom ci boppam gën noo gàttal lu boppam. gën noo wommatal boppam. amiin amiin amiin amiin amiin. suñu jotaay bii. ñu ngi nuy gis. Mhm. lii may wax mi ngi koy dégg. la ilaha illallah. kon sant rek. sant rek. alhamdulilah alhamdulilah. man sant waaw sant rek waaye dafa am baat boo ma koy lëkkaleen nag sant ak soññu sant nan sax ci sant sax ci soññu moom baat boobu soññu laa nag sax ci sant sax ci soññu waaw ñoo yàlla na nekk ci diggante boobu rek loolu sax ci sant te sax ci soññu nag suñu bopp ci moom. loolu rek la. tubaarkalla tubaarkalla tubaarkalla Mbacke tubaarkalla jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. loolu rek la jërëjëf jërëjëf. saa ci sant. Mm-hmm. saa ci soññ suñu bopp ci moom. tubaarkalla tubaarkalla tubaarkalla. loolu. Mm-hmm. yaqin la ci ne. Mm-hmm. yiwu àddina ak yiwu àllaaxira C'est qui ça connaît outils. Négatif, il C'est que ça connaît aussi. Soigne, ça nous voit petit monde. yiwu adduna ak yiwu àllaaxira moo ci jiitu ak yeneen yi nga xam ne nag xel mënu ci àdd ko xel mënu koo daj noonu ci soññ suñu bopp ci gépp ci gépp wàll daje suñu kem kàttan dëgg la tabarkalla Mbacke tabarkalla tabarkalla tabarkalla mooy woon yéen yooyu rek tabarkalla tabarkalla doy na sëkk doy na sëkk Mbacke sant sant nañ ñëpp ngi lay sant sëriñ bi ñëpp ngi lay sagoo ñëpp ngi lay béggee ñëpp ngi lay ñaanal Mbacke fàggul mboolem ku fi teew rek yàlla jéggal say bàkkaar te defal na ko rek

jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ñi nit ñu bëgg taalibe yu dëggu yii jiituma ci wax ji doyoon na waaye waxi Cheikh Abdou saman dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da ci mënta dolliku dul nag rek sant ak santalu nun lii gën a war ci noonu muy sant rek sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi nun san sëriñ bi rek mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi di nu nu di jaam ñu war a kon bu bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi lool moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lanu sunu borom bàyyee luñ ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko nu dolli ko ca kon sunu cant noonu foofu rek la war a nekk ak cant dong laay dolli ci wax yi Cheikh Abdou Samad ji nanu góorgóorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu paggu bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënoon lu lépp nu doyloo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaye nag sant sëriñ bi ci nun wurti am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nan ko doy na sa kiitam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeñ noo ngi àdduna yóbbaale ko su yóbbal ci àllaaxira di sant sëriñ Tubaa kon nanu góorgóorlu bu baax lanu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg a liggéey foofu la liggéey bi nekk na ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yi mu fi nettali fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam ak nam nam doon doxe digg ma boroomam ak digg ma yonent bi am nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ñu ko gën xam gën a raw lu ñu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu la liggéey bi amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon sunu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bég ci yaar nun ca gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel boppam di gën a bëgg ci ñun loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la na war a góor góor gën a góorgóorloo dinaa dañoo bëgg sëriñ bi di bëgg ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey nag dañu góorgóorlu ci yar nañu jéem a set set set yi bàkkaar sunu képp kàttan yomb waaye nañ ko jéem ndax moo ni dolli ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay di mooy sunu xaas lu gën a fonk xasida yi sëñ bi di gën a bég ci ñun lu ko gën a jàng gën a jege sëriñ bi waxi sëñ Abdou Samad bi loolu yaar yooyu laa ci doole nañu góorgóorlu bu baax ci jéem a set di gën di set ndax lu ñu gën a set rek sëriñ bi gën a bég ci ñun lu gën a set gën a jege sëriñ bi te man ko xasida yi nag xasida مون ورا داقل لب لوني لك لوني داك خزي مون ورا داقل لوي دال خل لوني تي خزي نغارناي جانغي خزي مو غنا غاو نون رك لا ديمي فوف رك لا يي واخي سي عبد الصمد دي doo ci dolli dara waaw cant rek laa ci dolli kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di gën di góor góorgóorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunub dund ndax mën na ko loolu rek la nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar a wax. waaye. maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëriñ bi ne maa ngi waxal bokki taalibe yëpp dafa am lu ñu ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp ne mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa yëpp nga fonk te gëm leen waaye da nga cay fab kenn mu di sëb nun ñii ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu tibbal sëñ ma ko nooru daari ngeen def doy na sëg nooru daari moom am naa am naa ci am naa ci am naa ci firnde am am naa am naa ci am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde sëriñ Cheikh Saalihu moo ma ne ko jàngal nooru daale ni Cheikh Saalihu moo ma ne ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj gi bis bu sel ma jàngal ko ko ni ma ko gisatul te xat xat yi bari aji mujj ne ma jàngal ko boo koy jàng du ma ci fas dal Seex Saaliw rek laa koy jàngal moom laa ko lëggee waaw waaye xasida yi xasaa yi rek laa wax waaw buñ ci bu ci wóor ni sëñ bi ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lum gën a bari gën a baax noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci wax Seex Abdu Samad yi سرين بسيرو دا فا ام بس ماك بنن بوكوم طالب موي وقتان اك نون تي سرين بي لم نجي كنت لي تي بي وخجا خام كو خام ني دا فا نيون سرين بي ديكو ديكو جاخله دال بغ ملني كو بغ خام سرين بي لومو دون سرين بام ياغي با ياغ سرين مي نكو ديو bo yoroon dalli weñ di ko doxee ba xar do gis ku melni man <laughs> ah serigne bi nak serigne Basiru mo waxon fulam fullaam te wax jojje la dem ba tang hal ne waaw sëriñ bi sax mu am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa day waxtaan day wax ba yàgg mu gën tàng ne waaw sëriñ bi sax am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa kon bis bii leer na taxaw sañ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ sëñ bi foo ko toll mu toll la fa leer na nañ moom nag dañuy gën a ñaan rek waaye sampu sëñ bee waaye dañuy gën ñaan nag bu gën su ma gën koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi fa tabaarakallaahu lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo ko gën a bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg taalibe yëpp ko bëgg waaye boo ko di da ngay defee ne gone yi sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu mbir yu ndaw yi ak jigéen ñi ak ñëpp gone yu jigéen ñi boo ko di seet da ngay ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mbir la mën naa dalal sëñ bi fàgg fàggul nanu lépp waaye bun na yàcc bun yàccaaral bun sàggan nanu jiima sant sëriñ bi ci ni mu ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf Baca waaye dafa am lu ko gën a ñor lu jiitu loolu loolu mooy sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal sëriñ tubaat te séq ak ñoom liggéey bi li dox sama diggante ak sama bokk yooyu laa bëgg ñépp seere ko tey na ñépp xam ni ci ñoom sama bokk yooyu laay yees lu sama jaayante ci Serigne Touba bu ñu xamee loolu ba noppi ñoom ñooñu ñu xam ne ñoo bokk liggéey bi am li ci am solo nag nu am li ci am solo mooy ñu ànd def suñu itte jépp ci liggéey ñu gën a xam ne liggéey bii lépp loo xam ne lu yitteel la dama koy ànd ak ñoom rek sama bokk yooyu ba mu gis nu mu gën a nasoo ñu door a yëkkati loola loolu yi mooy li ci ëpp solo li ci des nag daf leen dama leen di xamal sama bopp ndax wax jot na kon li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi muy wàllu fàttali gi ak wàllu soññ gi def nañ ko ci këyit boo xam ne bind nañ ko loolu moom mi ngi fi loolu moom mi ngi fi ñi ko war a jottali it danañ ko jottali incha allah li ci nag. moo di ma xamal sama bopp ñi ma bokkal liggéey bi ñëpp. ma xamal sama bopp ñi ma bokkal liggéey bi ñëpp. sama jaay sama doxin. sama doxin. rek laa bëgg ngeen xam sama doxin rek laa bëgg ngeen xam ko. ba fii ba agsi fii. man. bi ma xàmmee sunu borom daf ma nattoo munumaa def lu ma xamut munumaa def lu moo tax nag sama doxin wu jafe la wu metti la li ma yàlla nattoo noonu jàng àdduna jàng àdduna rek moo daal di xam ne nag jàng àdduna rek nag moo jiitu. jàngiwuma ko nen nag lu dul sama xel ak sama jikko. ko nen nag lu dul sama xel ak sama jikko. ci loolu laa nekk ay ci ci laa nekk ay at. nekkuma ci dara nekkuma ci dara. boyal sama bopp nekk ci loolu nekk ci loolu. la loolu andil. la ma li ma bëggoon li ma doon gëstu lépp ak li ma bëggoon lépp. gis naa li ma doon gëstu ak li ma doon bëgg lépp. la ma ci jële la ma ci jële mooy xam ne. mooy xam ne. tegu ci yoonu jub. tegu ci yoonu jub. mooy aw ma benn yaakaar ci lenn lu lu ma benn yaakaar lu dul tegu ci yoonu jub rek. loolu alhamdulilah. loolu alhamdulilah alamin. ma nekk ci ma nekk ci loolu. ab diir. ab diir. ma xam ne njub lu mu am am njëriñ njubug yàlla njubug yàlla fa la njëriñ la nekk fa la njëriñ la nekk dëgg dëgg kon am naa ci tawféex gannaaw diine jee ngi may gëstu sama diggante diine ji may gëstu nag sama diggante ak diine ji lépp itam bëgg lépp gëstu gi ngir bëgg diine ji wér rek ba ma ca amee ab diir ma am ca tawféex la ma ca jëlee xam lay dëgg dëgg diine ji wér xam lay dëgg dëgg diine ji wér a wér ba ma ca agsee foofu ma daal di soobu nag ci biir soobu gi nag ci laa daal di jëmee ci sëriñ bi ci di sëriñ bi di jàng sëñ di jàng nag sëñ bi di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba am ci tawfeex ba am bi loolu amee nag bi loolu amee gannaaw xam naa gannaaw xam naa liy dëgg-dëgg diine xam naa xam naa sëriñ bi kon nag dox rekk moo ci des ma sóobu ci biir sóobu gi nag ci njàngaleem sëriñ bi ma xam ne sharia ak xaqiqa ñoo fi ne muy diine ji ci njàngaleem sëriñ bi am na lettre am na lettre buñ ko joxoon ci mbirum yoon wi ci xam yoon wi lettre boobu ci xam le yoon wi naka muy doxee la loolu mooy jawaab yi Mor Sëy sëñ Mor Faalo Sëy ca lettre boobee ca la waxee ni lam mu njëkk tontu ndax dañ ko jëk laaj mom sëriñ bi ci lan nga nek mu ne mom nekut fenn lu may ci ñaari la fi sharia ak xaqiqa ne len nak sharia moy li ñëw ci alquran moy li ci xaqiqa moy li nek ci lawul mahfuz la nekk ci lawul maxfuus nag. la nekk ci lawul maxfuus nag. dafa am lu ñëw ci alxuraan. dafa am lu ñëw ci alxuraan. am lu dikkut. foofu la ci yem. mu jëm nag ci. mu jëm nag ci. gannaaw daa bëggoon xam doxinu dëgg-dëgg doxinu dafa bëgg a xam doxinu dëgg-dëgg yoon wi. dénk leen mu dénk leen. ne leen. na ngeen di jàng téere tawxiid di jàng téere tawxiid yu wér yi. te di ko jëfe di jàng téere yi fiq yu wér yi te di ko jëfe di jàng téere yi tasawuf yu wér yi te di ko jëfe amaa nag ñi nga xam ne yàlla da leen a jox da leen a jox ak jagle ña nga xam ne suñu borom moom daf leen a jox ak jagle na ngeen leen bàyyi ak seenu jagle na ngeen leen bàyyi ak seenu jagle ñoom loolu yi ci la Seex Ibra Faal bokk foofu la Seex Ibra nekk loolu bi muy jàng sëriñ bi muy jàng sëriñ bi loolu ci la bokk waaye nag may wéy rek di gën di jàng sëriñ bi rek topp ko rek ci sama xel ak sama xol ak sama pëseef ak sama jikko ma topp ko rek topp ko rek ba am ci tawféex ñëwuma kenn ci sëriñ ñewuma kenn ci sëriñ waaw waaw waxoon naa ne ba ma sóoboo ma daal di nekk ci loolu rek di sàmmonteeg sharia bàyyi bàyyi fee xaqiqa ma nekk ci loolu rek alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom di ma gàttandoog tawféexi sëriñ bi boole ko ndimbalum nag mooy sama doxin ba agsi fii ma agsi tey sama téeméeri xel musta xalaat mukk nekk ne ne lii dana am sama xel musu ja nekk waaye sama xel musu jóg waaye sama xel musu jóg ci sama xalaat yëpp ci sama xalaat yëpp ni bëgg rek yoon wi dox ni mu war a doxe loolu moom ngeen gis ma doon ko doxee kon gis ngeen ni ma àndee woon ak samay kilifa ba ci sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mii doxin woo xam ni dox ga yomb na ma lool yomboon na ma lool. ba ci sunu jataay bii ci loolu laa ne. man foofu laa toll woon. man foofu laa toll woon. lii dal ci sama kaw lii bett ma. waaye. waaye. dolliwuma dara. dolliwuma dara. lu dul lu dul. ma gën a am pëseef gën a am ak dogu gën a fas yéene liggéey rek loolu rek la ne sama sang yi laa leen di wooye du leen wax sama bokk yi kon dégg ngeen ko yéen a jiitu kon bokk taalib yi dégg ngeen ko muntaxaa ngoog sëriñ Muntaxa ngoog ku dem ma dem ku dem ma dem ku demul ma dem li nag waxtaanu àdduna rekk la ndax diine ji ba sangu mbindeef yi wàccee ba léegi ba sangu mbindeef yi wàccee ba léegi alxuraan wàcc. alxuraan wàcc. ànd ak sunna. ànd ak sunna. xadisu yonent bi. mu nekk fi. mu nekk fi. ba léegi. ba léegi. doomu aadama yi. doomu aadama yi. ki leen bind xam seen mbir. leen bind képp xam seen mbir. waaye boobaak léegi. waaye boobaak léegi. junni at la ak ñeenti téeméeri. junni at ak ñeenti téeméeri du tegal. alxuraan a ngi fi. alxuraan a ngi fi. sunnaa ngi fi. sunnaa ngi fi. borom xam-xam yi borom xam-xam yi yaatal nañu. di ko di ko ci liggéey. di ci liggéey. ba tey ba tey. sàgganuñu sàgganuñu. lu ñu war a wax. lu ñu war a wax lu ñu war a def. def nañ ko lu ñu war a wax wax nañ ko. waaye. waaye. boo xoolee boo xoolee mbooloo mi. jullit yëpp. alxuraan moo alxuraan moom yi. alxuraan moom yi. ak sunna ak coono yi boroom xam-xam ak coono yi li mu jëriñ ci nit ñi bari bariwul. la coono yi bari bari li mu jëriñ nit ñi bariwul. loolooy loolu mooy li nekk. loolu moo tax ma jiital wax loolu moo tax ma jiital wax ji ma jiital. ci sama bopp. Hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy doxin wi mën naa yi nga xam ne ci la yoon wi war a doxee wax naa leen ci sama bopp la ca des nag lépp a ngi fi bindoo naa ne la nga xam ne mooy moom la liggéey bi laaj maanaam ci fàttali ak soññee bind nañ ko bind mu wér ni ngi fi. mu ne lool yi tënk naa ko bindloo ko sëñ Muntaxa mii ak man mii ñu tënk ko hmm. loolu nag incha allah lu ñu man rek danañ ko tasaare incha allah eh, la cay dolli ko bon mooy. sama bokk yi am tawféexi dëkk ci dëkk bi sama bokk yi talib yi am tawféexi dëkk ci Touba gi tawféex la loolu dama leen ci bëgg a wax nag sama xalaat ngir laa biiri leen ku am tawféexi dëkk fii nekk ci wetu sëriñ Touba waroo koo booleeg dara bu dee looy wut sëñ bi noppi na ci boo fi nekkee ci nekk ci nag ci na nga fi war a nekkee sa dara du des gannaaw du des gannaaw. Ah, boo fi nekkul nag fi war a nekkee. waaye nag boo fi nekkul ni nga fi war a nekkee. ah loolu moom dañ lay bàyyi ak sëñ bi rek. Hmm? kon dama ko xalaat ni ma ko bëggee ni ma ko bëggee woon ci sama sama sama labiré. kon ni ma ko bëggee woon ci sama labiré. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ñu dollee góorgóorlu ñu dollee góorgóorlu. nekk mooy xam liñ nekk mooy lan. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. mooy sàmmoonte ak borom dëkk bi. mooy sàmmonte ak dëkk bi. la ko gënal ci dëkk bi. la ko gënal ci dëkk bi. loolu jafewul a xam. loolu jafewul xam. xëy na jëfe gi moo jafe. xëy na jëfe gi moo jafe waaye xam ngi moom jafewul. waaye nan bokk góor góorgóorlu nun ñëpp jox dëkk bi àqam jox dëkk bi àqam mooy tax mooy tax day bokk ci jiitu ñu war a liggéeyal sëriñ day jiitu ci yi ñu war a liggéeyal sëriñ bi dëkk bi dëkk bi ñi fi dëkk ñi fi dëkk ñi am tawféexi dëkk fi seen xel warut a xalaat lenn. seen xel warut xalaat lenn. lu ñu defee ne mën na leen a jëriñ lu ñu defee ne mën na leen a jëriñ ci àdduna. loolu waru warut a am. waruñ koo xalaat. sëñ bi doy na leen sëñ bi sëñ bi war na leen doy sëkk. te am xel mu dal ne. te am xel mu dal ne. liñ namoon di ko wuti ci àdduna. namoon di ko wuti ci àdduna. lépp dana leen fi fekk. ak ñi nga xam ne. ak ñi nga xam ne. dañuy jóg jëm si ñi nga xam ne dañuy jóg jëm si ci dëkk bi. ku ci jëm dëkk bi ku ci jëm si. sëñ bi rek sëñ sëñ bi rek moo la fi war a indi. moo xam da ngay siyaare moo moo xam ngay siyaare si ngir yàlla. loolu tooyaay ba la. xam da ñaan si nag. moo xam da ngay ñaan si nag. say aajo say aajo. kooku yaag sëriñ bee. kooku yaag sëriñ bee. kon ku jëm ku ci dëkk bi. kon ku ñëw ci dëkk bi. koo mën a doon koo mën a doon. waru laa séentu njëriñ fenn fu dul waru laa séentu njëriñ fenn fu ci sëriñ. loolu mooy li am. loolu mooy li am. kon nag maa ngi laabiire. kon nag maa ngi laabiire. ñii ñëw ci dëkk bi. ñii ñëw ci dëkk bi. te yitte tax leen a jóg. te yitte tax leen a jóg. buñ jóg mukk. buñ jóg mukk. defe ne mën nañ fee jariñu. defe ne mën nañ fee jariñu. ci lu dul yem ci sëriñ bi. lu yem ci sëriñ bi. siyaare ko ngir yàlla siyaare ko ngir yàlla. ñaan ñaan ñaan ñaan ko seen soxla. ñaan ko seen i soxla. lu dul loolu. warul ñu di ko wut si ci dëkk bi. warut ñu di ko wut si ci dëkk bi leneen lu dul loolu. ndax ku ko fi wut itam. ndax ku ko wut itam. <laughs> doo ko mën a am doo ko mën a am. li ci des nag moom. mooy sama bokki taalibe yi. sama bokki taalibe yi maa ngi jëm ci sama bokki taalibe yi. ñoom nag. ñoom nag. dégg ni xanaa war nañoo dégg nii ma ko waxee. xanaa ñoom war nañoo dégg ni ma ko waxee léegi. daanaka jërul xan daanaka jërul ma di ko bamtu. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. ci li bi bëgg. ci bi bëgg. li sëriñ bëgg. li bi bëgg. mooy topp ndigal yi mooy topp yi. li sëriñ bi bëgg. li sëriñ mooy daw tere yi. mooy daw bi bëgg. yàlla bëgg. bëgg lu yàlla bëgg. loolu rekk la nañ ci góor góorgóorlu bu baax nañ gën a fonk diine ji te fas gën koo fasoo te gën koo fasoo faso gi nag mooy tax mooy indi man mooy indi man gi man koo jëfandikoo faw fasoo jiitu waaye népp jullit laa rek ab taalibe laa rek nekk fi naan ab jullit laa ab taalibe laa rek nekk ci sa bopp noonu de du ñu war a jëflante ak sëriñ bi bokkut ak ni ñu war a jëflante ak sëriñ bi ak lu nu ko tëlee tëlee dañoo war a jéem nekk ci li mu bëgg sëñ bi nag yàlla dong la bëgg ak jaamu yàlla loolu ba mu jógee lolou bam joge talul daralul borom boromam talul dara borom boromam moom sëriñ. ba joxe joxani yonent bi. ba ko boromam joxani yonent bi. mu ñëw ci yonent bi mu ñëw ci yonent bi. daal di xam ne nag. daal di xam ne nag. la tuddé abdullahi wa xadimu rasulih foofee la tuddee Abdulillahi wa xadimu rasulihi.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 ba mën a liggéeyal sëriñ bi. ba mën a liggéeyal sëriñ ci sunu bopp. ci sunu bopp. ak ci diine yi liggéey bi dafa rëy lool. liggéey te yaatu lool te moo ndax loolu moo ndax liggéey bi. ndax liggéey mooy jublu yàlla mooy jublu te muy dëgg ci yow dëgg ci yow. jublu yàlla te muy dëgg ci yow. jéem a xam sëriñ bi nag. jéem a xam bi nag. ci jamono yii weesu. ci jamono yi weesu. dama daa wax ne. dama daa wax ne. yoon wi sori na lool. yoon wi sori na lool. waaye dara yóbbu ko fa. waaye dara yóbbu ko fa. lu dul bëgg sëriñ bi lu dul bëgg sëriñ bi képp ak doyloo ko. waaye xamuñu sëriñ bi. waaye xamuñu sëriñ bi. dunduñu sëriñ bi dunduñu bi. nun ko gën a xam. nun ko gën a xam. di gën a mucc. di gën a mucc. di gën a nekk ci li mu bëgg. luñ ko gën a dund. muy topp ko. muy topp ko. ni mu doxee. ci ni muy doxee. ak ni mu ko bëggee ci nun ak ni mu ko bëggee ci nun kon loolu mooy dund sëriñ bi. loolu mooy dund sëriñ bi. loolu nag. loolu nag. ku ci góorgóorlu ku ci góorgóorlu. xëy na yombul sax. xëy na yombul sax. waaye ku ci góorgóorlu waaye ku ca góorgóorlu. da ngay gën di dajeeg tawfeex rek. da ngay gën di dajeeg tawfeex rek. di gën a xam. di gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a dund. kon nu góorgóorlu ci loolu. kon nu góorgóorlu ci loolu. lee. lee. mooy tax ñu ay jullit dëgg. lee mooy tax li ma njëkkoon a wax léegi mooy tax ñu nekk ay jullit dëgg. muy fonk suñu diine muy fonk suñu diine. te muy dëgg ci ñun te fasoo ko. te fasoo ko. sax ci dàkk. wa sax ci dàkk. li ci des. li ci des. mooy nu xam sëriñ bi. mooy nu xam sëriñ bi. di ko dund di ko dund. ni mu ko bëggee ni ko bëggee. ak ni ko doyloo ak ni mu ko doyloo. xam gi xam gi. ak dund gi ak dund gi. yombut waaye ku ku waaye ku ko waaye ku ko wut sàkk ko. te muy dëgg ci yow muy sa yitte danga nga ci am tawfeex. loolu. mooy sama diggante ak sama mbokki taalibe yi li ci des li ci des mooy nu xam sëriñ bi mooy nu xam sëriñ bi di ko dund di ko dund ni mu ko bëggee ni ko bëggee ak ni ñu ko doyloo xam gi xam gi ak dund gi yombut yombut waaye waaye ku ko wut sàkk ko te muy dëgg ci yow muy sa yitte da nga ci am tawfeex loolu mooy sama diggante ak sama mbokki taalib yi la ca dolli ko mooy sama diggante ak ñi ñu seqal réew mi mooy ñi sama diggante ak ñi ñu seqal réew mi xam kilifay yi moo xam kilifay diine yi la. moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi. moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi. ñoom li ma seq ak ñoom. li ma seq ak ñoom. ndax man kat. ndax man kat. taluma dara taluma dara. ndegam la ma weesu. la ma weesu. taluma ci woon dara ci woon dara. yàlla dimbale na ma nag yàlla dimbale na ma nag. may may may dund ak ñoom maslaa. may dund ak ñoom maslaa. ak ci ñëpp nag. ak ci ñëpp nag. waaye fekk na waaye fekk na taluma ci dara taluma dara lu dul sëriñ bi lu taluma ko lu dul am ngërëmul sëriñ bi taluma ko lu dul nekk ci lu neex sëriñ bi taluma ko waaye nag maslaa mënta ñàkk waaye nag maslaa moo mënta ñàkk ci maslaa laa egsi fii ci maslaa laa egsi fii ma egsi ànd ak ñëpp ànd ak tàmbalee ko ci samay kilifa am seen ba am seen ngërëm kon noonu rekk la nan góor góorgóorlu nun ñëpp te xam ne yoon waa ngoog mooy li ma wax rek mooy sama diggante kilifa yi mooy ni ma wax rek sama diggante kilifa yi diine yi sama diggante kilifa yi nga xam ne ñoo yor ñoom la yàlla dénk doxinu adduna wi ak sama ak kilifa yi nga xamante ne ñoo yor doxinu àdduna wi maslaa. ci biir maslaa. am dama leen a ameel seen akki bopp. dama leen a ameel seen akki bopp. waaye jum ci mën a doon. waaye jum ci mën a doon. danaa leen jox seen aq ba mu mat danaa leen jox seen aq ba mu mat sëkk. noonu rek noonu rek la.

سم ام تي تبرك بركي خطبه بي من جاي بي بيت دول سي تام كادو يو خامني خام خام لا تبارك الله كن دا مل جتاي بي اي واخ دساتو جي تولنا وقتان نك مو امول وقتو كون من لو تيغ رك وقتان لا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 mustatal dara lu dul digg ma borom ana karawaatu karawaatu soow imaam bi bii bu am kaala

da adduna dangay def sa xel sa xel waxtu wu nekk da nga koy def ci jëme ci yàlla nga gën koo mën a xam mu la gën a mën a leeral yoon wi sa xol jëpp nga waxtu wu ne ngay jéem di ko jëme ci yàlla mooy tax doxin yu yomb la bu yooyu amee nag dox rek ci des jëf ak dox rek moo ci des nu góorgóorlu bu baax jëf moom jëf ju baax lépp dugg na ci jëf ndigal bàyyi tere

jullu jëmale suñuy xel ci loolu jëmale ci suñu xool jëmale su suñu jëm yépp suñu lépp di góorgóorlu bu baax foofu la jëf tàmbalee nu gën a góorgóorlu bu baax nag te lépp lépp nu gën a gën gën gën koo delloo gën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 وتحملنا عليه وأنت الذي تكون الإيمان ولا تجعلنا سبب الله عن الذين آمنوا ربنا إنك رب هب لي من لدنك ذرية رب لا تذرني فردا رب اغفر لي ولوالدي Bueno, وأهلي بسريتي في كل وأهلي بسريتي ربنا جني ربنا شيخ شيخ جو سمت كان كما ñoo ko gis. man kenn dama ko liggéey yow kenn dama ko liggéey. man dama dama ko liggéey. ah man dama dama ko liggéey. nee na ñaar rek ñoom ñaar. ربنا إنك من تريد من نار بأخزيته وما يسأل من ربنا إنك سبحانه ينادي أنا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

nu suñu borom gën a gàttal nag taw foofu Sëriñ Tuubaa parce que sëñ bi lu ca mat def lu ca mat def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 mu ngi jégalu bu baax a baax lii du xutba du dara waxtaan la rek kon alhamdulilah rabbil aalamiina loolu mooy sama yéene di seeral ñëpp waxtu wu ne muy gën a yeesa sama jaayante ak sëriñ bi waxtu wu ne muy gën a fedd di sama laxasaay ngir liggéey sëriñ bi ci yaari yaari diggante yooyu rek lay nekk jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi ni mu ko waxee rek. ñi ma ko tuddee ci boppam ba ñëpp xamee ko ni abdullahi wa xadimu li rasuli ci diggante boobu rek la nekk nun kon sañ nonu nu ñàkk jaamu yàlla ndax yàlla lu moom waaye nag nu liggéeyal nu boole di nu nekk ci diggante boobu di jaamu yàlla nam nam ko nam nu ko diggale ak na ware di liggéeyal sëriñ bi nam ko bëggee nam gën a selle jërë ngeen jëf ngeen daal sa bi ok mbokk yi euh, ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax di leen sant gis ngeen euh, julli gi nga xam ne Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Abdoul xaadar moo ko jiite bu fukki waxtu di jot waaye itam dégg ngeen xutba bu am solo bi nga xamante ni moom la ci teg ah, ak ndénkaan yu am solo yi nga xamante ni moom la ci teg ci lu aju ci ngëneeli weer wii fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki fan zil xijja ci mboole loolu mooy suñu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yàgg ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk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 loolu moom teg nañu ci teg nañu ci yoon wa bàyyil na ko fi kon jaaxle wërta mën a am ci ci lenn nag kon nag kàddu yooyu wax ji moom wax na wax na ba tey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 sun borom mi nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag euh, ñoo ngi euh, jéggalu ñëpp ñu baloo xaq ñëpp di ñaan ñu balonte xaq ñëpp euh, loolu nga xam ne mooy suñu mooy suñu liggéey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 gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëriñ bi eh, tolluwaay bii nu toll eh, mel na ne tiital na ñëpp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 amul kenn koo xam ne su jëf mën laa yóbbu àjjana ñu ne ko ah yaa la ba ci yow mu ne ba ci man lu dul suñu borom nas ba ci mbarum yërmandeem loolu kon ji mi ne moo ko wax kon euh, suñu borom jaam moom yëkkati mag màggam gi rekk la te loolu mën nu koo def ba def ci ba jox ko àqam moo loolu mooy mooy junj junj boobu waaye nag alhamdulilahi rabil alamina mën na noo am xel soo xel mën na daal mën naa daal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi ah, sëriñ bi moom li may wax ne rek dañ ko war a jéem ba xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu ñu ko gën a xam di gën di jege lu ñu ko gën a dund di gën di mucc di gën di raw kon ñoo ngi sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi eh, li li li li ngeen ci man lépp def ngeen ko waaye suñu borom moo demee noonu te sëriñ bi euh, kenn mënu ko roy kon noo ci diggante boo xam ne euh, xam suñu bopp xam suñu wartiif di ci góorgóorlu suñu kem kàttan loolu rek moo ñuy dimbali dund bari na gàllankoor lool ay ay xat-xat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 fan koy tàmbalee rek mooy Cheikh Abdou Lahad euh, liggéey bu bii euh, lépp euh, gannaaw Sëriñ kenn jiituwu ko ca li ci am moo di Cheikh Abdoul Ahad dañoo ne jóg rek mu gis leen xam ne sëriñ bi mu ngi ci yéen kon ma mënees naa wax ne Cheikh Abdoul Ahad moo feeñal sëriñ bi ci yéen a gis xam ne seen gëm seen sëñ bi rek ci yéen mu jug ñun jëpp itam jëpp muy taxawal leen bu ngeen mën a sóobu sax dàkk ci liggéey seen toit te yàlla tax la ca dolliku mooy Cheikh Saleh moom it euh, dafa xam ni sëriñ bi la ci yéen ndax loolu moom xam na ko waaye fekk na itam Cheikh Abdoulaye feeñal ko feeñal sëriñ bi ci yéen moom xam ne ak mu fi mu yem wu fa liggéey ba jëm ndax moom mu leen tuddee xisbu tarqiya tarqiya nag ci la lépp nekk قد خلقنا الإنسان في أحسن تقييم ثم رددناه أسفل السافلين foofu la tibbe tur wi ndax suñu borom moo waxal boppam bind na nit ni mu gën a jekkee ni mu gën a rafete waaye coobarem dol delloo ko it ba mu gën a suufee la gën a suufee kon ginnaaw nit mu ngi ci diggante kawe ak suufe euh, Cheikh Saalihu tànn leen tur wu rafet wu rëy muy xisbu tarxiya yéeg kon jël la ne jël la ne euh, ngeen suufe ngeen dellu suuf waaye dafa dafa dafa leen da da leen tuddi yéeg ni ko suñu borom waxee rek mu gàttal ci gàttal ni mu ko defe rek moom mu ñëw tudd leen tur woowu xam ne jëlee na ngeen suufee waaye dafa bëgg ngeen di jëm kaw mooy Hizbut mooy kuréel kuréelu yéege loolu di ay kàddu yoo xam ne il faut nu fàttali ko gannaaw Cheikh Sadio ñu ma ko waxee woon ci sëñ aatu suñ borom jikko yi ne ci moom suñ borom moo ko defal moo ko defal sëñ Tuubaa ci moom loolu waxoon naa ko kon gannaaw Cheikh Abdou ak Cheikh Saliou duñ ca mën a teg loolu sëñ aatu taxawaayu sëñ aatu du moom day tawfiix Sëriñ Tuubaa ju ko yàlla defal sunu borom it waajalaat ko waajalaatal ko sëñ bi ba tax eh, kaddu eh, jiigu murid yi mu dox loolaa ko waral dañ koy waajal sunu borom moo ko waajal Sëriñ Tuubaa ci ndigal si si si si si si sa euh, euh, sañ ab sañ ab laat liggéey ab liggéeyam sañ sax sax liggéey ab liggéeyam ci yéen ba noppi la ca dess mom mom la yalla def defal ko sëñ Tuubaa ci mom mu dox jigu mu jox ba ni mu la dajee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 jëf juy taxaw ngeen loolu wax wax aju aju ajootuñ ci wax ndax jëf ju jëf ju taxaw ngeen loo xam ne pàggatu Sëñ Tuubaa la muy taxawaay boo xam ne itam nag diggante sëñ bi ak boromam kanamam gannaawam mënut a ñàkk mënu ci mënu ci ñàkk def fàggu def ndax liggéeyam bu rëy bii loolu la mu ko bëggee muy muy liggéey ba di dox ba ca ba ca ba ca kanam ba ca kanam kanam borom loolu kon loolu pàgguteefu ma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 mooy ngeen xam nag yéenay kan ngeen xam yéenay kan xam seen bopp xam fi ngeen fi ngeen toll xam li ngeen tuulu loolu yéen seen asolier la ngeen xam seen bopp xam yéenay kan xam fi ngeen toll xam fi ngeen jëm ak li ngeen jublu loolu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 loolu mooy taxawaay bi mooy tolluwaay bi fa tabaarakallaahu waxtu wu nekk dañuy gën a dolli ko yaakaar ci yéen ndax suñu yéene ci yéen dafay amul fu mu yem na te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 kon lan koy mën a sant rek mooy rek ni ngeen ko yëgee ndax jéego yi ngeen dox loolu leen ko may muy xasoo ci la loolu moom mooy mën am jublu yàlla ba bañ a gis dara ci diggante bi na am na xesab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 kon nag tawfeex yi ngeen am képp koo xam ne sëñ sëñ Tuubaa ngi ngi sa xol maa ngi ñaan ci baaxu sëñ Tuubaa lii ngeen am mooy tawfeex sëñ Tuubaa ju sell ju wér maa ngi ñaan ku ne taalibe yàlla def ko ci yow noonu dong dong dong dong waaw nu yoon waa ngoog ah ñun ñëpp ñun ko bëgg ko waaw ku gëm yàlla bëgg sëriñ Tuubaa dooloo sëriñ Tuubaa bëgg ñun ñëpp bëgg li ngeen bëgg li ngeen la ngeen nekk ñun ñëpp ko bëgg waaye nag xorriya bi maanaam maanaam liberté bi di ngeen am boo déglu liberté lépp dara dara dara dara tënku leen ngeen soobu yoonu yàlla waaw loolu.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 ndax dégg ngeen ni ma waxe kon nag yoon waa ngoog yoon waa ngoog yàlla na nu suñu doom gën a gën a gàttandoog gën a gën a gàttandoog tawfeex sëñ Tuubaa kon nag yoon waa ngoog barkal barkal jërëjëf jërë jëf sant gi sant gi moom ban leen xamee dañ leen sante woon Serigne Touba sant leen cant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 moo ndax ndax ndax seen borom dafa tëri dara waaw ci yéen yéen lañ daal doon jox misaal may leen ndax seen borom dafa tëri dara boo ko neexoon ñëpp tegu ci yoon ñëpp moo ndax sëñ Tuubaa daal da da suñu borom da ko jombalee dara lu baax sëñ Tuubaa suñu borom jombalewu ko dara lu baax loolu mooy jël loolu daa ko tontu.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 dina doole taw tawfeex sëriñ bi ci noonu waxtu wu moom lay xëy di ñaan ku ma ñaan rek ci moom laa lay mujjee moom laa xëy ba ba wax ba dëdd loolu moom laa gudd gudd gi loolu rek lay ñaan waaw waaw kon nag jërë geen jëf jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax baax a baax a baax ci jéego yi ngeen jéggi ak jataay bi jataay bu yàgg bii ngeen toog ñu ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax a baax yàlla noonu suñu mu gën a gàtt nag tawfeex sëñ Tuubaa ci suñu biir ak suñu bitti suñuy mbir yëpp yàlla noonu suñu boobu gën a gàtt nag tawfeex sëñ Tuubaa kon dafa mel ne tawfeex sëñ Tuubaa rek am solo mel ne tawfeex sëñ Tuubaa doo nga am solo ah kon nag moom lu ñuy def nan ñaan rek dañ sax dàkk ñaan am na sax lu may ñaan rek yàlla noonu suñu boobu gën a dolli dolli suñu tawfeex sëñ Tuubaa loolu rek la. No reclama. No reclama. Hagamos a jotaay bi jëkk ba ñu jëkkoon a toog wax ma pëste bi ak jumb gi ak yéene bi ak jotaay bii mel na ne xam nga ndax dara rëbbetuma ci te fu ngeen bëgg mu àgg fa da da da da wees loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa moom laa am yaqin ba nga fa jataay bu ba bii xamewuma ko lii dara rëbbati ma ci te am naa yaqin tam ci ci kanam dan mun na ñàkk ñaan rek suñu borom sàmm leen ci yàggal leen wéral leen ba ngeen mën a nekk ci liggéey bii na ko yéenee loolu rek la ñaan waaye amu ci dara loo xam ne doon bett sama sama sa am naa ci yàqin kon bi njëkk wala def nag man di ma ko wax ak jataay bii xam ni moom ndax dara bett ma ci amul luñ ci wax nag loolu fexe dimbali ñu ba njaboot Sëriñ Tuubaa gi ñu àndandoo dem ba ca fa ñuy teg fa ñuy tàmbali liggéey bi ñu teewandoo ko dara du doon ko ci loolu nag bu ñu demee ba bay bay yëkkati mool bi jiital ci ñaan bi la may la may la may naan ñun ñépp nan teewlu ñun ñëpp nañ teewlu buñ teewloo nee na ñun ñëpp nu nu nu nu yeesal suñu jaayante ak bi di yeesal suñu yéene di yeesal suñu di gën a wéral suñu pasteef di gën a jublu sëriñ bi teel rek tax la cee dolli ko moo di bu ñu yeesalee suñu jaayante ba noppi li ci kanam liggéey bi sëñ Tuubaa bii liggéey bi bii ñu tam da cee bokk waaye liggéey bi réy na yaatu na te il mu yóbbu ko fa mu ko jëmee waaye nag du tee ñu ñaan nanu ñaan liggéey bi sëriñ bi bii yàlla kattanal nu nun ñii fi teew nii kattan na nu ak ñeneen ñu ñuy wuutu ëllëg suñu borom kattan na leen ba ba ba bis ba sëriñ bi soxlaa jataay bii muy bis bu bis bis bisu bisu bisu daje ba rek kon ci barkib sëriñ bi ñi yor liggéey bii ñi nekk ñi fi teewe ñi fa teewe nii ak ñay ñëw ëllëg ñay ñëw ëllëg muy béy liggéey bu mu laal suuf mukk nan ñaan bu mu laal suuf mukk lenn dong dong dong moo war a liggéey bi mooy yëkkati baatu sunu borom sëriñ bi ñëw leen yëngutam bépp léppam eh, jàddul lépp mi ngi ko def ci yëkkati baatu sunu borom ilaahu kalimatillahi al-ulya ba loolu dong moo moo moo moo moo ko fi indi loolu it lañu fi bàyyil mooy suñu dono ci loolu rek lañu war a nekk suñu lépp ci loolu lañu ko war def di ñaan nag ñun ñii fi teew mu ko dolli nu kàttan ban mën ko taawu liggéeyam bii bu yàlla bu nu yàlla wooyee ña ña ña wuutu yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi l oliya loolu dong mooy bi loolu nag bis jëm jëwul fer bis jëm kon nag jërë jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taamu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi oliya ba bis bi jiba ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa dañ tuwaa dina moom waaw ba bis ba ñu sa fa sëñ Tuubaa demoo yàlla alhamdulilah yàlla nu yàlla boole ca noonee foofee muy demoo yàlla nu si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ Tuubaa xool xool sëñ Tuubaa ga ca biir ñu yaa ngi bokk nga ci ñaan bi waaw ndam ndamam ndam ndam ëllëgëm loolee yàlla nañ ci bokk waaye yàlla nu gën a dimbali itam ba liggéey bi liggéey bi ñu taawul ko kooku ba bis biñ ci ba loolu rek la ñaan ci barke ci barkeem ci baaxam ci ngëneelam te pàggu jëfoon nag ndax lépp pàggu jëf jërë ngeen jëf nan dem nag def tey ndànk dem ba jë sëñ bi nee jiitu ci ay kàddoom mooy yeesal ay cantam rek sant gi ma sant suñu borom ngir boole gi ma booleeg sëriñ bi moo jiitu di sant sëriñ bi ci sama léppi tey ak ëllëg ndax li was sama léppi tey ak ëllëg moom dong laa ci wut moom dong laa ci wut moom dong laa ci munta ñàkk moom dong laa ci munta ñàkk di ko sant nag baax a foo xel mën a yem ak cant xool man faa ak foofee laa koy eggale maa ngi leen di seereel sama cant bu rëy la ca dolliku nag moo di ni ma ko waxee rek suñu diggante ak sëriñ bi sama doom yu baax yii sama doom yu baax yii xam naa ne dañoo bokk rek ci pàggute ndax xam naa ne dañoo bokk rek ci pàggute bi sëriñ bi may dégg ba tey di dégg di ma waxtaane di

Cheikh May ak sëñ Fallou moom sëñ Moustapha Absa ci seen taxawaay ak seen i may dégg ba suñu borom dogal nag ma am lu ma ci xam. sëñ Khalil mii moom amoon naa ndigal ci moom na fi man ci ndigal sëñ Saliou. sëñ Khalil moom mii amoon naa ndigal ci moom ci ndigalal sëñ Saliou jaar na ci man. moom it taxawaayu ñooñu rek la moom it taxawaayu ñooñu rek la ñoo ko andi itam ñoo gisee loolu. bi ma gisee loolu. mu yëg ko mu sori ci man lool. ma yëg ko mu sori ci man lool. mu wóor na ma ne. mu wóor na ma ne. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal ko si xaside yi moo jiitu. liggéeyal ko xaside yi moo ci jiitu. bi ma xamee loolu. bi ma xamee loolu. Eh, sama doom jee di Cheikh Fatma. sama doom jee di Cheikh Fatma moom sëñ Moussa Bachirou. yàlla defal nu ci tawfeex ci moom. yàlla defal nu tawfeex ci moom. ci jub defal na ci njub ci xam-xam defal nu ci xam-xam yàlla xiir ko itam yàlla xiir ko itam liggéey boobu ci liggéey boobu boobu liggéeyu sëriñ bi ci liggéey yëpp ndax sëriñ bi moo jiitu ci liggéey yëpp liggéey mu doon mu defal boppam liggéey boobu mu defal boppam diggam ak boromam diggam ak boromam diggam ak bi diggante ak yonent bi diggam ak boppam diggante ak boppam ma daal santaan nag. ma daal santaan nag. ci sëñ Cheikh moom yi. sëñ Cheikh moom yi. nga xam ne dafa daal di sama dal jëm ci li ma yéene. sama xel dafa daal di dal jëm ci li ma yéene. muy lu bopp doom yu baax yi bind. mu sama doom yu baax yi bind. ñu ko seen loxo yi. ñu bind ko ci seen loxo yi. lu ma ñàkk ñàkk ñàkk solo. waaw waaw moom de lépp lu. doom yi man it muul ko. man fas naa am. taxawaayu mool ko. lu ci yàlla dogal rek. lu yàlla dogal rek incha allah lépp laa bëgg a mool. loolu dama dama ma ko waxee rek eh, sant naa bu baax. loolu nag ni ma ko waxee rek sant bu baax. tawfeex ji ma am ci sëriñ bi. waaw Mbacke tawfeex ji de rëy waaw. sama dundug àdduna. ba ta ba tax na sama dundug àdduna. sama dundug alaaxira sama dundug alaaxira moom rek laa ci mënta ñàkk moom rek laa ci moom noppi woon naa ci bu yàgg. àdduna moom noppi woon naa ci bu bi ma daataa agsi foofu bi ma daataa agsi foofu. loolu nag tax. loolu nag tax. tawfeex ji ma am ci sama doom yii. tawfeex ji ma am ci sama doom yii. ma bëgg ma bëgg leen bëgg leen a fekki. bëgg lu ñu bind rek. bëgg lu ñu bind rek. fu seen fu ñu ca àgg ak yitte rek. fu ñu ca àgg ak yitte rek. mànd koog ñoom mànd ñoom. lu ñu bind rek. lu ñu bind rek. feeg maa ngi noyyi. feeg maa ngi noy danaa danaa mool lépp. danaa mool lépp. ndax. liggéey bi. ndax liggéey bi liggéeyu sëriñ bi. ndax liggéeyu sëriñ bi yaatu na lool. yaatu na lool. lépp ci lislaam la ko ci lislaam la ko liggéey. waaye liggéeyu boppam bii nag. waaye liggéeyu boppam bii nag.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 bi loolu amee. damaa daal di xemmem jataay bi. damaa daal di xemmem jataay bi. bëgg ñoom ñooñi. bëgg ñoom ñooñi. ñu teew si ñu teew si fi. ak képp ku yeyoo ci jataay bi. ak képp ku yeyoo jataay bi. nii mu demee nii rek. nii mu demee nii rek. noonu laa ko bëggee woon. noonu nii laa ko bëggee woon. muy jataay boo xam ne. muy jataay boo xam ne. leen di dama sama sama sama sama digg ak ñoom. sama digg ak ñoom. dama cant ak kañ ak terle ndax lu ma ci def rek ci teraanga rek néew na lool ci ni ma ko bëggee waaye loolu dong laa ci waaye loolu dong laa bokk jotaay ñu ma sant leen. ma kañ leen. kañ leen. di seereel sama borom. seereel sama borom. di seereel sëriñ bi. di seereel sëriñ bi. ni seen liggéey boobu yi. ni seen liggéey boobu yi ñu sëgoo. fas yéene caa ànd fas yéene caa ànd ak ñoom feeg maa ngi noyyi fas ñoom feeg maa ngi noyyi yàgg lool loolu nag moom moom laa leen doon seeral ñoom loolu moom laa leen laa leen doon seeral ñoom bokk seeral bokk yu baax yëpp xam ne am nañ yeeyoo teew ci jotaay am nañ yeeyoo loolu dong la loolu rek la loolu rek la waaw ndax yàgg lool eh, da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen seeral ni ma ko waxee woon rek. ni ma ko waxee woon rek sëñ rek laa mënta ñàkk. sëñ bi rek tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. waaye na ngeen nag. na itam nag. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yenn ko yóbbu ko fa fa fa sëñ bi bëggee. te bu ma sañoon yenn ko yóbbu ko ko sëñ bi bëggee. waaye yitte ji waaye nag yitte ji nag. lii laa ci jiital. lii laa jiital. fas yéene cee liggéey rek. fas yéene cee liggéey rek. mën a boole boole mën a boole boole ko. loolu laa indi seere. loolu muy tàllal ngeen ñaan ngeen tàllal tàllal leen sañu ñaan gërëm bu baax a baax waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax Cheikh Bass suñ Moussa dama laajoon eh. ba xam ndax dinaa fi yëkkati kàddu ma ne fii jotaay bi moom yëg-yëg bi ci suñ bi am wóor ma ne kenn mënu ko ci wut kon nee na nga ñaan rek amin amin amin ñu yàgg fi lool ba egg ba ba li bëgg lépp mu egg incha allah des na tuuti rek ne des na tuuti rek jëmmi yooyu nag jëmmi yooyu nag dama yaakaar ne dama yaakaar ne buñ ci nekkee. buñ ci nekkee. dana mas a bari lool. dana mas a bari lool. loolu nag moo tax. loolu nag moo tax. bëgg ñu wutal ko kër boppam. waaw ñu wutal ko kër boppam. bii ba yéete bu sëñ Moussa Dieng fii bi xajatu ko. déedéet foofu di dara xajatu ko. béykat béykat. daaru mi yëpp tutuwaarka la. waaw waaye dama bëgg bii moom ñu wutal ko kër boppam goo xam ne. Hmm. bindum sëriñ bi dong moo ciy nekk. kër boppam goo xam ne bindum sëriñ bi képp moo fay nekk. mooy ngeen xamaale ko ci. ngeen xamaa ko ci. dañ ko dañ ko daal taaw sóobu nag fi saa si dañ ko ci sóobu ci saasi. lu may xalaat. bi may xalaat. agsi ci xalaat waxtaan ak sax bas mi. ba waxtaan ci ak sëñ bas mi. ak yow mii ak man mi. waaye fa xalaat ji mujj. fa xalaat ji mujj. mooy ñu ñu def ko foofee ci ci liggéey boobee. ñu def ko ba. ñu def ko foofee ci seet fu ko fa def. ñu seet fu ko fa def. xam ne moom moom moom lu téere yi bari bari dañ ko ci fàgg ba nga xam ne. lu téere yi bari danañ ko ci fàgg ba nga xam ne. lu am donte ay. ab angaar la itam. donte ab angaar la itam. dana fa xaj dana fa xaj loolu rek laa ci bëgg. loolu rek laa ci bëgg. ngeen xamee ko noonu. ngeen xamee ko noonu rek. yaatukaay. léeg léeg damay ne samay xel samay xel samay sa jëm dañ ko jiit sama xel waaw moom mii déewoon naa ko ne ko. moom mii déewoon naa ko moom sëñ Atou mii. kër googu. ne kër googu. maa ngi ñoom ñoo koy liggéey. moom mii sëñ Atou moom moom ñoo koy liggéey. mënoon naa wax Cheikh Bass. mënoon naa wax Cheikh Bass. ak sëñ Ahmadou Badé bi ak sëñ Ahmadou Badé bi ñu seet. ñu seet. ñi kuñ kuñ koy liggéeyloo. kuñ koy liggéeyloo. ca ca ca barab ba. ca barab ba ci université am yéene bari na lool. ñi ci am yéene bari na lool. xam na lii moom. waaye damaa xam ne lii moom.

xam na lëm sédd boromam xam na lëm sédd sëriñ bi bu ca xelam dalee na gën a góorgóorlu bu baax yokk ko bu ca xelam dalut na ca góorgóorlu ba xelam gën caa dal loolu dongkat moo nuy amal njëriñ amul leneen leneen leneen loo xam ne du dul dolli na ay jafe-jafe baat baat jamono jooju bay xew du dul dolli na ay jafe-jafe jëm ci leneen lu lu lu sunu borom ci gannaaw sëriñ bi amul lu benn njariñ dañuy dolli ay jafe-jafe rek àdduna moom xëy na dëgg la nii la baaxoo sax mus sa jàkk waaye suñu jamono ji moo ci raw sëriñ bi ndokk Cheikh Sidi Moustapha ndokk bi nga xamee ne itam jëpp ñu ko jëmee ci sëriñ bi jëmee yitte sëriñ bi moom moo jëmee yitte sa borom rek kon ndokk bi nga xamee ne itam jëpp jëmee ñu ko sëriñ lii mu digle jamono ju ne waxtu wu ne baax na la baax la am waxtu wu ne baax na am na njëriñ waaye dafa mel ni suñ jamono jii nag moo ci raw li ci bari ñu yaakaar ñu ci bari dégg nañ la nga xam ne moo xaw ci réewi islam yi ay julliti kese di reyante seen biir te àdduna rek tax loolu képp jar na jóg jëm ci lii sëriñ bi digle dellu ci suñu borom waxuma la sax réew yi arab yi waaye mën naa cee wax menn réew moo xam ne muy Filistin fa nga xam ne fa la masjidul aqsa nekk fa la nga xam ne fa la su su su su yonent bi foofu la rañaane wu jëm ci boromam foofee ay noona ko wër këpp aw ay ay néew joole dëkku fa noonu yooyu bëgg leen a génne foofa leen buntu xasaal ci wet gu ne di rey di jàpp loo ko soob mu def ko ndax ëpp gëm leen ëpp la ëpp doole loolu kon lu néew néew doole lii jar na di ko def waxtu bu ne ngir ngir ngir liggéey lislaam la ci suñu kem kàttan ginnaaw moom ku gis loo xam ne gënut boo ko mënee faj da koy faj fa boo ko mënut a faj nga wax la ci naqari lépp bu munta wax nga am nga am naqar xol bu wóor a wóoru bu xóot ci yow ngir jëf ju bon ji nga xam ne moom nga yëg moom nga gis kon lii sëriñ bi digle alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi ñu amee kilifa boo xam ne waxtu wu ne mag nu jéem a delloo ci sëriñ sëriñ bi nan nan sant bu baax a baax a baax nan sant bu baax te góor góorgóorlu nag nan dellu ci suñu bopp kenn ku ne ci ñun ñi fi teew ñëpp ak ñi koy dégg kenn ku ne ci ñun na dellu ci boppam seet diggam ak borom seet diggam ak sëriñ bi la mu la la la mu def ci loo xam ne na ma ko waxoon léegi rek la mu jëf ci loo xam ne dal na xam jigéen ma boromam alhamdulilah rabbil na ko yokk la mu sàggan jigéen ne boromam ak diggam ak sëriñ bi xam na ko na ca góor na ca góorgóorlu fas yéene jóg ci tagante googee muy góor muy jigen muy mak muy ndaw ñun ñëpp ñoo ci yam ñun ñëpp bëgg mucc tey ëllëg kon ñaka xam ak sàggan rek fi nek damay wax ni ku gëm ni yàlla gëm gu wér gëm alaaxira in fokk da nga xoxe bop bopp fàpp saw doxin xam ngeen li ma wax kon nan góorgóorlu bu baax te xam ne eh, ña nga xam ne ñoo daw jëm ci seen boroom ba jege ko lool ñooñu seeni bàkkaar moo di noo noo goo xam ne jëmul ci yàlla loolu mooy seeni bàkkaar moo tax ñuy wax ne eh, yii yi gaa ñu baax ñi moy ñaaw ci fi gaa yi jege yàlla yi kon euh jëm ci sa borom amu waxtu waxtu boo ci amee tawfeex rek santal yàlla te jëg te te te fëx daw mënul jëm ci sa borom kon jëf sëriñ bi moom mi nga xam ne waxtu wala mi ngi delloo ci suñu borom li ñu diggal loo xam ne njariñal julli yépp lay doon dañ koy sant bu baax di leen sant yéen ñi nga xam ne taxawaay bii sàmm alxuraan jëfee alxuraan di liggéey alxuraan di dundee alxuraan loolu mooy suñu liggéey ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax yoon waa ngoon ñu ngi sant bu baax nag alhamdulilah rabbil alamin شيخ محمد بشير مني في مو شيخ محمد الفاضل سليم معمر مو شيخ محمد الفاضل سليم بشير مني مو شيخ حبيب يا خالد كوني خامنكم ودي اللي ماني ذكري فتبارك الله اليوم كان كوني أه، خيب ناس ما بقيت عيبي فهي دون ما نتشي تجاهي يوم يوم ak seeni rakk ak seeni mag xanaa ñaan rek suñu borom mu gën a sàmm Seex Sidi Muxtaar di gën di bàyyi lu yàgg yàgg nekk mu gën a mën nekk ci liggéeyam bi ñu ngi fi bàyyi leen ñi nga xam ne yéen a yi ñi sàmmal Alxuraan leen di ñaan ñaanal yéen itam. suñu boom sàmm leen sàmmal leen te bàyyi leen fi leen kàttanal leen ba ngeen gën a mën a nekk ci li ngeen nekk sama sang si dëgg la maa leen def ci maa leen ci wet waaye man kilifa laa leen def na ay sang laa leen jàppe ñoom ñii nga xam ñoo fi teew teewal fi ñi seeni seen bokk yi fi teewul ñu ngi ñaan bu baax a baax ñu ngi doon la ñaan bu baax a baax mu gën a ànd ak Seex Sidi Maxtaar تيتم جي قنا عندك يين تسين تخوى بيك te sunu borom tëlëgul dara mu def ci noonu nag lu wér lu jar bëgg ngeen bëgg bëgg sëriñ tubaab boobu doy leen lépp mu dolli nu nag ban mën a gën a tegu ci yoonu ma bëgg bu mu bëgg mën na gën a mën a nekk seen i jëwriñ ba gën a ànd ak yéen loolu noonu ko nan ko ñaan ñun ñëpp ñaan ngeen ma ñaan kilifa mun na ñàkk te kilifa nu mel ñi mu yëlif noonu rek la ñu mel kon nag na ngeen na ngeen na ngeen na leen di ñaaral man dinaa ba noppi mag laa ay ñoom ñii ay ndaw lañu na ngeen leen ñaanal suñu borom tëbb leen gën leen a dolli xel mu rafet mu leer gën leen a dëgëral dolli seen i pëstéef gën leen koo dëgëral gën leen koo sàmmal yokk gën leen a yokk seen i yitte xam li nga xam ne moom lañu am mësuwaliyaat yi nga xam ne moo leen moo tegu seen kaw du gën koo xam من كو اوف دولي من كو جيفي بو باخ باخ باخ واخ لغي يلكو سيرن توبا ليب صاح داك سي لغي يلكو جيف لام صاح داك سي لغي يلكو سيرن بوب سي سون ليب نا داماي واخ ني لغي لغي سيرن توبا دان كوي تامبلي سي سون بوب دان كو لغي يل سي سون بوب با نوبي نان كوي لغي يل سون بوب موي جيما ديفاك رك با سون خيل دال سن گنا جيب جيب ني گون كو جيبل سون بوب la ca doon door caa dolli nag yeneen lu mu mën a doon lu baax li baax lu mu mën a doon rek lu mu ca mën rek dañ ko def am ca positif liggéey la ko sëñ bi ak lu mën a doon kon jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax baax baax ni ma ko waxee nag eh, xëy na fi ma toll ma ngi ma gën a yaal saytaane gën maa sori waaye mag bi ñëw na doole di yaram bi ñu ngi fi waaye alhamdulilah rabbil alamin sant naa bu baax ci lu ma wees sant naa ci lépp kon moo tax ma bëgg ñi ñaan boobu Cheikh Mahamadou Bachir mii Cheikh Mahamadou Fadil sëriñ Mamour mii mu Cheikh Mahamadou Fadil sëriñ Bachir mii mu Cheikhul Habib ngeen xam ne seen taxawaay mat na sëkk eh, xeeb naa ci sama bopp lool man ci taxawaay bii xam naa da ngeen ma ko yéene rek yéene ma lu baax rek waaye xem naa ci sama bopp lool waaye ni ma ci xamee sama xeebee sama bopp nag ñoom ñi leen leen ñi leen laa ci ñi ci taxa ci ci ci jataay bi ci taxawaay bi kon eh, ma ko ñaanee woon rek loolu baamtu nangu suñu borom defal ba ñu gën a mën a jublu sëriñ bi dañ gën ko mën a jox suñu lépp ba ñu gën a mën a sax ci liggéeyale ko suñu lépp daal di wax sax man ci waxi daanukat daal di wax ci waxi daanukat noonu suñu jaamu yàlla dafa ñu fasaale ca liggéeyale ko sëriñ bi doon ko liggéeyal nag moom ci boppam ci lépp lu baax suñu kenn kàttan man noonu laa ko gisee kon maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu bu baax a baax baax ci lépp loo xam ne ak matali la bu ma weesu matali la matali la bu ma bu teew fi man ak matal la matal la ji bu lu ma jëm maa ngi koy jéggalu bu baax a baax wax dëgg ko seeral yàlla ñu maase suñu borom may nu yërmandeem gàttal njëggalam bi biti gën ñoo xiir ci boppam gën ñoo xiir ci sëriñ bi gën ñoo xiir ci lépp lu baax lu war a jëf eh, jërëjëf nii nii nu nii nu nii nu nekkee fii noonu la ñu noonu la ñu gisee ci waxtu bii. noonu la ñu gisee. ñu fi nekkee rek nii la ñu muy taw bi wéy rek ci noonu. xasida yi bari na loolu waa ñu nu xasida yi nga xam ne moom. ñëpp dañu bëgg mi ngi ci biir xasida gi. loolu tawfeex rek nu ko may. alhamdulilah rabbil sant bu baax a baax a baax a baax. sëñ bi dafa doy lépp bi may ñaan sax dama boole suñu borom ginnaaw mooy def ak dindi mu mm-hmm. boole nag sëriñ bi mm-hmm. tawfeex ji nu ci am dina ko dolleel di wéy alhamdulilah amin bakki bu nañ bi ci waxul nag mm-hmm. mooy boole na ci boppam boole nag boppam amin <laughs> amin amin amin bakki tawarkal tawarkal gàttal na nu boppam. amiin amiin womatal na boppam. amiin Mbakke amiin amiin amiin loolu rek. Mm-hmm. mooy mooy ñaan gi. Mm-hmm. ginnaaw suñu borom mooy def ak dindi. Mm-hmm. Eh, may nañu tawfeex si nit ñi ba noppi waaye mu dina ko doon leen nag di wéy. amiin amiin amiin amiin Mbakke amiin. sëriñ bi nag.

man waaw sant rek. waaye dafa am baat moo koy lëkkaleel nag. sant ak soññu. sant nan sax ci sant sax ci soññu. moom baat boobu soññu laa sax ci sant sax ci soññu. ñoo yàlla na nekk ci diggante boobu rek loolu rek la alhamdulilah dañ sax ci sant te sax ci soññu nag suñu bopp mhm. ci moom mhm. loolu rek la tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah mbak tabaarakallah jërëjëf jërëjëf mbak jërëjëf rek jërëjëf jërëjëf sax ci sant mhm. sax ci soññu suñu bopp ci moom tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah loolu yaqin la ci ne yiwu àddina ak yiwu àllaaxira sikki sàkk néewu ci mi ngi ci biir loolu sikki sàkk néewu soññu suñu bopp ci moom yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira moo ci jiitu ak yeneen yi nga xam ne nag xel mënu ci àdduna mm-hmm. ko xel mënu koo daj mm-hmm. Mm-hmm. gépp ci gépp wàll daje suñu kenn rek la demee. tubaarkal ba tubaarkal tubaarkal tubaarkal mooy woon yem ci kàddu yooyu rek tubaarkal sëkk doy la sëkk mag ñëpp sant nañ ñëpp ngi lay sant sëriñ bi ñëpp ngi lay sagoo ñëpp ngi lay béggee ñëpp ngi lay ñaanal mbàkke fàggu la ku fi teew rek yàlla jéggi la say bàkkaar te defal na ko rek الحمد لله رب العالمين jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ñi ñu bëgg taalibe yu dëggu yii jiituma ci wax ji doyoon na sëkk waaye waxi Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da ci mënta dolliku sunna rekk sant ak santlu nun lii gën a war ci noonu muy sant rek sëriñ bi sant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi nun sant sëriñ bi rekk mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi di nu nu di jaam ñu war a jaamu kon buñ bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lanu sunu borom bàyyee luñ ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko ñu dolli ko ca kon sunu cant noonu foofu rek la war a nekk ak cant dong lay dolli ci wax yi Cheikh am sama ji nanu góorgóorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu paggu téef bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënal lu lépp nu doy loo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaye nag sant sëriñ bi ci nun wurita am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nan ko doy na sa kiitam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeñ noo ngi àdduna yóbbaale ko suñu yóbbal ci àllaaxira di sant sëriñ Tubaa kon góor góorgóorlu bu baax lanu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu nu gën a xam sëriñ bi gën a raw mu ko gën a dund gën a kawe ñëpp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la liggéey bi nekk ne ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou sëñ Abdou Samad wax yi mu fi li fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam am nam nam doon doxe digg ma boroomam ak digg ma yonent bi am nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu nu ko gën a xam gën a raw lu nu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu la liggéey bi nag amma mom ci bopam ginnaw sant ko rek mu wara doon sunu liggéey yar buñ ci gorgorlo dañ koy gëna jégé muy gëna a ci ñun yar nun ci gëna gorgorlo dañuy gën a jegeel bappam di gën a bëgg ci loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor gën a góorgóorloo dinaa dañoo bëgg sëriñ bi di bëgg ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey ëllëg dañu góorgóorlu ci yar dañu jéem a set set set tii bàkkaar sunu kepp kàttan yomb nu waaye nañ ko jéem ndax moo ni ci sëriñ bi nanu جنا فوق خزاي قصيدي موسم خاص من جنا فوق خزري سين بدي جنا بكتنون لونكو جنا جنگ جنا جيجي سرين بي واخي سي عبد السلام دي لور ياري لا سي دول غور غور لو باخ تييما سيت دي گندي سيت ndax lu ngeena set rek serigne bi geuna bekk ci nun lu ngeena set geuna te man ko xasida yi nag xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida moo nu ko war a dàqal luy dalal xel lu ne ci xeeti ngar na yi jàng moo gën a gaaw noonu rek la demee foofu rek laa wax yu Seex Abdu Samad ji moo ci dolli dara waaw cant rek laa ci dolli kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di gën di set góorgóorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunu dund ndax mën na ko loolu rek la eh, eh, eh, li ci maanaam nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar wax waaye maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëñ bi ne maa ngi waxal bokki bi yëpp dafa am luñ lay ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp ne mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi sëñ Tuubaa yëpp nga fonk te gëm leen waaye da koy fab kenn mu ngi sëb sëriñ nun ñii ku ne am na xasida goo féetewoo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu sëñ ma ko nooru daari ngeen def doy na sëg nooru daari nooru daari moom am naa ci am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa am naa ci firnde nooru daari nii am naaj ci firnde nooru daari nii am naa sëriñ Cheikh Salihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal nooru daale ni Cheikh ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj gi bis bu set ma jàngal ko ko ni ma ko gisatul te xat xat yi bari ajji mu juree ma jàngal ko ko boo koy jàng doo ci fas dara Seex Saaliw rek laa koy jàngal moom laa koy lëggee waaw <laughs> waaye xasida yi xasaa yi rek laa wax waaw ci bu ci wóor ni sëñ bi ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu mu gën a bari gën a baax <laughs> noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di la loolu dafa dugg lépp ci wax Seex Abdu Samad bi sëriñ Basirou dafa am bis mu maag beneen mbokkum bi muy waxtaan ak ñun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bëgg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne diw bo yoroon dal li di diko doxé bam xar do gis ku mel ni man <laughs> ah serigne bi nak serigne Basiru moo waxone waxoon fullaam te wax jojje la dem ba tang hal ne waaw sëriñ bi sax moo am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa day waxtaan day wax ba yàgg mu gën tàng ne waaw sëriñ bi sax am na fulla foo ko toll rek mu toll la fa kon bis bii leer na taxaw sañ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ sëñ bi foo ko mu toll fa leer na nañ moom nag dañuy gën a ñaan rek waaye sampu sëñ bee waaye dañuy gën a ñaan nag mu gën su ma gën koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi fa tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo ko gën a bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg waaye boo ko di seet ngay defee ne gone yi sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu la gone yu ndaw yi ak jigéen ñeeg ñëpp gone yu jigéen yi boo ko di seet da ngay defee ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mbir la mën naa dalal xel waaw bi fag faggul nañu lépp waaye bun na yàcc bun yàccaaral bun sàggan nañu jiima sant sëriñ bi ci ni ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf Macam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi bokki dëkkandoo yi bu baax rawatina bu nuy sant sëriñ bi bu baax di leen xamal ne faggul nanu sunu njëriñi tey ak sunuy njëriñi ëllëg lépp faggu na ko noo ngi sant bu baax pàggtee fi fa tabaarakallaahu yaatu na liñ ci mën a jiital mooy jataay bii rekk faggu gi mu faggul ñaari sëriñ faadilu kii di imaamu taraawix kii di imaamu eh, salaatil aydayni di ay gone yu ndaw ñu waajal leen waajub lislaam bu mat sëkk dëppale leen dëppal lislaam muy alxuraan noo ngi gën a sant sëriñ bi bu baax ndax loolu lépp paggute fa moom ne ñeewunu madinatul munawwara ci seen ilimaan ñeewunu it makkatal mukarrama ci seen ilimaan loolu lépp nag fàggu sëriñ bi rekk kon nag noo ngi koy sant bu baax moom Sëriñ Tuuba bu loolu wee ñu farlu ñu farlu ci dool ñu ñu farlu ci jooyal lislaam loolu moo de taxawaayu lislaam ak doxiinam ak ni mu gaawee am am téq fanweeri at yu tegal rek mbooloo mi mel ni lépp a soppiku tilifi ngan ji def bàyyi woon muy liggéey bu rëy bii di lislaam mat ko waxee woon rek alyawma akmaltu lakum diinakum nam ko waxee woon rek ne alyawma akmaltu lakum diinakum ñu dox tuuti at yu néew ñu lépp xaw a dellu ca nam meloon ñooy sëti yonent bi ñu ah ñu rey seti yonent bi. ñuy rey seti yonent bi. di jàpp ay setam yu jigéen. jàpp ay setam yu jigéen. ni ki jàpp njaam. ni ki jàpp loolu defe naa benn yàqu-yàqu mënu ko ëpp. loolu defe naa benn yàqu-yàqu mënu ko ëpp. lislaam di dem. ci noonu rek nag. ci noonu yi rek nag. di gën lëj rek. di gën di lëndëm. loolu moo waral. jàmbaari lislaam yi. jàmbaari lislaam gannaaw saxaabatu rasul. ñu jóg ñu jóg. fas taxaw taxawaayu yonent bi. fas yéene taxaw taxawaayu yonent yeesal lislaam. ak dundal ko. ak jël ak jële ci tumuraankeem googi. jàmbaari jàmbaari lislaam yooyu. ku ku ne xam na ne ci la sëriñ bi bokk. gis nañ ni mu jóge gis nañ ni mu jóge dafa mel ni da àndaale. mel ni da koo àndaale. dunde ko. dunde ko. lépp di jub ci lislaam. lépp di jub ci lislaam. am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon. am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon moom xaadimu rasul ba ñu jëkk a ànd ak moom xaw na leen def ni saxaabatu rasul mën na si ne leen a yéegalit ca ñoom kon fii ñu toll nii war na noo taxaw war na noo tal leneen lu jógaat ci lislaam lu jógaat ci lislaam jàmbaari lislaam yooyu jàmbaari lislaam yooyu seen taxawaay yooyu seen taxawaay yooyu seen liggéey yu rëy yooyu seen liggéey yu rëy yooyu te bi bokk ci ñoom te bi bokk ci ñoom kon kon il faut ñu war a jooyal lislaam ndax moom ndax moom bu dundee moom lislaam yoon yëpp dund bu tumurankee yoon yëpp tumurankee kon fii ñu toll nii jullit yëpp dañoo war a jógaat ci lislaam kem kattan

te taxaw ci temm def ci sunu lépp loolu muy sunu warteef nee na loolu moom lan war a tal bala noo tal yoon yi nañ tal lislaam bu lislaam dundee yoon yëpp dund kon nag kon nag il faut il faut nun nun ñii di ñooñ Sëñ Tuubaa nun ñi di ñoñ sëñ Touba. il faut que nu joyal l'islam il faut que nu jooyal lislaam. boole ko ci liggéey li ñi liggéeyal sëriñ bi. boole ko ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi. il faut que nu joy il faut que lépp nak waaye loolu lépp nag. rek la. rek la. ndax suñ borom moy def moy def dindi. te xamna ni muy def. te xamna ni muy def. te loolu lépp moma te loolu lépp moma kon. kon lu nu jooy jooy jooy. lu nu jooy jooy jooy. nañ far sunuy rongoñ. donc delloo lépp ci moom. delloo lépp ci moom. buñ delloo lépp ci moom. buñ delloo lépp ci moom. dellusiwaat ci sëriñ bi. dellusiwaat ci sëriñ bi. góorgóorlu bu baax. góor góorgóorlu bu baax. fas yéene koo sagalal lislaam. fas fas yéene koo sagalal lislaam. li ñu koy defal lu mu néew ñu koy defal lu néew néew. sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. sagalal ko lislaam moo ci nag. sagalal ko lislaam nag. mooy fonk lislaam rek. mooy li mu digle. li mu digle. ñu di ñu di góorgóorlu suñu kem kàttan. kem kàttan. li mu tere. li di ci góorgóorlu suñu ci daw ko. alimtisaal wala ijtinaab loolu mm-hmm. loolu mooy mooy mooy lislaam mooy lislaam la ca dolliku la ca dolliku moo dig taalibe moo mooy makaarimul axlaaq rek mooy makaarimul axlaaq rek kon kon nan góorgóorlu bu baax bu baax ci fonk lislaam ji suñ kem kattan la ca la ko dalee ca gone ga nga xam ne jullee nga koy door war doog a war ak mag mi nga xam ne daanaka mënatu ko ak ñi ci diggante bi ak ñi ci diggante bi nan góorgóorlu gën a fas yéene sagalal sëriñ bi lislaam nañ fonk julli mooy waxtu yi juróom. gën a fonk ponk yi. gën a fonk ponk yi. kem kattan. loolu. buñ ko ko sàgganee. ko caaxaanee. buñ ko caaxaanee. buñ war la. ci góorgóorlu suñ kem kattan. nañ suñ kem kattan. fonk suñ diine. fonk suñ diine. nan ko fonk. nan ko fonk. fonk sunu taalibe nag. fonk sunu taalibe nag. ndax ak taalibe bu amut. ndax ak taalibe bu amut. dana jafe. dana jafe. lislaam am lim bëgg. lislaam am lim bëgg. kon. kon. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. ci njub. li ko dalee gone yu ndaw yu tuuti. waaw li ko dalee ci gone yu ndaw yu tuuti. ba ci mag ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a tële. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun na xool boppam. na xool boppam. teg tànkam ci siraatal mustaqim. jéem a teg tànkam ci siraatal mustaqim. loolu mooy loolu mooy teg tànkam ci njub rek. njub nag njub nag. mel na ne ñaari njub la. mel na ni ñaari mbubb la. ñaari njub la. ñaari njub la ñaari njub la. njubug doomu aadama. gi nga xam ne. gi nga xam ne. ñaari ñett buñ dee buñ dee fee. ñaari. boo xoolee fee. ñaari jëmm buñ nee fee. mën nga caa xàmmee ki jub. mën nga cee xàmmee ki ka dëng. ak ka dëng. ka jub nag. ka jub nag. day jariñ dama boppam. day jariñ boppam. ndax ñëpp dañ koy fonke jub googee. ñëpp man koo jariñoo. ñëpp mën koo jariñoo. njubug yàlla nag. njubug yàlla nag. mooy def ndigal bàyyi tere. yàlla digle lépp. li yàlla digle lépp. ko jéem a xam. ñu ko jéem ko jéem a def. di ko li yàlla tere lépp. ci biir ak ci biti. di ko jéem a xam. ñu di ko jéem xam. di ko jéem def. lu dul loolu. sàggante rek la lay indi. kon nan xool sunu bopp. kon nan xool sunu bopp. gone gu ndaw gi. gu ndaw gi. waxambaane wi. waxambaane wi. ca topp. ña ca topp. ba ci mag ñi. ba ci mag ñi. nañu kon kenn ku ne na xool boppam. na xool boppam ci ci ci xool boppam. ci ci njub. xool boppam ci lislaam. xool boppam ci lislaam. xool boppam ci makaarimul xool boppam ci makaarimul axlaaq bala ngaa am am taalibe bala ngaa amuk taalibe balaa taalibe gi sotti balaa taalibe gi sotti bala moo rafet bala moo rafet fokk ñu jëfe makaarimul axlaaq faw in fokk ñu jëfandikoo makaarimul axlaaq suñ borom ci coobareem moonu natoo moonu natoo def ci ñun ay jikko yu baax def ci ñun ay jikko yu baax def ci ñun jikko yu bon def jëkk a jóg jóg waaye lañuy jëkk jóg mooy fas yéene gën a nasaxal jikko yu a nasaxal jikko yu bon a jëfandikoo jikko yu baax yi loolu yi rek la yomb na lool julli jafewut waaw ñuy góorgóorlu ba di ko jëf ci waxtu di ko boole laab ponk yi itam. ponk yi itam. la la la la koy fonk lépp. waaw la koy fonk lépp. mu mel ni warugar. mu mel ni weeru lu mel ni weeru tedd bii nu jóge. mu mel lu mel ni weeru tedd bii nu jóge. ñu fonk ko nañ ko war a fonk. ñu fonk ko nañ ko war a fonkee. loolu lépp. loolu lépp. loolu lépp. sëñ bi noppi na ci. sëñ bi noppi na ci. fàggul nañu lépp. fàggul nañu lépp. bayiwul dara. bayiwul dara. wax na. wax na. bind na bind na. jëf na jëf na. kon. kon amuñu wen lay. amuñu mënul dara itam. buñ mënul dara itam. Ah, waaye li mu defal. waaye lim nu defal. nan ko sagal. nan ko sagal. nan ko sagalal fonk nan ko sagalal fonk lislaam. nan ko sagalal defar sunuy jëmm. def nañ ko sagalal nañ ko defal suñuy jëmm defal suñuy jëf bu doon mënut dara itam war nañ koo sant war sagal googu mu sagal lislaam yi mu sagal lislaam moom lañ koy mën a sante moom lañ koy mën a sante noonu rek la demee noonu nan góorgóorlu bu baax bu baax tënk bàngu tënk bàngu nan bu baax waaw ñoo ngi sonn suñ bopp nanuy soñ suñ bopp di soññ suñuy bopp di soññ sunuy bokk sunuy bokk jullit sunu bokki taalibe sunu njaboot nañ leen di soññ ginnaaw buñ soññee sunu bopp di leen soññ te nekk ca lañ leen di soññee sunu kem kàttan nan ko def nan ko def buñ ko defee dañuy mucc dañuy mucc adduna bari adduna bari nay gàllankoor lool ak ni mu xewee ci li làmm yi wax ak ni mu xewee ci li làmmiñ yi di wax mu di ay jafe-jafe jafe yi du dara dara ci am. maanaam du ci am jafe ju am ju am am. waaw jafe-jafe ju bu mën am. noo ko teg suñu bopp noo ko teg ku nekk ci la war nga war a ne. jafe-jafe du am. jafe-jafe du am. njàmbat du am. njàmbat du am. njàmbat li. njàmbat li. feeg ci leen war a nekk. feeg nekkuñ ci leen war a nekk. njàmbat yi duñ ci jóg. te suñu musiba dara. te duñu jëriñ te xarab suñu borom dong la ñuy andil. kon nan jéem nekk ci li war a nekk. nan jéem kon nan jéem a nekk ci leen war a nekk. ci mucc ci dundug adduna gii. ci téq téq yi ci am ak gàllankoor yi. ak jafe-jafe yi ni ak jafe yi. tax jàmbat yi bari. ak yi tax jàmbat yi bari. dara duñu ci musal. dara duñu ci musal. loolu fonk fonk fonk fonk suñu diine. lu dul fonk suñu diine. góorgóorlu ci njub. góor ci njub. ci makaarimul góor góorgóorlu ci makaarimul axlaaq loolu lépp nag nan koy def te yàlla tax koy def te yàlla tax mooy tax mu am njëriñ buñ ko def ngir dara nañ ko def te yàlla tax loolooy tax mu am njëriñ nan góorgóorlu bu baax xoolaat suñu bopp xool fi jamono ji toll islaam noonu ma ko waxee fanweer yu tegal rek wallaay mu lëndëm kërëj gaa yi yàlla jàmbaar rek ah benn benn yu baax yi. ak ñoom ñoom la ci. ñoom rek ci rëcc. ñoom rek ci rëcc. wallaahi wallaahi tumuranke islam googee yenn gaa yu baax yi rek. tumuranke googee. tey jii la. foofee lislaam juddoo. foofee lislaam juddoo. xew-xew yaa ngi fay am. xew-xew yaa ngi fay am. rayante. rayante boo xam ne teguñu ko fenn. ba ci bisub tey bii. ña ca te teguñu ko fen te yàqu rek eh, eh, yàqu rek leen ko teg moo leen ko teg. nañ góorgóorlu bañ a yàqu. nañ góorgóorlu bañ a yàqu. nañ góorgóorlu ci bëgg a defar. dara duñu ko may. dara duñu ko may. lu dul dellu si ci ndigal li rek dellu ci ndigal li rek. dellu ci li yàlla bëgg. dellu ci li yàlla bëgg. dellu ci li yonent bi bëgg. dool dellu ci li yonent bi bëgg. loolu lépp nag. loolu lépp nag. mi ngi ak sëriñ bi. mi ngi ak sëriñ bi. noppal nañ ñu ci. so noppal nañu ci nan xool sëriñ bi rek jéem a jàngaat sëriñ bi te jéem a jàngaat sëriñ bi nan jéem jàngaat sëriñ bi di ko jéem a dund buñ jàngee buñ xamee sëriñ bi xamee sëriñ bi buñ xamee sëriñ bi dund sëriñ bi dund sëriñ bi malaayika yi lañuy rawanteel malaayika la dëgg la <laughs> alhamdulilah jërë na noo ngi sant nag noo ngi sant bu baax nag di sant sëriñ bi nam ko waxe woon ci pàgguteef bii nga xam ne fàggu noonu ko misaal mi yëpp misaal mi lépp mën naa dellu ci man nañ koo gisee mën nañ koo gisee ci lépp lépp ci Cheikh Mouhamadou Fadil Mouhamadou Fadil ci Cheikh Mouhamadou Fadil mii ibnu Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Mouhamadou Fadil Male eh, di ibnu Cheikh El Bousso bii ñoom ñaar ñooñu ñoom lañu ci lépp ci lépp diine ci lépp sëriñ bi ci lépp sëriñ bi. exemple lañu exemple lañu. tey it ñu ngi ci ànd ak seen i yoo xam ne. tey ñu ngi ci ànd ak seen i morom xam ne. ñu ngi ci seen wet. ñoo xam ne. ñoo xam ne. mën nañ leen a wóotu. mën nañ leen a wóotu. ànd koog ñoo xam ne nag. ànd ñoo xam ne nag. ñoo ñoo yor diine ji. Ilimaan a ngi nii. Ilimaan a ngi nii. Ilimaan Ratib ngi nii. Ilimaan a ngi nii. ñi ànd ak ñun si nuwaab yaa ngi nii. nu ñi ànd ak moom nga xam ne fu ñu mën a taxaw ñooy taxaw mën na. loolu nag sama bokki taalibe lay lay lay lay soññ. nee loolu nag bokki taalibe mi lay soññ. loolu kat sëriñ bi moom jàpp na jàpp na mbiram. dëgg la nee na sëriñ bi nag jàpp na la mbiram. li mu bëggoon am na ko. kon ku ci bëgg bokk. kon ku ci bëgg a bokk. xool sa bopp. da ngay xool sa bopp. jëmale ci sa lépp. jóg lépp ci. def ko def ko muy sa yitte. def ko muy sa yitte. waaye nit ki bu looy dem ba nga xam ne adduna rek mooy sa yitte sa bopp rek kay sa yitte. te mënuloo sa bopp dara. adduna mënuloo dara. te taloo lu dul adduna. taloo yàlla taloo alaxira waaw. gëm boo gëm dëgg. nee na dafay dafay wax ne gëm dëgg. bu amee il faut nga soppiwu doxin noonu rek la jërëgéen jëf barke wàlla jërëjëf tàll waaye nekk na tàllal na ñëpp tàllal fu waay nekk na tàllal di la bi cant gu rëy. di la négee cant gu rëy. gun la ameel. xam nañ sa doxin yëpp ndax lépp teg nañ ci suñu bët. waa li nga xam ne amuñu warugaru bañ la cee sant. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Tuubaa am na yitte ji fi nekkoon joo xam ne mënutoon ñàkk ci dëkk bi yàlla ni nga ko jaarale ci sa loxo ba mu sotti ni nga ko bëggee woon loolu mu fi mooy titre foncier Touba ak leneen loo xam ne bëggoon nañ ko ci ndakaaru googee ndax dëgg la ndakaaru mooy capitalu Sénégal